yaay boog guddi gee tuuti ci leen leen ko xaj Abi guddi abi guddi bëccëg ak bëccëg yaay liggéey bëccëg ci la keneen di liggéey ki liggéey bëccëg wute naa ki liggéey guddi lu dee balu soo wetee li may bëgg a wax laajal ma di jéggi mooy borom guddi gi. cër ci la keneen di liggéey di jël kii liggéey guddi wute naa kii liggéey bëccëg soo wetee may bëgg a wax laaj naa di jël mooy borom guddi diis bilaay ku diis bu la ci gën a ci ngay liggéey ba ca ci la keneen di liggéey di jëkki ci liggéey guddi wute naa ci liggéey ba ca soo wetee li may bëgg laa jël di jëkki yaay borom bu diggee di jëkki bu la kenn ragaloo noonu yaay borom guddi gi. aywa DJ Yves yaay borom guddi jërëjëf

ñu ànd ceeg yéen gunge leen ci canal 12 bu t by Excaf wala bokk ci canal 11 bu TV d'Orange yéen ñi nga xamante ne aussi yéen ñuy bàyyi xel ci DTV Sénégal ci Facebook bi ak YouTube bi ñu ngi leen di gërëm ni ngeen ànd ak ñun gis nañu ko message yi encouragement yi ak li nga xamante ne aussi yéen a ngi koy suggéré par rapport ak parfois émission bi loolu ñu ngi ci bàyyi xel di ko gërëmee ndax nag dañu naan kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee ngir ñi la bañ te gis nañu quand même deux ans yi nga xamante ne def nañ ko yéen yéen a ngi yokk xar mi karaw di ñu encouragé

Ah, ak euh, Modou seen waa am naa si wàllu promotion jërë ngeen jëf drapeau bi nga xamante ne tudd woon ngeen ñu ko foofu ca Gambie le 26 juin passé ba tey ñu ngi koy waxtaanee donc ñu ngi leen gërëm ci teraanga yi waa Gambie yëpp macha allah. seen deuxième euh, dàkkantal mooy Gambia réewum teraanga comme ni koy waxalee Sénégal waaye teraanga xam naa ne moom yéen itam mën ngeen ko ñu ngi leen ci gërëm tey guddi gi dellu siwaat ñu war a waxtaan ci lu bëree bare bëri lu jëm ci actualité en général waxtaan ci politique Hein, waxtaan ci diine waxtaan ci culture tey hein, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable maanaam euh, tey dañu invité koo xamante ne xam-xamam dafa màcc lool ci wàllum diine muy oustaz Mohamed Mbaye ngeen ràññee ko bu baax a baax ci émission yi nga xamante ne mu ngi koy def fële ci Sen TV mu nekk koo xamante ne am pédagogie la macha allah oustaz bu dégg jamono noonu lañ ko mën a woowee oustaz boo xamante ne dafa dégg jamono ndax la may waxtaan ak yow dafay teer à terre ci déggin waaye lépp xam-xam. dafay bëgg rek nga dégg ko tey daañu waxtaan ak moom ci actualité réew mi ah, taxawaay ustaas yi ci biir réew mi xeex yi nga xamante ne léegi-léeg ñu ngi koy xeex te duñu am ñu leen ci jàppale ñu wécc ci lool loolu yëpp bi dinañ ko waxtaane waaye waxtaanee aussi mbirum Cheikh Ahmed Cissé bi nga xamante ne moom ah, bokk na ci nga xamante ne am na lu mu ca wax ndax bi problème bi amee rek ah, dem na fekk fa nga xamante ne fa lañ ko téewoon muy central ba mu génnee am na lu mu joxe ci message ak la nga xamante ne aussi Cheikh Ahmed waxoon na ko mu jëm ci mbirum euh, jumaa yi loolu lépp tey daañu ci dellu soit ci actualité bi waxtaanee aussi li nga xamante moom mooy xew-xew réew mi. walum politique ni politique ay nitu lañu war di ki Lo hein, alias Tandian dans série Idole wala Atouman dans Infidèle un très grand artiste non seulement artiste là, mais acteur comédien là. ah li mu bool dafa bëri c'est un artiste loolu dinañ si ñëw parce que ci mille bi ñu nekk nii mu jëm ci wàllu musique am na ci loo xamante ne dund ko ci musique bi waaye am na fu mu jaar ak artistes yi bëree bëree bëri yoo xamante ne tey bu ñu eggee ci niveau bi ñu egg nii tey moom def ci participer ci carrière artistes yu bëree bëri daañu waxtaan ak moom aussi ci lu jëm ci wàllum série yi théâtre bi léegi léeg Jamara sànni leen ay baaraamu tuuma ñoom suma nijaay Mame Makhtar Gueye waa Jamra yëpp ñu ngi leen di nuyu ah léeg-léeg ñu sànni leen baaraamu tuuma rawatina ci série bi nga xamante ne moom bokkoon na ci ah, muy infidèle ah, ñu gis ci léeg-léeg yenn scènes yoo xamante ne dañu jàpp ne méngoowul ak ñun li nga xamante ne moom mooy sunu ah, diine ak sunu aada voilà donc loolu yëpp tey daañu ko waxtaanee ci guddi gi alors am na koo xamante ne dafa dawoon maa ko formé woon fii ci télévision bi ah mu waroon démarrer guddi gi mais mu trahir dem ci sunu mag ñi waa RDV sunu mag ñee la demoon waaye ñëwaat na ci kër gi <laughs>

ñu wax ni tey guddi gi la rek ñu guddi ko ba mu neex rek na biir. macha ne sama sama sikkim bi mooy xos micro bi ah léegi ma wàccee ko quoi kon dinaa ko dagg bu ngeen bëgg ma dagg ma wàññi ko fii baax na <laughs> ah nii baax na <laughs> ok kon baax na <laughs> ay cee kontaan nañu ñooñu waaye régi lañ dañu bokk ci émission bi parce que ñun voilà c'est ça Goudigui. on communique direct hein, avec euh, les gens de l'ombre comme on les appelle ñi nga les ne liggéey bu rafetee ñoom la dañuy communiquer ak nous. ci biir émission bi léeg-léeg sax kenn ñëw traversé ñëw taxaw fi am lu ma parce que euh, la télé ce n'est que de la télé quoi comme on dit la télé ce n'est que de la télé El Hadj Ndiaye daan na ko wax sunu papa mbii mi naan la télé c'est la magie waaw ah, <laughs> moo tax ñun ñu tuddee suñu bopp la magie de la télé. kon continuité la rek quoi kontaan nañu oustaz eh, ñu ngi lay gërëm en attendant ñuy xel li café gi ak ataaya ji ndax Baye Ousmane dafa nekkoon ci tournage waaye xam naa léegi mu agsi kontaan nañu am la tey ci plateau bi. maa ngi kontaan law naa sabat xadruhu ayatuhu izaman ahyasmuhu xiina yudaa daarisa rimami sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi mm-hmm. wa man tabia alhuda bi hëddiyin ila yawmi ddin Yves maa ngi lay nuyu maa ngi la ziyaara bu baax di la yéegi sa yéeguwaay di la ñaanal yàlla na nga bokk ci ñuy jëlee télé un yóbbu leen cent amiin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiin ñaanal yàlla ñuy caabi mhm. yi ndax saa su ne bu nu amee occasion woote boole la ci mhm. waaye di nuyu ñi nga xamante ne ñi ngi ci lal hôpital yi tëdd mhm. te léeg-léeg sa wax tax ñu fàtte seen feebar waaye ak ñiy woyaale seen feebar ñi génn àdduna yàlla yërëm leen ba ci ñi nga xam ne ñu ngi sukuraat ndax yërmandem romb na loolu moom yàlla nuyu bu baax a baax sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy sama ay xarit ku mel ne Ablaye Ndiaye yéen mhm. ñun dañu am ay cumikaay ni ko mbëri amee macha allah waaw suñu cumikaay Ablaye Ndiaye moom ci la bokk tabaarakallaahu nekk sama xarit nekk ba yéen tubaab jalaaw nga xam ne lu ma bëgg rek mu daal di ci rek boppam Assane <laughs> macha allah euh. nuyu Mbaye Diop Jamil mhm. taalibi sëñ Mansour si Jamil mhm. waaye nuyu nag sama waa groupe nga xamante ne ñoom ñooy euh, Sénégal 109 seen activité yëpp ci ay gas ay forage la ci defar gaa yi nga xamante euh, ay ay machines yoo xam ne day toj ay nen lépp tabaarakallaahu fuutaak fu nekk la ñuy dem macha allah nga xamante ni maa ngi nuyu ki nga xamante ni moom mooy Youssou Kama. ak Suraxata. maa ngi leen di nuyu di di leen ziar léegi rek laa fa bàyyeekoo. macha allah euh, ñaanal leen yàlla dafa jàmm ak sutura. nuyu bu baax sama grand frère nag moom ma yar. macha allah Assane moo ma yar mbee nag gëj nañu gisante ci télé bi rek la ñuy séenante. Mhm. nuyu Seydatuna Khadija. Mhm. nga xam ni ku ko tudd rek damay am cofeel ci yow. ndax ci mu jaar ak sang bi. sallallahu mhm. alayhi wa sallam. ay ci nuyoo baa ngi noonu. nuyu képp ku ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew. kontaan nañu oustaz Mohamed tey waxtaan bi dana ubbeeku bu baax a baax ndax euh, euh, diine jamono voilà tey moo daje ci plateau bi diina jamono la ñuy waxtaane tey Assane Lo maa ngi lay nuyu tànjan maa ngi lay wala Atoumane maa ngi lay fay boo ci wax baax na tànjan wala Atoumane yëpp benn la <laughs> uh-huh. di la fay uh-huh. di rafetlu aussi ci teewaayu plateau bi uh-huh. Khadija aussi vraiment moom it namoon nañ ko bi nga raaree ñëpp dañ ko yëg macha allah bu ma jógee ci foofu damay sant sama sëriñ Mouhamadul euh, euh, euh, doom ci sëriñ Moutala Mbacke. Mhm. muy sëñ Mamidou Mbacke. Mhm. waaw di doomu ma jël doom bi nga xamante ni si moom. Mhm. leeram muy Talla ñu koy mun Talla. moom it maa ngi koy siyaar bu wér. waaw ak képp koo xamante ni si yaa ngi ci. mouridisme beeg ci tijaanu beeg ci ñeseen beeg ñëpp. maa ngi leen di bu ma ci paree aussi di ziar koo xam te ni mënul ñàkk Yves. parce que daf ma daf ma defal loo xam dafa yéeme. Mhm. ñu koy woowee Mika Diallo. Mika. Mhm. Mika Diallo asek naa la nekk. Mhm. Mika dafa jël doomam bi mu gën a fonk. ne yow laa ko bàyyi la. ndeysaan macha allah. ñu ñëw di ko maye. mu ne leen ban sama yoon neew ci mhm. ñëpp mu teg ko sama loxo mhm. ñu def lu rafet am sata sàmb ñëw ñaan si am sama délégation et mhm. ñu pare xale bi yàlla may ko ay seex macha allah ma hôpital ma fa njëkk tànk tegoo fa sa tànk jël lépp kooku moom dafay maye bopp du rocc lan lépp lay joxe macha allah di ko di ko di ko bégee lool di ko siyaaru ak famille di jaar tamit sama doom ah jabaru Arona ak sama seex yi macha allah di jaar aussi sa yaayu soxna. waaw Awa Diawara. waaw ah, macha allah depuis États-Unis mhm. kooku mënul ñàkk nee naa nag fa laay yem parce que bëggul wax leen. <laughs> ah yaayu Marie-Lise. macha allah ah, donc mhm. euh, su ma paree ci fa tamit Badara depuis Touba. Mhm. ngi toog di ma déglu. et di ziar aussi euh, lu mënul ñàkk Mané. yaayu Adja princesse sawa ñaaral bi momit ma sha allah kooku mënul ñak ah yeñ nañ ko ne dugal nga deux non non non pas sama ñaaral nii ah, mooy ñaareel la kooku ah, ñaaral la ah, ñaaral la moo tax ma yox non maay sa kilifa donc sa kilifa ngi ni kilifa ngi ni non nanguna nanguna nangu buñ ci paré aussi mustapha mi nga xam mënul ñak moy sama lepp mom wa mustapha jaw mi ma sha allah moy sama lepp momit mhm. aussi moy sama sama confident la sama lepp la sha allah adna nak xamuñu lool ànd bu yag dëgg la ah non bolé ko aussi waa Subatel Mm-hmm. musique commencé ko ci Matar. Matar Diop ah DG Fall. le très grand Matar. ah non ñoom ñëpp ba ci Magóor ba ci suuf. gaa yëpp mm-hmm. maa ngi leen di siyaar. donc guddi gi yaatu na nañ doxal. macha allah Bakhoum suba teel ñu ngi koy nuyu bu baax. moom di koo xamante ne aussi ku spécial la ci. Mm-hmm. gaañaa ngi ci biir gaañ waaye neexuñoo ràññee. dëgg la li ko waral mooy tekkam nga. dëgg la waaw boo nee tekk rek tekk woon la yoon. dëgg la war a kenn mënu koo jaar fenn. dëgg la waaw il a compris nekk ci. tech gi rek la ci donc Makhtar Diop Subatel ñu koy nuyu mhm. di nuyu aussi Abdoulaye Dieng Dieng social hein doomu ndeyu Youssef Benjeloun hein le président du département de Kaolack hein départemental bu Kaolack voilà ñu koy nuyu bu baax baax Ablaye Dieng ma ngi lire légui ñu wax ci ci mbirum Ahmed Cissé ma ngi koy annoncer légui jotna message légui légui ni mais finalement il a été placé sous mandat de dépôt mhm. hein, voilà comme il y a une très mauvaise nouvelle quand même. Mhm. euh, voilà, une sous mandat de dépôt ce lundi 28 novembre. Finalement, il va passer sa première nuit en prison. Mm -hmm. Donc voilà, Ken au coco, quand même. Ken au coco, parce que moi personnellement, moi, ça m'a naturellement. Mhm. Ah, on se voit beaucoup, du talk, du wartan, krem, voilà, un des fois Réry. Donc, euh, Abdouna Mom, quand il va ku ko a bu ngeen koy waxee il retaan ku lab. dëgg la ñun ñëpp mun nañu ci ay erreur yo xamante na koy def mu yobé le li tay mais ñu koy xalaat bu baaxa baax hein koy xalaat bu baaxa baax parce que mën naa dal ku ne quand même mën naa dal ku ne donc Cheikh Ahmed ñu lay massaw hein koy massaw ak sa famille hein ses frères aussi yi nga xamantene dem na amna chance quand même dem ba deukum hein ba sen kër fa le ci ci yoonu gambie bi ci tabas ci ci gàmmu gi nii demee ba seen dëkk ba fa nga xamante ne fa la juddoo waaw ah, ca village ba ànd naa fa ak moom ñu teral ñu macha allah ziyaare kilifa dëkk ba fa nekk doog fa jógee doo ko dem Medina Baye mhm. donc ñu ngi koy ñu ngi tout cas lu lu lu metti la ci koo xamante ne voilà da nga am njaboot aussi. Mhm. loolu daañ ko waxtaanee aussi ci wax ji nga xamante ne tey moo ko yóbbee lii tey. Mhm. te waa Jamra euh, dugaloon seen plainte ñoom Mame Makhtar Gueye ba tey voilà gis nga nu mu demee donc. Euh, ñu ngi koy masaw daal voilà loolu lañ ko mën a waxal quoi parce que nit xam naa nit ku baax la mhm. parfois erreur du communication day am mais xol bi waaw nit ku baax la te nit ku am yéene ci doomu aadama la voilà donc ñu ngi koy masaw euh, Seydina Ousmane maa ngi lay nuyu waa ñu ngi ci jàmm mhm. Mhm. ca kaw sunu waaj ni mu tudd jazz jazz jazz création borom Medina jaas na ma waaw jaas moom jaas la pàccangaa la santaan na la <laughs> na la lépp na la mais maa ngi lay jaar bu baax a baax maa ngi lay di jë naan la namoon naa la maa la raw dëgg fa yàlla xam nga ni mu ñun moom mhm. vendredi samedi ak dimanche dañ ci mun daa gudd rek mais daf ñu dafa gudd daal dafa gudd torop ay temps dañ ciy dañ dañ ciy daal wax dëgg fa mhm. yàlla mhm. di ziar nag yaa oustaz mi nga xamante ni soppeek soppeek àdduna la soppeek Sénégal la soppeek euh, ñëpp la. Mhm. ngir xam-xam bu sell gi. Mhm. ak jàngale gu leer gi. Mhm. bi far di nag wa sunna ni wax dëgg fa yàlla bu waxee fasaaxa gi leer na. te belli te li muy wax maanaam lu yomb dëgg dégg la. un plus un. égal deux et tu tu dis boo di boo di étoile ñu ne la faute. waaw <laughs> maanaam ni mu koy tegee mooy mais mais da ngaa dalal ku ëpp fit ci àdduna. te nga am fit yow ñu def fi mu tuddee ko idole yow nga war a góone un uh, bon exemple war a doon idole mais odol man man ko man ko man xeetu xeetu im xeetu dëgër fitu tànja yow yow ñu indil la ñoo xamante ni def ne nëngate uh. yow nga war a ci woon nga gën a dëng ba pare nag xoolal xeetu xeetu xeetu ñaa ko jom gam ca boole faale ku yàlla bind maanaam saa yu defi heure nga ne bii moom dina soppi. Eh. dañ gën a mën a <laughs> gën a mën a sàppaliwaat affaire yi. Mm-hmm. waaye if jërëjëf waay. Mm-hmm. xam na ni yii. Mm-hmm. la àdduna bëgg. wallaay ñii la ñuy toog. ndax Tandian bu taxawee milieu cinématographe mu ne nii keroog waxoon nañ fi dafa xew. théâtre dafa xew. wax dëgg fa yàlla. diine. doon nag li nga xamante ni mooy farata. suñu borom dafa ne xam leen. soog maa jaamu. kon ñëpp ku ñu koy fàttali rek. dañ lay sant. ak di la gërëm te mhm. dinaa xam ni ci kanam dina gën a leer ndax man am naa laaj mhm. laaj yoo laaj laaj yoo xam su ma koy laaj dama naan ko yaa oustaz yu forox <laughs> damay damay araba di naan ko yaa oustaz ñett <laughs> ay waay xolo borom reeju rafet ji xadija mm, ñaaw <laughs> mi naa xadijatin hablil hamman fil hilmin wa hadda bi rabbi wal amman macha allah xam nga ni sa gere fas jarul mille cinq cent de yaa xadi amal jàmm Yves daal yaa ngi noonu tey fii neex. kontaan nañu woon maa ngi ñëw yëpp affaire yaa ngi ñëw. kafe gi moom mu munee teel a ñëw rek. non mu ngi ñëw nii waaw ah. café. non na teela a ñëw. na teel a ñëw oustaz da bëgg dañ koo bëgg. café rek du ma naan ataay sax. Ah. Ah. par accident rek. ah. waaye <laughs> nag <laughs> yow xanaa xamoon ne borom ñaari jabar yeeg ñetti jabar. <laughs> <laughs> ñi naan café bariwul accident bi moom oustaz bii du doon mortel ah. accident muccu la muccu <laughs> tel immortel <laughs> allah alors euh, Khadija maa ngi koy wax léegi mbirum euh, Cheikh Ahmed Cissé mhm. déjà bëgg naa ñu tàmbalee foofu sax ñu tàmbalee ah, ci oustaz information bu bu ñu fekk la mhm. ah, ci émission bi mhm. su ko defee ñu ñu ñëw ci rek parce que gis nañu aussi ne am nga taxawaay bu am solo boo ci def diggante euh, bi ñu ko téyeeg léegi nii waaw euh, DJ Yves Balma rek ma nuyu buur géwal jabaay mhm. ak euh, soxnaam parce que mu ngi may seetaan buur géwal Papa Armand Ndiaye. jabaay kii nag téyër la souvent yi ah, ngay sol ñëwal na ma ci yu bare bare bari nekk sama xarit mhm. moom nag dafa ragal soxnaam soxnaam laa leen dee sabaa ko tuddee mais dafa am koo xamante ni mu ngi ñuy seetaan mhm. euh, koo xam ni bi ma gisee message am sama yaram dafa daw ndax mhm. biñ téye Cheikh Cissé bokk na ci ñi ma njëkk a may opportunité ma jàkkaarloo ak moom muy Abbas Mbaye nekk police euh, bu plateau mu ngi may euh, seetaan moom itamit maa ngi nuyu soxnaam Daba man ragaluma sama xarit mhm. parce que ànd kenn du ko forcé boo tubayee yam boo koy forcé muy xotteeku mhm. tey tamit gis nga Assane mhm. euh, yàlla mooy boole ay nit ñu ànd am na koo xamante ni tey jii yéen a nekkandoo ndaw mais bi ngeen nekkee ndaw ci benn koñ yaa ngi ci benn activité di dox moom benn mu ngi 15 wala mu ngi apprenti wala mu ngi nangam dëgg la tey fu ngeen daje man yëmbal laa juddoo kii xam na ko yëmbal Carrefour la boo xamante ni boo musaana tudd station yëmbal ñu bari dañu tiit mhm. ma juddoo fa fekkoon fa ay ay ay ñoo xamante ni ci lañ daan yëngu yàlla na yàlla yërëm leen mhm. euh, daan nga dégg euh, Paris Dakar mhm. ña leen kojoon ña leen kojoon ba indi leen problème yi nga daan fréquenté ay mag ñoo xamante ni ñooñu rey nit ak naan ci ndox mi lañ yamale woon yàqul dara ci sa jeunesse parce que am nga ay kilifa yu mat kilifa yu la encadré ngay mag yeneen xale yi rëccoon ba dem ba tey jii ngay daje ak ñoom yëmbal booy jënd essence. Mhm. ñu ni sawaay nangam démb moo ci mujj. Mhm. ci ñi ma xaritool gis naa ci koo xamante ne dafa 15 bu mënul taxaw. Mhm. mais jox naa ko respect taxaw di wax ak moom. Euh, mais day dépassé parole ndax wax dëgg yàlla nag nit mën tamandi di wax lu correct mais dinaa ko comprendre. xam ne du moom. li mu naan la. te itam nit melul na mu waxe mm-hmm. na mu jëfe la mel mm-hmm. nit mën na wax parole bu ñaaw te en fond que nit jëfam melul noonu mm-hmm. te nit ñi ba tey ràññeeguñu succès ak buzz ñaar yooyu nit ñi xamewuñ ko voilà parce que succès mooy lii sax mais buzz day romb mais ñaata nit ñu am buzz ñoo ñëw romb yaakaar naa ni yaay Binta Faye nekkul maire boo xamante ne ah <laughs> tout le nekk ci réseaux yi loolu mooy buzz bu romb ak am na xale bu jigéen boo xam ne mook Pawlish ñoo ñoo nekkoon borom euh, dina ma touché. dina ma touché yooyu yëpp tey ay bës la yoo xam ne day romb. <laughs> day loo ay bës la yoo xam ne tey dafay romb dem. loolu mooy bës. Mhm. sa mooy. Euh, bu may waaj a wax. am na kilifa goo xamante ni. nitu kurus la. mën naa wax lu ko naqari. Mhm. benn kàddu bu ndaw lay wax. Mhm. kenn dootu la déglu ci àdduna. am koo xamante ni. خليفة جنرال مني مني مني مني رومبل بيمت محمد بي بس كانك آه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم كيس نم بقيل دولو نيد دي بروغرامي يلا كوي ديف واي لي تخ مسخ نيت من لغي سوبلا واي لي تخ مو كونتيني مو مو ديباندر سي سا جيم مان ньоньو لاي باي خيل سي ني ماي سيطان احمد يلا بولاجو mu sopp ma ba mu jeex tàkk mhm. man itam kazalika mhm. lu mu nekk te du yoon mhm. bu ma ko gisee ci sit internet ci saa si dama koy woo benn muy def live mooy tax mu coupé ma bu paree li muy def dina ma woo téléphone wala mu ñëw suba teel woo ma man ko yow foo demoon mun ma damaa demoon soirée Pape jouf aw ma ndékki ba pare bu pare nag wan ma vidéo li mu baatare man ko nag yow seex mënuma laa comprendre yow yow yow lu mu gàtt gàtt Pape Diouf fa ma ëpp teraanga ci sama foog foog mhm. yow mënoo jël akus néew li nga yor dem jox ko Pape Diouf ba pare tourné ñëw ci man di ma ñaan loo ndékkee mhm. <laughs> wala mu ne ma kaa ñu toog ndékki mhm. ba ba biñ koy téye avant deme bi avant jour bi man ak moom ñoo ndékkee ndoo këram parce que dañoo xëy ànd ma ma yor ñaari oto man ko Cheikh doo ma dawalal bi nañ ànd ñu jëli sama oto bu nu paree ñu jiit la ñëw ba buntu këram këram laa ndékkee ñu tàqalikoo ci lendemain bi bi ñu waxtaan ci affaire bi mu xaw ko soofantal ma ni ko seex yoon dafa sew de mhm. dégg nga baat boobu mhm. te itam ñaan lu ci yoon yombul mhm. parce que homme de tenue bu doon ko jug jàpp leen kon ñëpp la ñuy jàpp parce que di nga xam seen yoon mais am na lu yàlla def ci ñoom cest communication bi xoolal stratégie bi oh, te nag la Seydina Ali ibn Abi Talib waxoon ni maa lil abdi si wal firdaw si nee na jaam ñëpp aljana la ñu jëm ñu ko Seydina Omar lu tax nga ni jaam ñëpp aljana la ñu jëm ñuy def bàkkaar nag mu ni mais fa in afawta afwan ku jéggalu fa rabbul gafaaru yàlla jéggal la yàllaa ngi naw jaam bi ko tooñ ba pare tourné di ko jéggalu bu fekkee ni yàlla moo mel noonu mm-hmm. eh, nit bu tooñee ñu xam ni moo tooñ mm-hmm. bu jéggaloo nañu ko jéggal ma ànd ak moom ci loolu mm-hmm. premier jour bi ñu ko téyee ma woo ko muy communiqué parce que boobu sama ñaaw na te Sénégal laa xam naa réalité yi fi ma woo ko mu rejeté ma ma waat pour mu dugg baat vocal. Mm-hmm. ma ni seex yaa quelque chose. dernier appel la doon def. voilà dernier appel am boobu avocat la doon woo parce que ma ma ma ma ni yee eh, ma woo benn waaye ni ko may seex dañ koo téye mu ni ma si dem na mais gars yi dañ koo bàyyeegun ko. Mm-hmm. may lijjanti di lijjanti di lijjanti comme ni ma la waxee Abbas euh, Mbaye mi di ma seetaan. Mm-hmm. may laaj. Euh, cybercriminalité xaw ma ndax hmm. jànguma tubaab voilà comme sama soxna Dakar la dëkk sama ñaareel moo may gën a million bi ma ni ko fan la foofu nekk mu tegtal ma ñu dem école police bi ma demee nekku fa hmm. ñu ne ma demal central ma ñëw central nekkul central hmm. ñu ne ma plateau la nekk ma jubali plateau damay egg plateau juste pour wax la ne la nit ku jaax jaaxle gis nga Yves. Mhm. amul ci àdduna ku ñeme yoon coow fi nekk. muy sëriñ bi rek taalibe beeg ñëpp. te ku bëgg a tumranke ku mu doon na la caabi féete ginnaaw. Mhm. ku caabi féete ginnaaw nga tum dëgg la de. Mhm. bi ma ñëwee yegg si ma dugg euh, plateau. nuyu ki ma fa fekk mooy Abbas bi may seetaan bàyyi la sant sama doom bàyyi la. nit ku baax. Euh, li tax ma naw ko. mooy li muy mu ngi yar seex ci en face ci jàkkaarloo ci wàllu communication. parce que seex dafa ñeme. bi ma egsee man ko lan moo xew. Mhm. ci saa si moom maa ngi fekk tamit ay ay ay ay benn duñu ay ñàkk mais ay ay plus personne dix personnes. Mhm. yu tëdd ci côté bi. Mhm. ma ne ko ma nuyu ko ni ko sant bi mun ma mbay ma ne ko maa ngi lay ziar munuma oustaz naka yittee ñu jàmm sant. ma ne ko Cheikh Cissé laay seet. munuma mu ne mu ne Cheikh Cheikh Diouk. ma ne tumuranke dafa gaaw xoolal ci ay karo ngay tëdd am na ñoo xamante ne seen tànk ñemewul karo wallaay dëgg la fi ngay tëdd amul looy lal hmm. ci karo ngay tëdd hmm. amul foo wéeru koo hmm. xamante ni seen dafa am kilim ci mag laa ngay tëdd da nga daan am sa passer amatoo ko mu jug taxaw giri bi dox ci suñ diggante taxaw naa lu mu gàtt-gàtt man deux heures de ci giri bi parce que sama xol mayu ma ma dem bàyyi ko ak tumuranke boobu te donte bari na fi mbokk xam nga li may wax seex rafle na fi mbokk waaye parce que boo nee Gambien la rek mm-hmm. dèjà. Mm-hmm. am na fi mbokk mais ref la na fi mbokk. Mm-hmm. te itam ma daal di ñëw ñu taxaw ma ne ko lan la mu ni ma dossier bi li ma ci jaaxal mooy dañ ci dugal affaire da damay dooleel góor jigéen. mu ne ma vidéo boobu daaw la woon dañ ko monté dugal ko ci biir dossier bi. li ma ko njëkk wax mooy dama ne ko seex bàyyil xel yonent bi dafa waxoon al kalimatu tayiba wax ju teey wax ju baax wax ju rafet sadaxatun sarax la. te tamit euh, nit. ak nu mu mel boole nañu borom alal ak alalam tëj. Mhm. dëgg la boole nañu nit ak xam-xamam tëj. Mhm. boole nañu nit ak dara darajaam tëj. Mhm. mais Yves nit fekk nañu ko mu yaru ñu dóor ko ba mu nooy ndax daa yaru ñu tëj ko mës na ko dégg ci àdduna. déedéet ma ne ko mais dafa am lu mu lay jàngal. ak yooyu ci saa si bi ñu taxawee noonu man tamit bugguma dem ñeewante naa ko. parce que bu ma demee rek. mën na wéet deux heures de temps laa wax dama kaa taxaw. giri bi mo dox suñu diggante mhm. man mom ak ak ki lay wax mu ne kilifa bu baax mhm. Abbas Mbaye mhm. Abbas diko wax communication bi nga wara def da ngaa habdir xam dire que tooñoo nit opinion nga togn faw nga sama yaram bi mi daw nak la sama auto nank jël si jaada bi may julle daan ni ko Abbas ndax may nga ma jox Cheikh si jada bi comme ça comme mu tek ci ay tankam wala mu julli ci wala mu teud ci parce que fi da fay mu ne ma amul ben problème tuuti moo des ndax sama oto am na njëgënaay yu ndaw yi comme ñun ay gàmmukat lañ léeg-léeg ma ko sama los nelawaale ko mm-hmm. ma bëgg a jël njëgënaay bi ma ni nit la may lépp nga jël lépp nit dafay am frontière ci mm-hmm. parole am ma ni naa bàyyi noonu mm-hmm. bi ñu waxtaanee noonu juste ñu waxtaan mënu ma suba la ñuy dem ak yooyu ma ne ko mais quel que soit alpha waneel yar waneel respect jéggalul noonu euh, def naa benn ouverture wax ci média euh, déggante na ak Mame mata Gueye ba démb moo ci mujj déggante nañ Euh, dina ñu def benn affaire mais bu ñu demee tuuti nga xam ne doomu aadama doomu adama la rek xam nga li ma la mhm. koo gis ci àdduna gis nga Yves mhm. bul ñaan yàlla tëj gor ak lu mu la mën a yoral ci àdduna boo ko wane ginaaw bañ tëj ko bu dee gor piir nga rek am lu na xarit sa xol doo nelaw wallaahi doo nelaw mhm. parce man damay wax yàlla damay wax ni ko yàlla maa ngi lay ñaan yàlla bu ma mënumaa ñàkk def nit lu ko naqari mhm. parce que nitu média laa mhm. ni may bëggalee nit noonu laay waxee lu arrangé wul nit mhm. te xale yi amuñu connexion bu doy 500 la ñu yor du ñu topp vidéo comment euh, titre la ñuy lire saaga la nday wallaay dëgg la ku bañ ku la saaga nag jamono yi bu nekk ci média bi dëgg la deuxième jour bi ma ñëwee ñu ni ma déplacé nañ ko plateau ma dem central central ma fa demee fekk naa fa ku mel ni Cheikh Gaye maa ngi koy woo sànq sax ku ma naw la mu ni ma maa ngi ci jàkk ji bu ma génnee dinaa la woo bi ma demee moom laa fekk central juste avant boobu maa ngi fekk ñi ma leex dix personnes yi ni ma wax naa ak ñoom anglais ba convaincre leen ñoom dañu bëgg dugg ci l'islam ma ne ko ah bon mu ni ma ndeysaan ma ne ko yàlla na yàlla def loolu peut-être dafa bokkoon ci sa dund parce que Abbas euh, déggal euh, DJ Yves mhm. wax ñett mhm. xale yi may àndal ñu may wayal man leen jomb naa wax ci tànt may fen ngeen xam ni oustaz day fen mhm. man ma xam ni damay fen ñu dugg sama oto bi ngeen xam ni oustaz li mu wax sànq dafa fen mhm. bu ma taxawaatee ci tànt di jàngale dëgg war ngeen maa xoolaat cheikh noonu mhm. ñaare bi tamit Euh, ki ma lay wax mu ngi may seetaan ndax mu ngi may bind message léegi muy Abbas bi ma lay wax bi seex di wax wàllu tuubal nit ñi kenn doxul suñu diggante ak moom mu ngi dégg mu ngi may dégg mm-hmm. te xam naa ni du ma ko fenal mm-hmm. seex ni ma dama leen bëgg a tuubal parce que convaincre naa leen ci anglais ci l'islam bu ñu bëgg a tuub mm-hmm. ma tooñ ko ni ko kon lii dafa bokkoon ci sa mission sama soxna mu ngi sama seede la ci bi ma demee central bi ma ñëwee comme gars yi duñu la may nga gis ko waaye ak respecté waxu jàmbur mais dinaa weccoog moom ay kàddu mu ni ma man ko yàlla dafa ñëw di nga dugg fi dafa bok ci sa destin mais na nga góorgóorlu bu baaxa baax communication bi ak yu bari nga defar ko parce que buma fi ñëw at tout temps kané ben nit lay fekk bu lay sét ak man kon ça veut dire que bari le wo fi tumuranke bi ñu waxtaan mu ni ma ban heure mo jot ma ni ko une heure et quelques du matin bobu tamit yag na fa mu ni ma war na len toubal 2h et quelques du matin li ma lay wax ni Cheikh gay moy sama témoin hmm. ndax moom moo fa nekkoon jour boobu pour accès kenn du mën a dugg hmm. ñu waxtaan sans ente kàddu parce que daf may dégg ma koy dégg mais amuñu droit bàyyi ku mu wax ak man euh, bi ñu defee loolu démb pareil mujju ma fa dem samedi parce que dama ne woon ci ay conférence ak ay hmm. gàmm démb juste euh, ay 11 heures ci guddi ma woote ñu ne ma si indiwaat nañ ko mu ngi waat euh, central ma dellu central démb fala nek nekk yàgg fa lol ki ma fekk dem jottu ñu minante sax ci cadeau mais comme ñom dañ may xam nitu media la may ex ni len an cheikh ñu ni ma dafa nek audition mhm. ci kaw mhm. ma Matar Gueye it sikuma ko ku bax la mhm. parce que mu ngi may waxat ay yoon yo xamni ni ma quelque soit alpha amna ñu ma wo set ci nañ ma waxtan nañ ak man parce que tar dina ma setan ni ma mais euh comme ça way le bo demé gisee ak mom ne ko rek na jéggalu bu jéggalu affaire yi dina gëna yomb man ko d'accord amul ben problème ci laa demee dem ñun ma seex mu ngi audition ci kaw. Mhm. ma toog pile de benn 30 minutes 40 minutes wàccul. Mhm. Mhm. waa ji ci boppam daal ni xaarama woo kilifa gi ndax dina la xam. ni ko Oustaz mohammed mbay moo ne ci suuf. dafa bëgg a gis seex. mu ni ko dafa nekk audition pareegul. ma ni ko du xam nga sama tur mu ni waaw. ma ni ko maa ngi lay ñaan cheikh nee ko bu wàccee. ne jéggalu. parce que nag ñi taxaw di ko laaj muy tontu ay nit lañu. ay doomu aadama lañu. Euh, naanul sàngara. violé wul. tuxul yàmba mhm. sàccul jaayul dorog mhm. ay kàddu la wax mhm. kàddu yooyu mu wax ni ah naka ni kat maa ngi jéggalu parce que yàlla dafa ne ci alxuraan xadija fala tuzakku anfusakum bu leen fëgg seen dënn yi de bu leen gis oustaz Mouhamed Mbaye mu sol garam bu bu kurus ngeen jàpp ni moo gën asan ndax asan benn bi mu sol attention de yàlla nee na xoolewu ma foofu de wa huwa a'lamu bi man ittaqa yàlla nee na man rek maa xam ki ma ragal oustaz Mouhamed mën na bàyyi ba trois heures mu nekk ci ay caaxaan. Mhm. mais Assane mi sol beede bi ñu naan xooloo waa ji booy diskoo la mu bàyyi ba guddi. Mhm. mu jàpp julli parce que mbiri nekkul ci jëmm. inna allaha naka yàlla. Mhm. la yanzuru du xool ila suwarikum ci seen melokaan. wa amwaalikum ak seen alal. walakin waaye yàlla kat yanzuru day xool ila xulubikum ci seen ay xool wa afaalikum ak seen ay jëf. mais nit kenn du ko gisee. ci benn melokaan nit nag sañ na juum. nga ni ko cheikh. Sénégal da ngaa juum. Mhm. mais damay gis ñu bari ni ma pourquoi que ngay fréquenté gars yu mel noonu. Mhm. mais diine bu amul loolu amatul sens. dëgg la diine day fekk kuy mbas. Mhm. parce que bu fekkee yonent bi bi muy ñëw. innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq. yàlla dafa ne ko bu ma la yónni dama ñëw ngir nga indil ma complément wu gars yi. ñi drapé. nga tegaat leen ci yoon. bi ci des dama laa yónni wa maa arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiin. dama la yónni pour yërmande boo amul yërmande yow yonent bi kon jaratul ngay woote. fekkal gaa ñi ñu ne ci yoon bu baaxul mhm. pour nga am sa njariñ nga dévier leen indi leen ci siraatal mustaqim bu boobaa kat ñu ne lislaam kat njariñam nangam ak nangam la mhm. waxuma ni bu nu tëj kenn mhm. mais Yves avec sursis ci yu mel nii lañ war a def nit ki ñëw nga ni ko dangaa wax nangam ak nangam ak nangam wax ji ngay wax lislaam du du julli ñi ñoo rek ñoo fi ne am na mm-hmm. yeneen diine yu fi ne mm-hmm. mais l'islam am na fi doole mm-hmm. kon comme suñu ay xale dañoo nekk jamonoy TikTok dañoo nekk jamonoy sinap nangam nangam cheikh sa wax ji amélioré ko na mujj tey nga waxee nangam boo ko waxatee ëllëg kenn du la àtte dañ lay tëj même bu bàyyi bu maam Maxtaar Gueye waxoon ak moom discrètement keneen wax ak moom discrètement pour man am na lu gënoon yomb def na ko mbooloo mi nañu daje ni kaay ñu dem seeti ko pas benn person di wax ak moom téléphone. Mhm. ñu toog waxtaan ak moom ni ko lii kat bëgguñu ko. Mhm. lii la ñu bëgg. Mhm. mu ni d'accord bàyyi naa. ñëpp ni gis nañ seex kat démb wax nañu ak moom bàyyi na. mais du yoon. Euh, donte man du ma nit yoon. Mm. mais mais mais prison war na wartane lu yomb. prison kuñ fa dugal. jël nit rek buñ nee la nangam la def rek. war ngaa taf sa gémmiñ ah loolu prison jar na mm-hmm. Mm-hmm. mais bu fekkente ni ay kaddu. la ñuy mm-hmm. jëlee nit dugal prison am na ku bëggoon dugg ci l'islam mais bu xoolee li danaan est ce que kon l'islam nekkul diine joo xamante ne dafa. agressif amul tolérance te l'islam seex yàggul def na fi vidéo ni oustaz Mouhamed Mbaye xamul dara. wala déet seetaan nga ko. <laughs> ci lendemain bi lendemain bi laa wax de. moo ma toggal suppu añ. vidéo yang ni sama téléphone mom ci bopum ma paré mu ma oustaz amul soble de mhm. bu ñu ba ci kanam dina la tolérance yu yonent bi doon jàngale macha allah nga xamni nga xamni ni kenn du mom loolu introduction la won par rapport ak euh, voilà li ñu dab ci biir émission bi mais bëgg nañ ñëw quand même ci wax ji li indi tay ñu ñu yobbu ko ci euh, ci yoon ba placé ko sous mandat dépôt euh Hassan mhm. euh en tant qu'artiste ah. hein acteur culturel mhm. euh, euh leader d'opinion parce que yaa ngi jiite ay ay mbir. Mhm. tey boo déggee yu mel nii tey en tant que artiste. Mhm. ban ban ban boo ko yóbbu yow. maanaam su ma déggee ni ñu jàppee. kii bi en fait. Euh, ak li mu def ba it ba jàpp bi ñëw. waa xam nga Yves. adduna mhm. euh, dafa dafa dafa doy te dafa am loo xam dama koy faral di wax. souvent daf ñoo bett. moo tax mu mën ñu. muy internet.

non danga naan ma lii nu mën nekkee te mënoo di tontu ñëpp. mënoo tontu. Mhm. te sénégalais mooy koo xamante ni tey bu la kenn waxalee tontu woo ñu ne ah, ah saa yi da jekku. kon dëgg la mhm. bu ñaar waxee di nga tontu ñeneen. boo ci mhm. tontuwul la mu waxee dëgg na ñëpp bàyyi kii. dëgg la moo tax Youssou Ndour neex ma. ndax du tontu. dafa comprendre. dafa comprendre. tey jii lii ko dal kenn yéenewul nit kaso. sa sa sax yéenewu ko kaso. wallaay dëgg la. mais yoon dafa am ci réew. ndax nag. mënoon na ci réew. nekk ci internet bi. des fois nga wax loo xamante ni si oustaz mbii xam na lu mu war a wax te munoon na ko wax te waxu ko. Mhm. dafa am yoo xam dañ koy wodd. Mhm. dañ koy defar. Mhm. ñun Sénégal lu ñu mënti ñàkkit même bu ñu demee ba amuñu repère. am nañu diine ngi fi. jumaa jàkkaa ngi fi. këru diine yaa ngi fi. sëriñ saan fi. ñooñu dafa am ñoom nu ñu toll ci ñun. Mhm. moo tax booy wax toujours rek. Mhm. donte lu dëgër la sax amal noo koy waxee. Mhm. mais wax ji bu gënee rafet mooy gën. mooy gën allah man day xaw ma ci nag dossier bi au fond. dama ci for ci wewu bay. ci yenn yi nga xam te ni ñee nañu lii moo tax ñu dugal ko. mais wax dëgg yàlla day. dama koy ñaan moom comme ni oustaz waxee léegi nii na jégalu ndax nag nit. mi ngi xëy chaque jour yaakaar ne mi ngi ci yoon te nekkul ci yoon de parce que xam nga ñun chaque ñu def erreur bi ñu a kaso wallaay te dañuy bàyyi toléré ñu tey xoolal tey li xew ci internet bi c'est en parlant de moom sax hmm. moo tax may wax gis nga état hmm. damay interpeller état hmm. lii mu jàppee tey euh, Cheikh Cissé dugal ko ci kaso bi suba na jug ci internet bi jàppaale xale yi jaay garabu yokkutaat mhm. produit yu yokk bopp mhm. xeesal bi mhm. ak produit yu yokk awra yi gis nga Sénégal wallahi nit a ngi def lu mu xamul te tayu ko parce que li muy jël la volet yi mi ngi ci dëkk bi ñu ngi ko fiy jaay état na interprété maanaam te ñu koy def ñëpp ay xale la mais volet yi fi muy jaar ba dugg mais fi muy jaar mais parce que fi muy jaar ba dugg yomb na xam nga la la gis nga dafa am loo xamante ni si ca commencement bu la commencé ndax nag aussi Yves dafa am fooyam oustaz am fu ma yem mhm. ma am fu ma yem mhm. ku ci ne fi nga yem boo dajale ci li nga am mën nga ko dajale jox nit mhm. te loolu mi ngi jóge ci kaw du ñu siite nag mais xam nañu mais doomu baadoolo yi toujours ñooy sonn parce que ñun amuñu fu nu waxee mais loolu na ci état jóg xale yi koo ci gis taatam yaa ngi mel ni bangu mbedd ma ngay diree kuy dox di ah. dem <laughs> taata ma ngi mel ni bangu medd parce que mi ngi naani garab ba la mu yor la wallaahi li ma wax nii du ay caaxaan peut-être reelu na mhm. mais c'est très important góor ñu baree ngi dox di yaas yaasi mhm. wallaahi ñoo gën a të garab gi mhm. te pourtant yaakaar nañu ay góor lañu parce que ñu ngi leen di jox ay doom yoo xam te ni ay produits yoo xam ne ñu ngi koy utiliser ndax xamuñu effet bi effet baaxul sax te yàlla bu sàkkee doomu aadama mhm. ku ci nekk dafa am fu mu la yemale mhm. bu demee bu bool ak jigéen mhm. c'est parce que mënal nga ko dara boo ci yokkee la dara rek yaa ngi te loolu moo ñu dab xale bu ndaw mooy toog ci internet bi jël def directam di wane produit yi te li ma metti Sénégal mooy célibataire yi. Mhm. ñooy coaché marié yi. dëgg la bàyyi barki téere ma ma ma taw téere ah ma ah non kon kon kon y' a un problème. c'est vrai man en tant que porteur de voix. man am na loo xam mënatuma ko parce que gis nga tani nii. li may wax di def thème ci télé bi célibataire mais mais waaw. nan la garab gi boo ko naanee balaa ngaa tëdd une heure de temps. koo euh. jàpp ndeyam sax euh. waaw moom célibataire la. daa ko naan ba xam lan la. wala ah, ah. garab yi ñuy yor yëpp di ko jaay amul uh-huh. fu ñu bind mode d'emploi amul notice ñoom ñoo ñoom ñoo lay wax noo koy defee uh-huh. mais y a problème uh-huh. y a problème kon donc état Mame Matar man Mame Matar <laughs> yàlla euh, du ma ko ŋàññ et ku ko fonk la te li muy def yëpp wallaahi daf personnalité daf ko teg ci yoon te dëgg nag dëgg boo ci nekkee da ngay tegu ci yoon nga safaanoo ñu jël tegal ci yoon dëgg la mhm. mais Cheikh Ahmed Cissé am na lu mu wax ci loolu waaw par rapport ak euh, Mame Makhtar Gueye mhm. parce que bi mu ko avertiré moom dafa génn rek benn réplique mhm. ne pourtant am na diw doomu kilifa diw bu wax loo xamante ne tey bu ko waxoon ci ne dëkk nii ñu ma def ni loolu ma waroon def loolu lañ ko waroon def mais li indi loolu mhm. mooy internet bi rek mhm. gis nga tey bu amuloon fu mu tontoo fu mu mhm. waxee du am problème bi mais comme léegi euh, caméraman ak télévision dafa yomb léegi da ngay taxaw yow yaay nekk sa caméra sa caméraman bopp yaay nekk sa metteur en scène bopp yaay nekk sa perche sa lépp yaa koy nekk nga wax dugal ko directement dëgg la loolu moo indi problème Assane sénégalais moo lay wax ni la sa waay da nga neex da ngaa rek nga daal di jël. ñu tëj la kaso ñun la natt loo mu ñëw. waaw <laughs> wallaahi wallaahi. c'est ça sénégalais da lay ruux. dëgg la sa waay non sa am fit. c'est ça da ngaa am mhm. ko wax dañ lay ruux ngay dem ñu lay ruux ngay dem ñu lay ruux ngay dem te olof nag baat bi wax ak ay dëgg fi mbaxane doonee. benn benn mhm. c'est-à-dire que sa moroomu doom wala xale bu ndaw moo naan la toogal fii. fanaanal fii gis nga Yves nga dem kaso rek. wax ma mhm. kaso mais nga dem central wala nga dem. Euh, garde à vue rek. garde à vue nga xool nit ki nga xamoon nga xool ko. ñam naa ñam naa xam naa li ci garde à vue. te garde à vue yaay raw xale bu yor bi baron. wala garde à vue yaay raw xale bu yor bi baron. wala ku romb xool la ba pare dangay mel ni ku ne yow mal xiyaam. wala doo too xàmmee bi ci. man Yves ramasse nañ ma bi may dénkaane. ramasser ma def ramasser. non c'est vrai ak ah, kuma mm. de. di dénkaane di mel ni kuy dee di dénkaane. naan dama mm. yaa nekk ku ko bëgg laa di dénkaane. bi laa moo tax moo tax gis nga porteur de voix yi mm-hmm. Mm-hmm. dafa dafa dafa métti. parce que tey li nga bëgg di jàllale. Mm-hmm. bis boo ko jàllale rek. am na koy tooñ. pour ah, moom da lay ŋaññi. gis tey li ma wax nii ci xale yi produit yi ñu jaay. ñu ngi ci am weccit. mais yaakaar nañ ne ñoo na ci dëgg. te ku ci yoon jàppoon tey nga gis ñëpp ne ah dañ ko war a baal. et pourtant ngi lor doomu aadama. Ah. nit ñaa ngi dee de petit feu. Sénégal ñu ñu artu mais bu ñu nee am li ñuy naan jéggal ko exactement te duñu atte quoi. exactement mais mais Assane. Cheikh lu loolu lay jaay. waaw Cheikh Cissé. musuma kon ko lii nangam lay jàpp. Mm-hmm. parce que sama yoon nekkul mm-hmm. mm-hmm. sañ sañu dugg sama nekk. ma soxla ne xaal ko fële. mu ngi nelaw. parce que dafa fanaan gàmm wala nangam. mais pourtant day day jaay affaire ngóora mhm. mais damay xam ne nit ku ne nan sa boppam is nga olof day wax benn wax bu ma gëm bu ma gëmul mm-hmm. euh, taal bu yàlla taal waa taalu yàlla lu soyoon ba nga sànni mat yàlla la ko yàlla mi yor almetam ak ak sam am yor ay mattam yàlla la gën a xam mattam li ko war a taal ça veut dire yàlla am na lu mu la defaral mm-hmm. Mm-hmm. gis nga euh, Yves ku fawul mën ngaa téye sa jàmbaar ba màgge taal ak moom la waaye ku bàyyiwul yor paan robinet boo gis ibbi dinañ la jox facture boo mënta fay yaa raw SDE de wax wala fonte ñuy ñaan rek ndeysaan moom daal li ñu koy ñaan mooy xam naa ne peut-être dina jafe trop mais ñi xam dañ koy seeti mhm. pour mën ko di gis nan ko ñaan leen rek na jéggul ñu baal ko te bu génnee bu mu def lu mu defal mhm. parce que aussi tamit li mu def mhm. bu ko keneen defal tamit day wuy ji te yoon aussi dafa nekkal ñëpp ah. cest à am na yoo xamante ne sax xëy na bosom moom moo siiw. moo fës mais chaque jour ñu yóbbu mais mais Yves Yves xam moo. bosom moo siiw bu la ñëpp di teg bët da moom bi mu démarré. commencé na gis ay ennemis. Mhm. et ça a commencé depuis ci waa ji amoon problème ak xale bu jigéen ba. waaw. sénégalais di ko teg bët. Mhm. gambien yi ak gambien di def vidéo di ko yónnee sénégalais yi. Mhm. boobu la waroon a moytu. ndax amoon na fi nag benn quoi. mu demoon ba benn famille serigne di ko dóor dóor yi mm-hmm. am mm-hmm. ñoo xamante ni man lo dafa metti woon mm-hmm. mais bi ma demee ba commencé découvrir la personne ci laa ne mais kon kii nekkate ni la mel mais na wàññi du nit ku bon dé parce que xamulu ma ko dara mais na wàññi li muy def déglu ñu baal ko mu génn te asan ah, gis nga nit nit dina saaga wali Seck yaay jaaga du ñàkk dina ma seetaan parce que lu way di wax télé na wóor nit wax wali safaan ma fexe ba am numéro mm-hmm. wala mu wax ci keneen safaan mm-hmm. ma ne ko diw pourquoi que nga wax nangam nangam nga gis bu ñu xamee ne man la famem dañaan ko jox ñu oustaz Mouhamed Mbaye mm-hmm. euh, am na koo xam ne chaque jour danaan saaga di wax yu ñaaw mais yaayam dafa jël téléphone bi li ma oustaz dama lay seetaan chaque jour lii tere naa ko ko ay nijaayam a ngi nii toog ay magam ci lañ koy wax nii ma wax ak magam wax ak nijaayam gis nga léeg-léeg am na kilifa goo xamante ne ñaankat lay wax parce que man <laughs> ñii ne ci internet bi. déglu defuma leen ay sëriñ. Mhm. parce que ku gis nga coupe du monde. Mhm. ñi ñu war a fay. fay nañ leen ba ñu tëju di ñaan ñi fi ne di taxawaalu dinaa ñu waa léegi ma tëb foofu mais yaay jaaga yenn saa yi damay sentir ni sës na mhm. ndax dinaa ko ñaan mbir mu ni ma Mouhamed bu bugguma nga ñaan ma ci nangam mhm. yaa ngi dégg parce que neexul mhm. mais kii wax loolu dinaa ko artu ni ko nangam bi waroo koo def ça veut Sénégal comme scénario la nit ki day signalé gauche jàdd droite da ngay gis ku woo fekk leen kasi la bëgg na ko recevoir wala yaayam ni ko sëriñ diw bii xas waali sekk daf la bëgg a gis munu ma bu duggee sama kër dinaa ko toroxal mhm. ma ne ko yow soppee yonent bi nga mais dama lay ñaan munu ma du ma ko def Mouhamed mhm. te itam dama koy comprendre yenn saa yi Pawlish Mbaye mhm. def na ko su noonu wala ma gis benn vidéo am woo ko téléphone ni ko Pawlish yow da def fala lan lii ngay def pour lan la bàyyi ko munu ma d'accord bàyyi naa ko bu taxawoon fii nga laaj ko ma tax muy julli parce que maa nan ko ni ngay def ni ngay def bayil nangam ba fum dem daf koy wax ak kenen ak kenen ak kenen noonu ma leen di def noonu la def Cheikh Cissé rek machallah khadija euh dañuy ñew nak ci problème mu Cheikh Ahmed euh, Tidiane Cissé bi nga xamné doomu ndey oustaz la euh Yves le problème c'est la communication bi nga xamné ne télé ñoko yor parce que site internet ci bari na trop comme l'a dit tout de suite euh, Assane mhm. donc euh, dañuy jël micro ku nekk ñu talal ko ko mhm. pour mu wax mhm. amaana bi problème bi dooree. Mhm. ñu nekkoon ci intervention yi. Mhm. suñu jël woon ay micro di ko fekk ci këram. Mhm. muy gën di am fit di gën di wax tey du yegg ci problème bi. parce que

amna lo xamne do koy def da ngay xol bu baakha bax di xol ak nit ñi ngay àndal parce que man duma nek ni oustaz lay àndal di dem di taxaw ci tali bi def naka su non damay ànd ak oustaz damay xol oustaz ci limi def ci lu bax may ànd ak mom jëm ko roy c'est vrai que mi ngi def ay business am dug nak deg nañ ko ci problème yu dul jeex à Kaolack mm. jógee nañ dis ko ci mm-hmm. donc il est bien renseigné mm-hmm. ministre de l'intérieur il est bien renseigné mm-hmm. tamit à la fin place ah, de passage am na loo xam ne nag lu ëpp tuuru qu'on la vérité. Mhm. nous sommes des porteurs de voix. Mhm. ñun tey ni nga koy waxee ci affaire xeesal yi. Mhm. mi ngi lëmbee dëkk bi. volet bi mi ngi yàq xale yi. xale yi ñu ngi yàq seen bopp ci guddi almadi yi. soo fa rombee doo mën a jàll. xeesal bi ñaata jigéen ngay di seen jëkkër fase nañ leen war a bàyyi nañ leen wala dara parce que seen yaram bi dem na ba dépp ba yàqu. léegi nag ñu bëgg a jaay bàyyi kii duñ ko bàyyi comme li nga waxoon c'était simple. Il a tout. Il y wax loo xam ne kenn sañu ko wax. Mm-hmm. parce que nous, nous sommes des musulmans. Nous sommes des pays qui ont eh, pays laïc Musulmans sont ngi mm-hmm. mais chrétiens yaa mm-hmm. mais d'habitude problème est duy am sax. nous may dans ci cadre. musulman yi rek nga ciy dégg. Mhm. Mhm. christianisme bi mhm. yar nañu seeni nit. jàngu bi yar nañu seeni xale. suñu taxawoon fii doo leen xoolee danga naan kii c'est un chrétien. mais ñun xamuñu fu ñuy taxaw. parce que dañu jël éducation de base amatul. kenn yaratul kenn. dangay nekk di xëy di liggéey bàyyi ji dem ñuy wuti loo lekk. donc xale bi mooy yar boppam ci mbedd bi. ci li muy dajal ci lay yar boppam. tey mën nga juddoo benn jàmm gën. mais taxul tamit nga war a bon mhm. wala nga war a jël yenn yi mhm. waroo jógee tamit Gambie ñëw ba Sénégal di fi def yenn yi qu'on se dise la vérité mhm. parce que xale yi ñoo lay seetaan parce que wax dafa kenn yow sañoo ci jaar yow DJ man sañuma ci jaar oustaz du ci jaar mm-hmm. du ci jaar mm-hmm. sama day du ci jaar parce que mm-hmm. amul sens yow tooñ nga mais ñëwal taxaw nga ne man maa tooñ maa wax yi rafetul dootuma ci jaaraat am parce que sexualité Sénégal ko la vérité taxaw fi ne émission sexualité tu n'oses pas et tu pourras jamais le faire tu le fais tout de suite la dictateur en bas bindal sa boos pour daal lay takkal mënatu yóbbu la parce que xamuñu loolu. Mhm. sexualité dañ koy nëbb ci biir néeg. Mhm. moo tax nit ñi sëy bu ñuy jël jigéen di ko muur di ko muur guddi. Mhm. pour yóbbul ko jëkkëram. kenn du ko muur bëccëg. mais doo taxee wax yenn yoo xam ne dafay flagrant ci ñi lay seetaan. ñi nga xamné seeni doom ay xalé lañ donc li moy xalé nañu pervertiru mhm. nañu def lu leen neex mhm. kon bu xalé yi denc seen virginité mhm. parce que limu wax dafa ëpp ñaanaluñ ko ko nak franchement parce que on est des sénégalais diggante Sénégal ak Gambie ben dëkk la mais tamit dañ koy ñaanal li du ci joggé mu baalu àq. Mhm. ndax Mame Matar Gueye dalay topp ba ci miir wis bi. Mhm. nga jox ko café mu naan du bàyyi. nga tàggal ko was du bàyyi. da koy jaral mu téye cartable am di wër. police bu ñu la teg mu xëy ca beneen ba daal la gën a gont gën laa gaaw tàgg. ba pare gën laa mën a miin télé gën laa dàq wax. gaaw ci conférence de presse ah? non Mame dafa am temps. gaaw ci conférence de presse ñu ngi koy nuyu suñu papa jooju parce que moom. bëgg na guddi guddi gi. li nga defee nii mi ngi seetaan. day day woote. léegi mooy woo ñëpp ngeen di xam nga li presse bi di dox dox la balaa ngaa laaj per jom mu jox la per jom avant ngaa ñëw. loolu mooy ñëwaat moom xaritam la xaritu bi affaire Wally Seck bi. bu dara safu ko. amul xaritu Thione Seck la amul ay Thione Seck clip rasul ci ñun la ko defee woon yoonam nekk. donc ñu ñëw ci ñu ñëw ci loolu donc ñu koy ñaanal yàlla na génn parce que kaso kenn du ko yéene nit nit ku la yéene kaso war a nit ku la mm. yóbbu police mooy sonnoon à vie parce que mm. loolu ñu xam Sénégal xam nga mm. loolu dañ naan du problème amee nañ ko mëppal mëppal mhm. nañ ko wootante ñu waxtaan suñu biir mhm. c'est vrai oustaz bi coow li jógee avant ñuy dem police man Matar mënoon na jël ñeneen ak ñeneen ak ñeneen woo la mhm. woo keneen bi oustaz Pape am woo keneen ak keneen yàlla am na lu leen may ci diine ngeen ñëw toog ak moom waxtaan ak moom ne ko lii ak lii nga def da rafetul waaye moom tamit dafay niroog koo xam ne tamit loo ko wax du dégg c'est xam nga xam nga affaire bi li gën a aggravé affaire bi mooy bi affaire bi amee man bokk naa ci nga xam ne sa waay avant sax avant muy wax affaire u préservatif bi ci ci jumaa yi am na lu mu fi njëkkoon wax. yii wax naa problème bi amee. Mhm. ma ne ko léegi sa waay. bàyyi sa tànk rek jël sa jël sa jaay affaire yàlla mu ngi yaa ngi koy naan li may am sama garab yi nii sax. kenn fayu ko. kenn fayu ma ko. toog mu jaay 500000. jour mille 1 million na jour ma lay woo ma lay woo moo saa yi parce que ngeen baal ma jour biñ ko bi mu nekkee central. Mhm. ma nu plateau ak xale mi mhm. xale mi nga xam ñooy jaay ku jigéen ki ñëw ku góor ki ñëw mhm. euh, journée xam nga lu mu leen di jox mhm. waxuma ñoom ñaar de ñi fay liggéey ñëpp journée dix mille la leen di jox ah. ma dégg muy wax ak booy bi mu ni ko comme affaire yi doxul góor a gi jar na de comme parce ah, parce que góor xam nga xam nga tax nit ñi ah, ñoo gëmul ni li li Assane doon wax léegi sama mag nit ñi ñoo gëmul naturel yàlla yàlla damay wax ni kër gu ne robinet bu ne. Mhm. est-ce xam nga ni sama facture ndox. Mhm. bokkul ak facture ndox Macky Sall. Mhm. nit ku nekk nu sa daraja tool noonu la sa facture tool. kenn ku nekk laa la wax na lu la yàlla dénk. kenn ku nekk ni sa ruu noonu la sa bas tool. da nga koy doyloo nit ñi nanu bàyyi ñambaas ñambaas bi mooy dem ba indi yolam teg. mais gars yi dañu yàqul dara ci sër de. yàqul su ko dul yëpp. ñambaas <laughs> léegi nag sana léegi day yëpp. très bien gis nga DJ day xoolal seex mu daan jaay. ñi fa ñi fa ne am ay jakarta am ñëpp di joxe journée dix mille mm-hmm. bi may mujj maa ngi dégg mu naan booy bi bu dee néew ma fi affaire yi euh, doxul bu baax jox leen journée cinq mille nga jox leen ko semaine bi nga jox leen vingt cinq mille te ku yowel la ci xaalis xoolal kii xam na xam naa ci seex moo gën a xoolal moo gën a tabe tabe ku yowel la ci xaalis moo gën a yëwén yëwén am problème voilà mm-hmm. moom boo gis nit boo gisee du du du teraanga lañ àndante parce que man sama dund bokk sama dund mhm. maa ngi liggéey ci télé mhm. télé laa toog di wax mhm. du may seeti ay nit pour nañu ma may xaalis man Yves li ma gëm mooy lu liggéey di maye lu liggéey di maye naa ko rayanteel sama may oto bi bugguma tiitaroo diw sama ay dañ ko koo may dama bëgg jënd ko sama xaalis oto a jënd a jënd ko ci Mhm. waaw kër gi may moom mhm. ma xam nañ ma may terrain nañ ma mais naa ko tabax man ci sama mhm. xaalis donte day raam téeméeri ak ci kanam man noonu laay dundee parce que comme damaa am ku ma suivre muy yonent ma lu neex nit xooluma lu naq nit mamataar gay ba démb moo ci mujj dañuy discuter mais li nga wax mamataar nit ku baax la coow li coow li mooy du moom rek jamra mamataar mën na ne Euh, mën na nekk mooy tête euh, bi quoi maanaam moom a ci boppam mhm. ça veut dire ñoom seen taxawaay taxawaay brouette la xam nga mhm. brouette daa am pono kanam mhm. mais brouette lu mu baax baax boo ko yëkkatiwul doo waaw kay Mame Matar dañ ko yëkkati mu dem mais bu ngeen dee communiquer après yow da nga koy mujjee yërëm ba doo too ci sori parce que bëggul sentiment bu bu demee ba ne ma Amet na jégalu rek na jégalu nañu ko baal li koy wax man moom laa koy wax saa yu defee sorti man ko Mouhamed man de am naa lu ma naqari ci yow man laa jël kii noonu la amee kersa. Mhm, ma ko gis nga euh, site sànq xadim yi moo ko wax pour ma ñëwaat. mbirum site yi. voilà gis nga site internet yi. Mhm. ñii ñoo leen di woo ñu dem. Mhm. ñenn ñi parce que nag ça boo leen wooy doo fay. bu ñu lay fekk si doo leen fay. waaye ku leen woowul du ñëw. dëgg la ak internet yi. seen bulle yooyu. seen gis nga. sapeur. boo leen woowul du ñëw. sa buntu kër nay lakk. bu ñu déplacé bu ñu dem duñu la loo ñu jox mm-hmm. mais noonu la site internet yu bari mel am na site yoo xam tant que woowoo leen duñu ñëw bien mais ay site lañ léegi da dem ba seex kii tourné moom émission day bëgg a feeñaale day obligé den ak moom <laughs> parce nit ñaa ngi koy bàyyi xel sa gis naa la après nga dagg ko mm-hmm. mais li ma la sànq ni la loolu buzz la ñun ñun ñun bu dee nitu télé nga mhm. bu dee cent personnes nga xam mhm. ñaar ñoo la ciy teral te ñaar ñi lay teral sax duñ la seetaan amaana benn yoon lañ lay xool ci télé rek mhm. sopp la gis lay seetaan ñëpp xam ne lu ñu lay doy eh waay DJ Yves ngi nii taxaw photo ak nit ñetti nit ñeenteelu nit ba xam nga lu mu lay man ni la yoruma gën a sonn yoruma Mhm. non loolu dafa yoruma nga xam ko sagam saagi rek xool demal nga xooli nitu télé man yoruma xanaa xamoo ne nitu télé mhm. nitu ah, ah. nitu télé mhm. la mais nitu télé ci réew mi yaay ennemi public ndax sénégalais baaxewul gis nit ku ma xam télé Mm-hmm. bu toogee jotaay mm-hmm. bu la wane dana ah moo diw gis nga moo diw boobu dafa am lu muy tekki mm-hmm. da koo xam ya kii de du dara sénégalais dafa gaaw ci loolu dëgg la moo tax tey boo siwee <laughs> boo siwee boo boo siwee nekk nitu tele uh-huh. boo bañee di weer sa bopp bul génn génn yu bari ndax léegi sénégalais yi koy tasanteel li muy njëkk def ah if jox ma dara nga ne ko yoruma dara mu ne xamoon naa ko dama ko doon seetlu. nit la yoruñ dara en fait moo tax yàlla moo tax moo tax ñun li ñuy ñaan toujours rek. Mhm. yàlla na suñu borom musal ci cat ak làmmiñ parce que parce que ñun. Mhm. suñu dugg kasoo gën a gaaw. Mhm. ki toog kenn xamu ko. ndax tey mën naa ne euh, wax benn moo bu ndaw. internet bi ñëpp naan ah. mais il a raison. procureur woo ma. parce que ñoom ñoo wax wax procureur woowal di. woo ko mais indirectement. et pourtant ñoom. dañ leen di bégal mhm. bu dee côté musique mhm. la ñuy way la ñuy fecc mhm. bu dee théâtre ñun li ñuy joué donte lu bon la ñoom loolu la ñuy bëgg di ko dund et pourtant bu ñu génnee ñoom ñoo ñuy taxé def katu yu bon yaa ngi nii moo tax ñun maanaam ñun suñu borom rek ñu teg loxo mais ñun bu fekkoon nit moo ñu teg loxo kon weer noonu moo tax yàlla nu yàlla sàng mbàjjum sutura ndax bu la ko sàngee. Mhm. loo tëree di tëree di sa tànk du fay. wallaay le milieu du du du cinéma. hein ñu def transition dugg ci milieu cinéma bi. Mhm. tay yeen aussi même chose. Jamra aussi ben moment songon na fi wa infidèle infidèle. ah muy pro mais dañu gis dañu pro dañu persister quoi. c'est-à-dire delluwuñu ginnaw mais dañu gëna insister. c'est comme si li ñu c'était normal quoi. yow mi nek acteur ci bir infidèle. waaw xam nga xam nga infidèle dafa ñëw ci heure bi ko sénégalais yi xaarul woon mais boobu sénégalais yaa ngi koy dund ndax infidélité dafa bari Sénégal Sénégal mhm. infidélité dafa bari trop mhm. dëgg la parce que léegi mooy sànq sama commencement wax mhm. kenn xamatul kii kii et qui fait quoi kenn xamatul Sénégal ci kenn la neex xam nga lu tax ndax ñu baal ma muy góor muy jigéen kenn yamul ci kenn du ñëpp nag. Mhm. mais presque la majorité. <laughs> bu ñu xëyee. Mhm. ña ngay xool nu ñu amee ci sàmba Paate Demba. jigéen ñi ndegam léegi femme mariée yi sax. ay jeux de lumière la ndegam léegi ndegam léegi femme mariée yi sax. ay jeux de lumière lañ. ay dañuy jël courant te duñ leeral nekk. dëgg la mënuñu tàkk tam benn place. waaw dafa yi parce que xam nga li indi loolu. gis nga uh-huh. Yves. Uh-huh. pauvreté yàlla na ci yàlla musal. surtout ah, pauvreté mentale. mentale mm. gis nga tey bu fekkee ne amoo revenu. Mm-hmm. liggéeyoo par weer. Mm-hmm. nga bëgg sol greffage trois cent mille mhm. louer appartement mhm. di dund livreur chaque matin midi soir mhm. di fay livreur bi fay la mu lay indil te looy lekk di ko snap yor iPhone 14 yor 12 yor 13 te sa kër nday ña nga fay daxin doo dem togg daxin nga sinap ko jamais mukk ñaari xobu salaat yeeg benn rëddu ketchup bi ngay filmer naan ah ku lekkul lii moom def seen i façon yooyu ñun moo tax tey Sénégal metti ñun la ñu jël def ñu benn cobaye parce que nous, nous ñuy joué. Mhm. booy seet du mën a dunduñu mhm. mais du pas. koy c'est des textes yu ñu bindal. Mhm. ñu répété ko dem tourner loolu après dem défiler ok ok loolu c'est pourquoi c'est pour éduquer les Sénégalais parce que aussi. dañ doon wax la sexualité. nous tous on est nés par la sexualité. mais qui nan dañ ko teg mais am na ci ñoo xamante ni si tey ci ustaas du du du du du wedd li may wax mhm. yonent bi dafa bari ay façon yu wane nañ nañ ko jàngalee mhm. am na ñoo xam booy jàngale ñoom wax ju nànk ngay wax ñu comprendre la ngay wax mhm. am na ñoo xam ne il faut ngay fëgg am na ñoo xam il faut nga xeex ba dugg boîte vocale ñu soo am na ñoo xam du ñu mës a comprendre parce que il faut du tout pour une société il faut du tout pour le monde pour créer le monde te noonu tey maam maam maam euh, Matar bi muy dugg di euh, infidèle mm-hmm. Mm-hmm. certes jël na temps mm-hmm. xool na mais dafa xool titre rek song mais eggaliwul film bi dafa xool titre song rek song yóbbu ci yoon yoon arrêté léegi boo gisee waa Evenprod continuer c'est parce que ñenn ñi ñoo suivre euh, film bi xam ni film bi am na lu mu jàngale man tey doguma leen wallahi azim ak waxtu bi mhm. dem naa ci benn société dal ci benn femme dafa am ci mën na ma non kii du moom sama soppee ngi ni mhm. laa yow de damay woote sama jëkkër mhm. insiste jotu ko mu ne ma dinaa la xamal dara maag sama jëkkër wallahi ak waxtu bi bon tu es mon frère acteur nga dama lay wax dañuy toog ay weer du ñu jokkoo mais yow sa séquence bu ñëwee wax yi ngay wax daf ñuy incité loo ba des fois mu jékki-jékki na sa waa ji nee na lii de wax yooyu diñu jàpp ba ñu xaw a am feeling et puis voilà ma ne ko sérieux mu ne waaw ma a ko ah bon parce que mhm. man jàppoon naa ne li may joué mhm. comme ni ñi nee nañ dafa bon ci télé bi mhm. mais bu ma génnee nit ñaa ngi naan ma yaa ko yor di photo man di film mais ndekete femme bi wax na ma dëgg kon donc am na lu muy jàngale te am na lu bari nag aussi loo xamante ni aussi dëgg la am na ñu mu yàq parce que am na nit ñoo xamante ni moom lu ñëw yóbbu leen da leen mais yàlla mi ñu tiim xam na ne infidèle tey booy xool boo jëloon oustaz léegi mu wax ci diine li yàlla wax ak yonent bi

pour seen xaalis di dugg. parce que su àdduna dafa am ku ci nekk ni ngay wutee xaalis. ñun nag loolu nag tey jii waa waa Evenprod peut-être boo leen jege woon dinañ la wax plus de détails. mais man d'après li ma ci xam. mooy que en tant que acteur. mooy que ñun li ñu joué loo du loolu la ñu waa Evenprod du ñu dundaloo. Mmh. wax dëgg yàlla soo paree si mi nga sa yére dugal sa saak.

waaye mënoo jur doom yor ko les moye sont pas nga xëy suba bëgg koo yar mënul nekk parce que nag boo ñàkkee da ngay néew doole te dafa am fooy limité ndax lu nit mën a wax ci tamit yar doomu aadama non danga war a yaru danga war a tey boo amul lool lekk sa wax du yàgg léegi boo xëyee amoo loo jox sa njaboot ñu génn dem wuti ko ci iib ci asanloo ci mm-hmm. usaas bu ñu ñëwee teg ci kër gi nga lekk ñu lekk mm-hmm. doo ñi wax foo ko jëlee mm-hmm. c'est les parents quoi mais si parce que dafa am benn responsabilité boo xam parents yi ñoo ko daw mhm. moo tax tey exemple lii tey di xew ci jamono muy jaaxal ñu bari mais bu mu leen jaaxal mhm. dafa am fu mu jógee te tey xale yooyu boo leen woowee du mbonte mais dañoo jéem mhm. mu sotti ñu def ko yoon parce que ils n'ont rien compris par rapport ñu suñu génération xale yi nga gis tey koo ci woowoon tey du ko yedd dalay ree xamul yedd xamuñu ko xale boo koy yedd doo koy yedd heure bu muy fooy mhm. ndax bu bu fooyee fàtte ko da nga koy yedd heure bu muy tëdd ndax mu yeewaale ko mhm. mais loolu nag nitee ak gor dëgg koy def mhm. Assane waaw dafa am ci affaire Ahmed Cissé yu kuma saaga nday ci TikTok bi ci TikTok bi ah ouais ma dem dugg ci paasam demandé ko ami mu accepté ma premier message ma ni ko Cissé la sant waa ji. Mm-hmm. def sa waay yaa ci jàmm man dama gis que ni ñetti vidéo yi ñu dagg yëpp dugal ko yëpp dama saaga ndey. Mm-hmm. ba ma saaga bi mais dama mm-hmm. bëgg nga wax ma lan moo tax nga saaga ma. mu tontu ma ci suuf ni ma maa ngi jéggalu. xamul xoolal pour wax la ni ma ni ma maa ngi jéggalu. parce que dama la jaawale beneen Mouhamed Mbaye yow nan ngay gisee vidéo Mouhamed Mbaye. di dama ko jaawale ma message ak ma ne ko mais Mouhamed Mbaye bi nga saaga mooy Mouhamed Mbaye mi nga seetaan ci télé bi mhm. mu ne ma maa ngi jégal ndax sama soppee nga ndax mën nga maa jox sa numéro ci li ngay wax ci wàllu amuñu ça veut dire que foog nga fekk leen ci li ñu nekk mhm. est-ce que kooku tey ji dootul bàyyi saaga la mukk mhm. dem naa Facebook gis ku ma saaga mhm. parce que man damay lire commentaire man Yves ma nit ñi naan faale wu ma man faale naa man damay xool commentaire xool nit ki fan la ma saaga ma xool lan laa wax foofu mu nekk jàngat ci man parce que yàlla gis nga nit du opti nekk télé yàlla lay neex yàlla moo programme ni balaa ngay dee ñëpp dinañu la seetaan mm-hmm. am na koo xamante ne mu ngi ci benn télé di liggéey dina romb mille personnes xàmmeewuñ ko mm-hmm. mille personnes duñ ko nuyu mm-hmm. te def na ci télé boobu dix ans dëgg la yow mën nga ñëw def ci télé un an ay nit di la romb sama soxna mooy sama léegi rek maa ngi taxaw ci benn jaaykat may taxaw di jënd sama voix rek la daw si dégg dafa taxaw ci buntu oto bi léegi léegi di jooy léegi ni ma maa ngi dëkk Medina dafa am keneen ku may seet hmm. waaye dama doon ñaan yàlla sama dund yàlla naa gis oustaz Mouhamed Mbaye oh. léegi léegi day taxaw di jooy ba man maa jël numéro hmm. mais kooku tey yaa ngi koy kontaan loo hmm. mais am na koo xamante ni tey jii yaa ngi koy déranger ku bëgg ñëpp kontaan faw nga nekk naa féq yàlla mu bind jaam ñi yàlla mu bind jaam léegi-léegi rek am na kuy sukuraat benn jaamam mhm. léegi-léegi rek am na kuy bëgg am doom léegi nii rek am na ku ñuy suul léegi-léegi nii gis nga boo bëggee natt yàlla aéroport ngay dem mhm. dafa départ am arrivé mhm. am na ñoo xam te ne am na ko <laughs> xam dañ ko refilé indi kooram léegi nga bëgg a nekk ci àdduna boo xamante ni dañu kontaan yow xam nga euh, olof chaque jour nañ leen wax benn baat nit na fexe am way wu rafet ñu koy dugal ci bopp nit ñi nañ fexe am way wu rafet mooy démb man maa koy fàttaliku sama taaw sama aw papa mhm. ñun ñëpp maam lañ ko doon wax parce que mhm. dañoo jàppoon ne sama magu papa la mhm. sama yaay ci turam lañ doon jaar parce moo nekkoon ñaareel mais ma gis ni ñun bu timis mu saan jot maam Binta daf ñuy kii xam na ko bu baax a baax daf ñu daan wax léeb leen ku dàq léeb ma may la nangam yooyu tafaa sama benn mag wut am na keesu warga yu mag yu amoon jël sondeel teg def nii ñu fay ku nekk ñaar dërëm temps boobu la ñu amoon Samori bi ngay Samori doo génn koñ bi Moriba fa hmm. moo amoon yaay papa ji maay doom ji loolu moo amoon jamono jooju téléphone amul dara amul pour fam bi ñit ñi xale yi tëdd balaa ñuy naaja tëdd naaja tëdd vingt et une ñëpp tëdd benn jour ngay guddee tëdd mooy samedi li tax mooy variété nga daan seetaan mm-hmm. variété xoola daan la yéene la jugal tëdd parce que bi muy jeex fekk na nelaw nga mm-hmm. mais jamono bii ñëw léegi papa yi li tegu ci seen charge bopp yi dañu bari mm-hmm. yaay yi li seen charge bopp yi dañoo bari Sénégal di dëkk boo xamante ne amul laalax amul amul jigéen buy say nekk ci heure amul jigéen bu ne ci mbégte ci say Sénégal amul wala bu dee am na benn nit la altine talaata lay kontaan àllarba alxames day dundaat stress. Mm-hmm. parce que tey jii ñun Sénégal rek ñuy dundee phénomène boobu. Mm-hmm. dañoo jàpp suñu soxna yi comme comme comme comme ay ay ñi ci ëpp bokk. Mm-hmm. benn objet la ñu jàpp mooy war ñu toog ak seen soxna kafre. gis nga damay jàngalee Dakar ay cours particulier Yves may jàngale benn kër goo xamante ni waa ji dafay dawal xaw ma ni ñi dawal avion ni ñu leen tuddee. pilote pilote ci waa jooju lay jàngee communiquer ak doom. ça veut dire que bu doomam dafay daf koy xëcc. xoolal ib ñaari tànk yi teg ko. di wax. Mhm. ndànk ndànk ndànk ndànk après ci saa damay yëg ne xale bi dafa am kersa. Mhm. yaa ngi dégg mu raay bopp bi bu koy bàyyi muy dem tëddi. Mhm. mais ñun ñoo looy def nii. ah jugal fii jugal fii nangam nangam te kooku xool ma gis ni buy wax ak yow. bu doomam dawee di ñëw di ko laaj benn affaire day def <laughs> tekk bloqué la yow di wax ak doom ji ah. ma ne ko mais grand lu tax munoo parce que mémoire am day fàtte te man ak yow dinañ xam fuñ tolloon mu expliqué doom ji doom ji dawaat delluwaat ci biir mm. néeg bi ma ne xoolal ñii ni ñu yaree seen doom ci ndànk ci dal ñun boo amee gan dàq sa doom mm-hmm. jugeel ci néeg bi mm-hmm. wala nga jël dàll wala fobal ma xale bi demal foofu ci biti mm-hmm. léegi pour nga bàyyi ko xel faw mu jooy jooyam mooy tax mu daw duggaat ci biir néeg bi nga ne ko lan la da ngaa dëgër bopp même pas nga taxawal sa doom xool physique am nga xam wéquñu ko ci awra wala wala wala gaañuñu ko fenn non non dañu la jël rek tëmbal ci ginnaaw lal bi mhm. yàlla nga dee da nga maa la jël mhm. mu fanaanoo metti mhm. boobu da ngay xëy rek gis benn laago boo xam ne yaa ngi koy jooytu ci télé yi nga bal ma benn anecdote bu ndaw benn benn jigéen daf dafay léttu doom ji di jooy jooyu métti mu jël ràbb bi mu doon xàjjee jox ko xale bi oh. parce que xale bi ràbb bi la doon jooy doon jooy waaw mu mu mu dindi ràbb bi jox ko ko xale bi dafa ci ràbb bi ba roof ko ci bët bi bët bi tuuru xale bi jigéen bi jekk na bi mu nekkee mag jekk na jekk boo xamante ni greffage comme yi ñoom xaddi teg lay teg mais day nëbbu benn bët bi ça veut dire que góor bu ko gis nga ko bëgg mais bu dawee ni ba nga jàkkaarloo ak moom rek seen gis day commencé lan bala ngay mujj mm-hmm. bàyyi mm-hmm. parce que nag gars yi ñu ngi noonu xam nga li may wax bu baax wan AS la <laughs> waaw <laughs> Oustaz maa xam waaw si nga koy xeetu miray waaw sa kanam gi def nii waaw yàlla bu nga waxtaan bam ni <laughs> nee <laughs> eh, léegi boo gisee loolu. bi nga gisee daan da ngay wàññeeku du yow. <laughs> xadi sa mbëggeel mën na la ci bàyyi bari na góor bu bëgg jigéen. mais xam nga lu ma xalaat famille bu ko fa dugalee naka lay mel. bëgg nga takk ndaw si. mais sa famille bi nga bokk yaa ngi mm-hmm. xalaat ñu xeeb ko. Mm-hmm. say wujju peccor ko say jëkki say nangam. Mm-hmm. ndaw si dafa ñëw laaj yaay mi ko mais eh, yaay sama bët bii musuma la laaj lu ma ko def. ma bëggoon xam la moo ma def sama bët bi. mu ni ko bi nga nekkee xale dama doon létt. ngay jooy jooy métti bëgg ma àll ràbb bi Hmm. bima la joxe ràbb bi nak ci ngay fu ba duggal ko sa beut mun ko yaay est ce xam nga ni benn joy nga faje téeméeri joy hmm. ana létt yooyu mu ko létt da metti sama bop ci goudi gi la ko firi hmm. mun ko lu teewoon nga arrêté létt yoy bo ma foboon sax ma neraw nga continuer say létt xagn nga ma sama benn beut wañi nga cofeelu gor ñi ci man kan lay jar tay bu fekkonté ni téeméer laay jar benn lagu beut bi dina tax ma jar fukki deureum té gor gi may seyel nak du amaat benen soxna ma bokk ak mom nek té gis nga ngay xuloog sa wujj ba caag nga ko demal ak sa benn beut handicapé nga ko te yooyu yëpp nag manque éducation la mm-hmm. manque yar la ak euh, parce que man sama taw papa dafa wex mm-hmm. musuma fàttaliku sunu kër jigéen sol jiin te këru géwël la mm-hmm. sunu kër kii xam na ko bu baax musuma fàttaliku sunu kër am musique te këru géwal la te loolu li la koy firndeel mooy man mi juddu ci tagg yonent bi parce que suñu biir kër laa fekk loolu mhm. jigéen laa la wax suñu kër mhm. man caat laa mhm. kii xam na sam papa mu ngi ci quatre-vingt-seize ans léegi yal na yàlla guddal fanam tey sam papa xol bi ma juddoo ba tollu caat këru géwal musul am musique borom bongo bu fay dugg eh, eh, ci biti sama taaw papa <laughs> ci biti boo fa ñëwee eh? sama mag bu jigéen dafa yoroon salon nga xam ni mm. salon boo ko yoree jamono jooju doguma la mais papa moo ma dugal néegu góor gis <laughs> yow mi <laughs> waaw. Eh, eh, affaire sunu maam ñoo fi yàgg de. sunu maam faaw mu yàgg donc loolu exclusivité la. Eh, ndeysaan. guddi gi mën na lu ne guddi gi guddi gi ma feeñal lu ne Yves. dafa am dafa am lu doy waar yaayam tey. Uh-huh. daf ma doon uuf ma nekk chérim. macha allah naan dem vacances foofu. ndeysaan donc du coup mu doon affaire bu grave. wallaay ndeysaan. kon li muy wax ni dafa am solo. Mhm. éducation dafa baax. kon am na kër gi yoo xamante ne amul taas eh, ma taas. non amul amul jënd ko eh sunu kër ma taas. ñu naan la temps bi nga gën a koy jàpp. waaw temps bi fii la mais ki seen naan la sax mais temps bi moom fii la. temps la temps la mais li temps la de. quel que soit alpha kër gi dañuy temps. c'est que xeetu mooy yàlla dafa gis nga direct dafa garaaw. man sama gëm-gëm. Mm-hmm. bu ma duggee ci tante nii ba toog faa ma yëngatu. Mm-hmm. damay jàpp ni ku fa nekk di tagg yonent bi maa la ko dàq. Mm-hmm. bu ma koy tagg. bu ma xasee ba teg micro bi ku may déglu yaa ma yaa ma ko dàq. mais bu ma xasee ba ñu nañ jox oustaz Bay ba ma téye micro bi ci yonent bi laa ko de du ma ci fo ku ma fekk ci tant bi ngay oustaz dinaa fexe ba manipuler sa mémoire ci dinaa wax ci yonent bi loo xamul te mu nekk sama gëm-gëm te loolu sama papa de sama taaw papa dafa naqari deret ba tey mu ngi dund naqari man ak taawam ñoo maase man sama papa mag la sama taaw papa man ak taawam maa ko magee une semaine jeudi laa judd jeudi bi ci mu judd voilà mais tey éducation boobu badu badu hmm. éduca badu est-ce que xam nga ni mbeddu koñ bi alignement koñ bi kenn du kenn du saaga romb da ngay ba saaga rek mbéj bi day ñëw doo xam fu mu jógee ah. li ngay daw moo lay wan ni da ngaa saaga ci koñ mm-hmm. ba dooy def yooyu <laughs> bi ci des mooy comme kër gu mag la këru géwél day xëy bi rek toog du mm-hmm. kaf du ree mm-hmm. dama yéen laay waxal de yéen ñi fii sëy booba ngeen muñ de fii amul fay de ku fi ah. fay kenn du la jëli loolu lay wax ci biir kër gi bëgguma kenn saaga sama doomu mag de mm-hmm. sama doomu rakk yi de mm-hmm. bëgguma fi dégg saaga ci ñi fi sëy si mm-hmm. amul jigéen bu mu a sëy si suñu kër ñu naan bul dóor bul saaga raakool lay jël moom teel a pare yéeg ci kaw ku dégg ngay way di dugg ñu arrosé la amul dugg ay tey siir moo lay dugal ci biir kër franco arabe franco arabe tey siir tey ji loolu moo ma may ka may tagg yonent bi moom doomam di way keneen keneen keneen bi ma amee doom quatre ans rek dama ko dem rawale ji daana sept ans rek mu daal di wàcc parce que loolu laa këru ngéwél googu laa xam ba tey aw ma habitude dégg saaga mm-hmm. aw ma nàngam bu ma déggee ku saaga ma tiit bu ma gisee ku def lu dul loolu ma tiit mm-hmm. benn yoon laa musa fàttaliku ni réer naa mm-hmm. mooy bi ma demee seet Ahmed ba woon ko ginnaaw ma ne yàlla bu ma yóbbu nit kaso mhm. yàlla bu ma teg nit tolof tolof mhm. parce que tuuse na ma ré damaa réer carrément bi may ñibbi réeru ma noonu laa demee tëddi mhm. parce que dama xam ni magum jëmm nga ne ko toogal fii loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil wallahi boo waxoon lu noppali romb foofu la ndeysaan non dafa yéeme macha allah mu jéggalu rek hmm? billaahi waaw maanaam Yves li ma la doon wax keroog rek mooy ñëwaat ci li ci gars yi tënk mooy mooy mooy mooy éducation de base dafa am solo torop nit ñi di ko war di bàyyi xel parce que tey jii gis nga Sénégal bizarre bi mu mooy xadi yi tey jii sa doom bu biiram dee métti bu dee nasaraan tey biiram buy métti nga ñëw seen na sa yaay sama biir dee métti danaan la sa biir dee métti mm-hmm. kañ dem hôpital mm-hmm. kañ dem fii sama yaay sa biir dee dama ca douche ba mm-hmm. <laughs> li nga lekk loo lekk avant tout dama ca douche ba réponse automatique ma bul noonu du ja <laughs> Ibrahima nee na mais xool. automatique <laughs> dama ca douche ba. waaw da nga dëgër bopp naa parce que boobu mu ngi nat mu ngi liggéente nattam bi mu war a joxe parce que duñ ko alamaan moo ko aram cumbe. wallaay dëgg la. dëgg la di bàyyi yooyu xel ba pare nag Yves ñun ñu complexé. ana sama daw su feebaree dama ñu complexé ci olof gi ñu door. Yves ñun Sénégal. ba ci maanaam man moom xam naa Mamatar Gueye bu ko neexee xëy na du ma jël si. <laughs> sañ na ko mais dafa am yoo xamante ne dafa yoo xamante ñu nangoo jël suñu risque bàyyi lañ ko xel. Mm-hmm. buñ complété mm-hmm. olof ay olof lañ. Mm-hmm. c'est vrai olof dafa am baat yoo xamante ni loolu lay wax. dëgg la. tey jii seetaan nañ tableau Ferraille. waay seetaan nañ Carmen Gueye. daanami yow mag nitu cinéma la. maanaam pas mag mais man cinéma laay dund. dama leen di cons. da ngay da ngay gis Carmen boo koy seetaan. Mhm. jigéen ak jigéen tëdd nañ ci. Mhm. te jamono yooyu lesbienne quoi. ah si. ay tableau ferraille ay séquences yu mos naa ko invité yàgg naa 2013. waaw ay séquences yu gën gis yeneen ak yeneen ñu naan la carrément on fait l'amour. parce que lan làkk bële la moo tax. méttiloo ko. mais est ba tuddee ko cinéma aussi. waaw dafa am foofu la différence bi commencé am. tàmbali dafa am yoo xamante ni Yves. Eh, faaw faaw tàngaata tuuti. Mm-hmm. waaw mais xam nga théâtre dafa am dafa dafa jamono ji théâtre dafa périmé. Mm-hmm. parce que nit ñi ñoo ko seetaan te c'est pas normal. et c'est pas normal. moo tax ma ne la li ma ne la ci sénégalais yi kenn xamul lu ñu bëgg. tey boo joué infidèle wala benn séquence bu doy waar. Mm-hmm. ñoo koy seetaan ba mu jeex. ne la pourtant jamonoy ma xooje gaynde yi amul woon. wallaay dëgg ñoo koy seetaan ñoom ñoom ñoo koy consommé. parce que aussi àdduna buy dox. Mm-hmm. dafa am fu muy toll. Mm-hmm. ustaas yi tey mm-hmm. boo demee tey ba ñuy toog plateau. ñu def jiin ak jamono. mais de ci plateau. du ñu feeñ ñoom ils préfèrent faire leur. télévision spéciale dem ci RTS. wax la ñuy wax doo leen gis ci mbedd mi lu dul seen daara ñu toog seen taalibe mais oustaz Fashion boo ko déggee ça veut dire que jamono dafa dox. kon léegi bu jamono di dox dafa am nooy ànd ak ñoom parce que mm. aussi ki nga xam ne dañ koo yar yaru mag bokkul ak ku jamono yar ki mag yar dafa am noo koy waxee mu xam la ngay wax mm-hmm. man mii di wax ak yow ay magama yar mm-hmm. moo tax su ma waxee ñu ne ma yee saa ay mag la mag non dañ ma yare la mm-hmm. parce que nag dañ ma yar ci du ma wax dama lay xool nga xam li ma wax dañ ma daan dóor timis du la fekk ci bedd doo lekk jàmbur te da ngay jàngi heure tëdd jot nga tëdd te booy baali le 31 décembre yaa ngi koy tàggoo mois mois lan septembre novembre octobre novembre septembre ngay tàggoona ne yaay le 31 dañuy baal mun na la ah daa ca tànn sa pap ngay xaar réponse mel ni koy xaar examen bu la nee baax na demal baali waaye baal ba 21 heures 0 heure nga ñibbisi mhm. dafa mel ni def nga baalu un mois mhm. Mhm. mais léegi yaay jóge ca baal ba fëgg sa yaay ne ko li maa la ko yéenal mu xëy ndékkee ko. wallaay dëgg la nga xëyaat gontu. Mhm. dëgg la kon donc jamono fi mu toll la. Mhm. léegi nag ñi nga xam dañoo bëgg toog ne non nit ñi léegi dañoo bon nit ñi mën nañu bon de certes mais lan moo leen bonloo. Mhm. te pauvreté bi ma lay wax nii dafa indi quoi. ndax pauvreté bi nit ñi ñàkkuñu de ndax Sénégal ko dégg benn kër kër gi ne ñëpp dee nañu ndax lekkuñu. ñoo ko ancré seen bopp. pauvreté amu fi. mais nit ñi ñoo engraissé seen bopp pauvreté. parce que ñu ngi sant yàlla daal. non bu baax. Mm-hmm. parce que xam nga loolu parce que quand tu vis au-dessus de tes moyens. problème problème deug la de. man le 100 francs que j'ai mën naa ci jënd sama caaf. Mm-hmm. yëy ko naan ci sama ndox dem. Mm-hmm. du ma loué auto par journée. duma ma auto duma du ma leb oto. su amul njëgu taxi dugg ci tata yi yéeg wàcc dem sama yoon boo ko defee doo am problème mais boo demee <laughs> parking gu badu wala parking gu tey aruna taxaw ne ko jox ma benn oto mu jox la 4-4 ne la chaque fay ma temps nga commencé ñaari moo ñetti mois di làqatoog ngeen dem ci yoon mhm. sëñ bi nañu bàyyi caaxaan yi ñu nekkee ci dëkk bi xam ne semaine bi passé jël naa mhm. mhm. parce que dama ni xaaral ma natt sama bopp ci man tawaada rafaahu llaahu ku wàcce sa bopp yàlla yëkkati la Assane wax na sànq wax bu am solo parce que yàlla nañu yàlla sàng mbalaanu sutura wala mhm. yàlla sàngee mbalaanu sutura loo tëra di tëra di sa tànk du feeñ mhm. Mhm. yàlla nee na alkibru rëy rida yi sama mbalaan la ku ko sàngoo ma ñori la mais ma yéeg ci benn tata jële ko faas mbaaw ba postu caare yi pour te dire li lay paasal ci ay nit rek ëpp nañu dix mhm. cofeel bi ñu am ci yow. ndax cofeel bi ñuy am ci yow. Mhm. di la paasal kii daan déedéet ma paas ñi ne non non dajale ko ngeen jox leen ko ngeen jox bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. après ma nga àdduna lii la. parce que yenn saa lay nattu da amul nit kuy feeñ télé. yor sa oto bu normal une semaine. amul parce que ah man rek sama kalando bi tey paana. man paana tax ma taar. xoolal cat moo garaaw jakarta bi boo ko gisee ñu daal. laay rii sama xeetu jakarta. laay la. dañu moom laa yor di féeli féeli. xoolal di dugg fu ne keroog fa ne laa tase gën a ah, mooy nurit. ni nga nekkee ci série yeeg ne. ma ne ko mais. lii may dawal nii maa ko moom. lii maa ko moom de. wala yaa ko moom Assane. Mm-hmm. sa ñàkk la gis nga lépp. Mm-hmm. est ce que xam nga ni gor boo gis ci ñaar lañ koy yabe di jëw nit ba bett la dootu la naw ba yomal xiyaam mm-hmm. nga yoreel nit bor mun la sawaay kat dama la rus fayoo mm-hmm. nga koy woo mu lay woo téléphone jëloo mu wala ci beneen numéro nga décroché ni allo mu ni allo noppee na la rus ba faw da nan la saway nak mhm. am na fuma meuna yam mhm. motax gor warta lepp lu mënta fay mhm. gor warta jëw kenn dongu mën a jëw moy moy ku ñak jom ku ñak jom mo lay jëw di la jëw asan di la jëw ba nga bet la ya bëgg sa tour bi de yow la doon waxtaane <laughs> deug la ibi yooyu la sa tour bi de nan wa ibi yooyu la sa fi jëw la la dan lay jëw billaahi nan moom bëgg touram di la jëw ba nga ni dërët seen kanam ñu la xool ndeysaan ak bëgg turam wala yow la doon waxtaane léegi léegi nag nga xam ne miinul jëw day stress kattan waaw tey xool jëwkat pire uh-huh. mooy jëw di jëw ba ñëpp xam ni day jëw ñu ba ko bu ko defee moom xam nga kan lay jëw uh-huh. téer bi koy ñawal danaan xool ko moom problème finition la am xoolal <laughs> daaminam du yegg mu ko xoolal pour wax la mën jëwam dina topp daamine bi di ci xool ba par ko da koy rocc ba daamine bi jeex parce que tellement que habitude la bu nekk ci moom noonu la amee ñoo xam ne dañoo mën a wax lu dul dëgg uh-huh. métoman ngeen koy wax métoman am na ñoo xam ne dañoo a da ngay fen am na ñoo xamante ne dañuy fen ba yow da leen xool da yow xam ne ñoom ci boppam dañuy xam ne dañuy fen mais léeg-léeg dañuy saaraani mm-hmm. mm-hmm. ñu taxawee dañuy am kersa am na fenkat yoo xam da nga leen di xool ñuy fen ba am kersay gaare dootuñu taxaw parce que bu ñu taxawee. dañuy am problème yàlla mën a dimbali génne leen. waaw nga génne leen ko dugal leen ci beneen waxtaan sinon boobu da nga leen dugal ci mbarka. kan war a wàcc Fatick jékki-jékki ak Kaolack ak fii fan la ma ne ko fa nga waxee. li ngeen di rek xool fi ngay wàcc. yàlla en tout cas li nga wax ci ci problème mu série yi. ba ci émission yi. Mhm. Euh, c'est-à-dire parfois nga invité un Pawlish. Mhm. wala nga invité un Ouzin Keita. Mhm. war leen invité ñi ci plateau bi te ki la koy wax mooy toog seetaan ko ba émission bi jeex di commenté ba émission bi jeex. dagg ko dagg ko yóbbu TikTok dagg ko moom émission bi yóbbu ko TikTok. waaw waaw ah. c'est-à-dire sénégalais yi amuñu culture. télévision. il faut dire la vérité amuñu ko amuñu culture télévision. c'est-à-dire euh, ñoom ñu ngi seetaan télé mais. amuñu culture bi. xamuñu ko. ràññeewuñu ki nekk télé bi. ak ci nekk ci mbedd mi. rañewuñu ki toog télé def liggéeyam. Mhm. ak ki bokk famu mu bokk. Mhm. da nga toog yow sa wax waaye dimbali yow xam nañ fi nga bokk. c'est-à-dire c'est deux personnages différentes yo xamantene tay yow bu fekkee xam nga culture télévision. Mhm. war nga mën a ràññee Assane Lo bi toog fii nii. Ah, ak asan Lo bi nekk ci Tandian. Ah. war nga mën a différencier ñaari nit ñi. duñ ko def mbubb la. duñ ko def xam nga tax xam nga tax Yves duñ ko def. Yves dañoo soxor. oui méchanceté. Yves. dix sénégalais 9 et demi yëpp. dañoo iñaan soxor aigri. oui aigri aigri surtout nga Sénégal voilà moo aigri. laa ngay xëy. aigri amoo loo def. oustaz ak Assane lu ko la non booy day baax de jàpp ci rek day baax. borom karaw gu ñuul. sunu borom du jël yëfu saalif bu ko jox dem. sunu borom du jël yëfu saalif bu ko jox dem. sunu borom day am ab. Mm-hmm. yàlla xamul li xam dafa war moom lu jot la xam mm-hmm. mu yëkkati sa heure jot mu mm-hmm. yëkkati ay million ki milliards wala mu am lu mu la dugal dara feeñ xadija njëkk wax naan ah moom la mu def ba xam ba am lii xam naa ko man xam naa nu mu demee et pourtant moom ma ngay xëy dang-dangi bu dee xam na ko xëy na dem jëli ko léegi asan loo romb la sañ-sañ naan moo lii rek la gëm du du papa grand bi dóorkat la di am jàmm te yow saa yoo xëy am jàmm waaw doo dem réew mii ñu ne. da ngay mel ni ñoom da ngay mel ni ñoom. Mm-hmm. ndaxte ay nit lañu. Mm-hmm. dañuy lekk suukar ak xorom. di am yëg-yëg. ñoom ëppale wuñ ñu dara. ñun dégg nga loolu ne dong lañ leen ëppalee mooy caméra yi tiim ñu feeñal ñu. ñoom ñu seetaan ñu. Assane est-ce que Assane est-ce que xam nga ni Sénégalais yi boo leen dugaloon ci cin li leen baxal. Hmm. bul tëj cin li. jamais ndax kenn du génn. parce que ku dara génn keneen a lay. keneen jàpp la <laughs> non non kenn du génn wallaahi kenn du génn. ala wéetali ma. kenn du génn ak ñoo mun wéetali ma. <laughs> Sénégal Sénégal Sénégal. Fallou Xéwal sama xarit ma nga Touba mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. maa ngi koy nuyu waaw Fallou nag moom phénomène la. dèjà moom borom baax la sama waay la mais nit ku tedd la. nit ku yaatu mën a defar defar lu rafet. mu ngi eh, Sénégal la ñuy la ñu laa gis dëkk boo xamante ni. Mhm. dañoo tànn ñi ñi war a am xaalis ak ñi dul am xaalis. waaw dañu leen segg ba pare quoi. Sénégal. Mhm. fenkat mooy fi war a am xaalis. Mhm. politicien. jaaykatu drogue. ak siboorukat. siboorukat. ak pimp. pimp mooy ñi macro. macro yi ak ñi nga xamante ni si dara safu leen. ak ñi nelaw ba 19h 20h yeewu 22h 23h ñu puudaru. cinq heures du matin la ñuy di nelaw ba dix neuf heures ñoo ñoo war am xaalis. loolu taximaan buy xëy huit xaalis warul am dara. bis bu amee ñu tuumaal ko. dëgg la dañu naan la jaay drogue. xëyoon suba ubbi télé boobu ñu ne xam nañ ni mu demee. maa ngi ci yoon bi nag da ngeen ko xaar ustaas tey. bu xëyoon ñu ne non dafa dóor ju woon. sunu oto yi rek ngay waxal. donc ñun. wallaay danaan kariwaat lay liggéey. walla isa Macky Sall problème quoi. isa xam nga ni Macky Sall man dama yërëm Macky jar naa yërëm a man réew mi bugguma fi sama mbokk nekk fi président mm-hmm. te gis nga kii ni uutu Macky Sall mm-hmm. billaahi bu xamoon ne sénégalais yi dañ lay may yàpp wala ak xaj dëgg mi man ak moom ñoo yem kiif kiif analyse bu ñuy def dama leen wax ni leen sénégalais mm-hmm. moo lay fekk suuf yéegal la ba ci kaw du am jàmm tànk wàccaatoo c'est vrai toll nii dañ fiy jëlee président de la république nangam nangam nangam maa ngi ñëw xam na ne xam nga kan laa faral bu ngeen dégg dëgg ki may fay mais da nga gis président mu yaru wala président nangam wala président nangam asan gis nga Yves. Hmm. faw nit ñi xam ne loo gën a yàgg ci média bi am hmm. personnalité booy gunge bokkul ak booy bu bees bii doog a ñëw ci média faw mu calli calli faw mu fecc mais di nga toll foo xam ne sa personnalité dootu la may lenn li boo demoon tey ci làmb ji hmm. Balla Gaye mi daan wax démb ak Yékini ak Bombardier du Balla Gaye moom nga xamante ni tey dafa war a jàkkaarloog booy ñaar di waxu démbam ci jamono yu na bu njëkk bi parce que olof nag olof dafa na ki war gileem. Mhm. buy dayoo ki dox. faw am ku sëgg. Mhm. te moom mooy sëgg. Yves dégg nga ma ki war am ku sëgg kon ki war mhm. gileem moom mooy sëgg. mais Sénégal kese moo naan la borom der bu ñuul nga. dara jom dara jomb la dara la ba nga xëy xool ni sa daan gis ma bi jaaw dëgg la parce que fiñ lay xaar moo tax ba pare bi ci des yonent bi dafa waxoon xadis bu yéemee dafa ne asan fa inna kullu zi ni'matin borom teraanga boo gis maxsuuratun dañ koy iñaane mais lan la saafara di wut ci télé. moo ma jaaxal jàpp nga ni bu Ibe jógee place am yow lañ fa war a teg parce bu Ibe manqué ah? ko am na koo xam ne boo moytuwul sa oto mu def ci loo xamante ne dootul daw am keneen am keneen am keneen. mu ngi lay suulal dara sa buntu kër. sama oto damay ñëw léeg-léeg gis ñu sotti saafara ci sama. li may téye Mika bi ngi lay nuyu. Mika mais mais jamono noonu lay doxee. wax ma tey ban nit nga gis ku xëy rek bàyyi yaramam parce boo ko defee li nga tëddee almere. boo ko defee tëddi de gis nga sa yaram bu yow. Mhm. ngay tëdd alméer surtout nitu télé. waaw nit xoolal. li pour nga gis. pour nga gis nit ku amul sutura. Mhm. jàppal nitu télé. parce que boo tourné benn émission ci li nga wax ni Sénégalais xamuñu réalité normalement. Mhm. téléphone yii la Mame Matar Gueye waroon wax ni warut a dugg Sénégal ñun ay téléphone simple donc lan waroon am. ba pare di seetaan benn télé. parce que xool boo tourné film ci benn kër gu rafet design bi rafet. sénégalais yi dootuñu am jàmm Assane mu ngi ci kër nangam mu ngi ci kër nangam mu ngi ci kër nangam sénégalais noos daf koo yomb mhm. xëyal yor benn boisson bu cent franc mhm. jënd mburoog ton di yee si ngoom ñun sa waay temps yaa ngi noos <laughs> mais oustaz du ma la dog du ma la dog parce que temps yi ma nekkee RDB dama génn maa ngi leen di nuyu de passage ci weeru koor gi émission koor gi mm. di àndoon ak DJ Zeka di ko nuyu bu baax a baax donc ñu may eh, seetaan Thiès di ma seetaan mm-hmm. ma ñëw kori war dem korité ji rek yegg si sama yaay di si rek ñu génn si koñ bi ne xaaral ñu dem Auchan dem marché yooyu. tey nga dee. rek kooku ne ko yow sa doom bi tekki na macha allah. tey nga dee mu moom rek laa doon seetaan. ay waay ji naan ko jox ma dara. sama yaay mujjee moo yëkkati ci saagam jox ma xaalis. te boobu yow ñaata nga yor. non bi may boobu moom sama waajee ma dépanne kii moom mooy dépanne ci feeti. moom mooy dépanne te moom im xoolal. moom mooy dépanne. 21 800 nga. non dafa doon. oustaz. problème bu kii moo may dépanne moo may yóbbu si ñu may jox daal moo mm-hmm. may moo may lijjanti ma mooy sama mooy sama coach. Mm-hmm. sama yaay moo yëkkati saagam. diini dama am jox ko kon bi ma ne tëll ci ASC bi sama benn tonton ne ma macha allah dama la seetaan wéeru koor gi xamoon naan di nga tegu sa yaay li mu def nii nii. ma ne ko ndeysaan doo ma ne Yves li mu sonnee si man tey boo mën a toog ci télé. loolu nga xam sama yaay yee toog nit dalay woo doo ko xam oustaz na nga def maa ngi fi ñun kat dañoo am problème location oustaz buñu sañoon nga jàppale ñu ci terrain parce que dañuy gis que ni grand plateau koor gi ah, seen eh, may nañ la waaw mais nañ la yëre fii nangam nangam ay dóor la ah ñooñu di may te ñit ñi xamuñu ni télé du dëgg xam nga si dara am <laughs> télé i ma wax la benn affaire benn waaye woote pour ma ba jox tudur nit ki ni aloo euh, boobu direct la ñuy def aloo euh, diw may naa la onze millions eh, man la man la diw maye 11 millions waa kontaan ba génn 1 million bi ñu ko fa jotoon may mu séddale na ko. tey mu dee. naka de borom 1 million benn waaye bu wootee la rek. séddale may na ko. may na ko waa di xaar man maa xëy rek 11h midi mu woo ma ne ma mais Oustaz euh, sa waay diw. te ku siiw la la waa ji tudd. 11 euh, millions yi maye fu mu nekk ma ne ko man ak yow ñoo ci bokk yam mm-hmm. mun ma kan laa mën a jot rési ma jox ko numéro ku ne rési mhm. mu woo ko ku ne ko non ñooñu dañoo woote rek xamuñu mhm. ba fii ma lay waxee ba nii ma lay wax ma la nit may man du ma toog télé ba nit ni ma diw mayee na nangam ba ma wax ni diw mayee na damay xam ni ma damay leer ni ma bu ma fa jógee mën naa koo jëli parce que nag jamono waa xaw ma nu mu tudd lañ toll. damay xool natt bu dee Assane la. Mhm. ma xam ne Assane mi bu ma génnee dugg këram. Mhm. dina ma jox som bi ma jox ko kooku. Mhm. mais toog sa kaw la rek. dinaan sa taay nel oustaz may naa diw pour la naa tudd sa tur ci télé bi. damay xool message bi ni tegaat sama téléphone. mooy dóori parce que xamewu ma la man sa numéro laay joxe en direct jox ko nit ci toog. waaw ah. ne diw. yow mi envoyé message na nga may diw. yónnee ko ci numéro am jëlal. ma transfert bi pare ci. c'est-à-dire yow sañatoo moo naam ndax waa ji yónnee la. mais parce que yow non yow li tax ngay def loolu. yow da nga xam li ci showbiz. dama xam yow seega yow yow seega Yves. mooy <laughs> yow. yow la ci showbiz yombul parce que. Eh <laughs> non non dama koy wax. Hmm? nee naa leen Sénégal ñu bari ñu ngi ñëw euh, émission euh, booy bi. guddi gi. toog yor làmmiñ di wax. te li leen di dundal kii dafa yor base bi. showbiz moo demee noonu tey dafa dimbale ay artistes yu bari mm-hmm. maak moom liggéey nañ ci bari ci ay mm-hmm. ci ci milieu ça fait des années mm-hmm. rek léegi sànq rek may fàttaliku benn affaire yoo xam man plané naa ko donc moom dóor yooyu da koo xam ba nga xamante ni moom boo koy def yoon bi gën a gaaw da la jox numéro waa ji directement moom pare ci pare naa ci parce que showbiz ngay gis tey kuy waaj a yéeg sur scène jël cinq cent mille joxoon na la su ma la wooyee ñëwal jox ma ñëwal joxaat ma ko sama xaalis la naa Mhm. ngay ngay joxe ñaan waajee mën a may mi ngi lay jox tur boo xam te ne ëllëg dalay raylu ndax di nga génn say mbokk ne ma ngay maye bàyyi ñu ñu mhm. bare ngi maye ñu bare ngi génn xaalis di joxe ci milieu ci mbooloo te nit ñi comprendre uñ nañ def très attention am na artistes yoo xam nga lay wax. kaay ma si. dañu naan booy kaay ma def le star. may fit. Mm-hmm. boo ko joxee ni ko mayel télé. Mm-hmm. day wax ni man waalo waalo laa. Mm-hmm. famille bi ma bokk dafa yaatu. bu ma baateree bu ma xëyee nañ ma ordonnance. ça c'est clair du ma baateree nit ci seex du baatale nekk ci télé loo ko a jox danaan ah lii kat mënu ko joxe parce que donte loolu dañ koy maye dëgg la mais dayax li moom du mayee ñëpp di ko xool mm-hmm. parce que man mii sama statut man sama statut mosuma ma ci dugal fuñ ma mayee mm-hmm. xaalis du ma ci def yooyu du ma dem place bu lix vidéo ko dugal parce que dama bokk ci famille géwël mm-hmm. bu ma ko dugalee bu ma xëyee ñi ko gis ci sama ay mbokk mën nañu wax nangam wala hmm. nangam sama yaay kër gu mag la nekk tey li may wax ni léeg-léeg ñu def la star hmm. fekk seen kër gu mag amaana sol nga lu lix rek bëgg nañu soirée bi neex seen courant xëy coupé te réseaux sociaux yi dañuy topp nit hmm. gis nga boo noppee nga am jàmm ci àdduna amatoo droit jël kalandoo ba xam nga loolu parce que léegi nit ay romb rek yor téléphone am parce que nit ñi dañuy xàmmee nit sum la ñu sa waay de mu ngi ne ci kalandoo bi da ngay xëy rek xoola gis sa bopp ci réseaux sociaux dootu moto gis nga nit fo mu yewu yonent bi dafa ne alxanaatu doylu kanzun moy ko boo xam ne laa yëf naa du jeex muk mhm. gis nga kuy fayeku 1000 francs da nga wara fexé ba sa programme yeb yam ci 700 mhm. nga déssé 300 mais mënoo di fayeku 1000 francs di xëccu programme 1500 francs mhm. di nga yoreel nit ni bor tardel len tardel sa bop amna ben benn ndeysaan dama and ak mbay ñu nek sa moto di waxtaan guddigi comme ñuy daan yow émission dañuy waxtaan mu jékki-jékki di ree quoi di ree quoi mu jékki-jékki di moom kese ma ko bay lay ree mu ne waaye fekk dañuy romb parking bi nekk biir Ouest Foire am benn mhm. parking bu bees ah. ko ñu waa euh, ko ñu Brioche bi mhm. waaw booy boo jógee station sa booy génn sa gauche waaw ñu romb rek muy ree quoi ma ko bay lay ree mu ne ma waaye yow ah non mu ñu ma waxal sa patron ñëw ñu changé ko calendrier bii nii. <laughs> patron bi yow. ba xam lan ba dégg dara. xam nga ko dèjà bu doon bu doon kii indi nañ ko problème. yaa ngi man oto bi rek koy ragal a si léegi. di fa romb. waaw waaw man na ko mbay. complexe la man nekkuma ci priorité dawal 4x4 wala oto bu bees sax ban priorité laa am. ma ne ko tabax kër gu mu moom sama bopp. billaahi barke Cheikh Tidiane Chérif. tegal 4x4 Mercedes. bu ñu jar 60 millions. ba ma ko may ma jaay ko dem jëndee ko kër. wallaahi ma ko dawal. priorité boobu laa am. ma ne ko maa nga sama oto bi ma yor nii. maa ngi dem na Baye di ziyaare. di taal clim muy seet. di teg ay ay jàng ci bi déglu. ban problème laa am. te bu la bëggee dem màggal Tuubaa am laa yóbbu màggal Tuubaa. te bu la neexoon te bu la neexoon am oto te su ma neexoon xam ne man ma am oto léegi la xam naa la loolu. <laughs> non sama grand ci priorité war a mel nii damaa war a mel nii. Mhm. sama grand frère mu nekk ay station ci dëkk di bi. xam na ne oh. te damay dem jëndi essence. dogu doguma la. Euh, nekkuma ci priorité yooyu. est-ce que man bi ñu nekk. Mhm. xanaa xamoo ne boo dee boo dee muuma duñu la may. Mhm. ñàkkal jom te ñun ay muuma lañu. voilà ay muuma lañu. man naa seen loo muuma laa. maa ngi ci show bi ça fait des années amul artiste wala ku ma liggéeyal nga yëkkati waxuma la oto. Mhm. ruu. dañ la koy dig nag dañ lay dig nag man soo ma diggee sax ay la may def. c'est-à-dire que cest gis nga gis nit gis nga nit. gis nga nit da ngay ci sa bopp. ci sa bopp. man man dama gëm ko gëm boppam. gis nga mhm. gëm sa bopp bi gars di wax. Mhm. waxin la. mais utiliser wuñ ko. dëgg la. Khadija. gis nga looy liggéey. loo peu que tu as. wallaay dimbalil sa bopp. wallaay. ba loolu nga dundee ko nga xool. Mm-hmm. donte lu tuuti la. Mm-hmm. mais lu lay jariñ la te dalay may yaram. asana boo bëggee milliardaire Sénégal yëpp seetlu li ma la mm-hmm. ñi ko liggéey dëgg mu leew leen du na am yaram mu. dëgg man maa ngi fàtt. koo ci gis tey muy sol lu xat mu muy buy dox di apat. alal jooju naan c'est un milliardaire. xoolal xaalis boobu fu mu ko jëlee. te gis nga alalu mbooloo li may faral di wax. ku ko lekk ren ba déwén. di nga ko gis. ak nag du yat mais day daal. ñu bari xam ne ku may te am ah, ah, Sénégal da lay fukkuloo ku ñeme yàlla ak ku mën a fen ak ku mën a tas yaakaar ku ñeme yàlla ak ku mën a fen mhm. jàppal chef société def ko xarit chef société yi waaw bari na ci de ça veut dire que gis nga ñoom rek mhm. ngay fréquenté mhm. nga nekk nitu média ñu xool xadi ci télé bi ni la Yves doomu may diw wallaay ci lañ dëkk oh. sama doom bi ne ngeen ma ko fi bàyyi may ma diw loolu lañ wax gis nga boo leen fréquenté ñaari fan ñetti fan ñeenteelu fan bi hmm. bu nit ñëwee toog ak ñoom danaa la oustaz Mouhamed Mbaye bi maa ko jëndal oto hmm. oustaz Mouhamed Mbaye mi defal naa ko teraanga hmm. oustaz Mouhamed Mbaye mi defal naa ko nangam boo bëggee gis ku ñeme yàlla ku mën a fen pire jàppal nit ku yor société nga xaritoo ak moom bu ngeen demee weer ñaari weer ñetti weer nga xam ne xarit bu mën a fen nga am xam nga lu tax dañuy ba autoritaire waaw natt leen ci ñu léeg-léeg ñu la diw yow mi ànd ak ñoom ren di déwén yaay xam ni kookoo leen bàyyi ñoom bàyyi wuñ dëgg la parce que gis nga di may nit dara mhm. di ko xaarloo li kii wax léegi mhm. dinaa la may nangam di xaarloo dinaa la may nangam di xaarloo kooku bu amee jom bu mu la ko mhm. laajati parce que gis nga sawaay fu ma toll sa affaire bi fu mu toll da ngay dem ba xeebu te gis nga kalandoo bi nga yor di ko dawalal sa bopp mu lay leer na sa xaalis la jar na la gënal 4 4 bi nga xamante ne dan la koo may gis nga di la dimbali di la déglu gor doo nga ko mën waaye ku lay dimbali tëdd la te du la déglu bàyyi ko fa parce que àdduna jeexagul mhm. te yàlla day wëndeelu mhm. ki la dimbali ren bu déwénee mën nga koo dimbali wallaay dëgg la de àdduna mën a war a man ma daan may samay xarit daal yuñ solatul man wax na la famille géwël laa laa do dal yi nga xam samay xadi ma don andal sen papa yi ay douanier lan won dal yi dan solatul wallahi mom lañ may may dal yooyu dama ko dan foot ba mu nice mom mhm. lay sol ñu may mako yeen say ci ñom la ñëk xamé luy madras xamoon mhm. nga madras madras chemise madras chemise madras chemise madras américain dañ mako dan may fala laa déggee turu madras te man mhm. arab laa jàng ma dan jël yéré yoy ñom xam nga dem dik bi dem dik bi mi dogam ñom dañu amone carte sen papa yi leen tolo abonné. Mhm. man pour ma dugg ci oto bi euh, bis bi faw ma faw ma jënd. bis dana dana dis ci yow dafay dis parce que carte la ñu am. mais jamono yi Sotrac. voilà ñu Sotrac ma jël si paire. Mhm. boobu maa ngi jàngee falaax bu pikin. Mhm. bu ñu yenn saa yi ñu jiitu ma yenn yi ma jiitu. mais dama sentir que ni comme man sama bàyyi mag la. bu ma bëggee bàyyi xel ñii ni ñu mel. du ma nekk Mouhamed may bi ma soxla. sama yaay moo daan fay xaalis pour may jàng. te li tax may jàngee yëmbal laa juddoo bëgg a dégg pikin ndax ñoom dégg naa ne ñu leen di transféré ma ñëw dekkoon kër ga mhm. ni sama yaay yaay dañ may transféré Pikine mhm. sama yaay ni moom mbaa fay bi seerul man ko ah, nañ ma fayal rek mhm. sama mag bu góor jëndal ma vélo kii xam na ko Amma Dieng mujj gi vélo laay jëlee yëmbal di jàngi ji Pikine ba ci yàgg ma mujj nekk sama kër mag mais Yves sama xarit yooyu ma doon àndal ñu may may dàll tey wallahi wal quran ñu bari bu ñu amee soxla man la laaj parce que bàyyil xel ni seen baay yooyu retraité nañu wallahi ñoom man la bu foofu bu fekkonte ni sama éducation baaxul mhm. parce que nit dañ la yàq foo amee vingt et nag responsabilité famille jeex na ci yow koo gën foofu ci sa génération yaa koy tànnal sa bopp mhm. boo amee quarante ans koo gën ci sa taaw nga ko gënee mhm. bu boobaa nag yaay tracer sa yoonu bopp xool fi nga jëm ëllëg sa ay doom nga def leen ay nitu nguur yàq leen def leen ay sang ba ñoom ñu ni sunu baykat nangam sa doom yi nga wax leen fii nga jaar yaa un jour di a retraité ni sa doom jaar naa lii laa bëgg nga def ko lii laa bëgg nga def ko mhm. parce que génération bu mujj bii boole ñu bari xamuñu Moustapha Gueye seetaan ñu bëreel ñu bari dañoo dégg riiru mhm. am na xale yoo xam ne fàtte nañu màng deux mhm. te jamono yooyu ñoo fi nekk ñun ay temps bu ndaw li nga gis booyu génne slogan oustaz yu bees ñu wàcce ñu ñooñu yéeg parce que yàlla dafa fiir ci nguur bëggul ku ci sax nguur kenn sax yàlla dafa fiir ci nguuram te surtout booy fëgg sa dënn loolu naan maa fi ne maa ko yor. loolu la ah, gaa yi la del fëgg sa dënn. waaw del gaaw ni man. lii lépp sa dëgg ba liggéey affaire bi nday ji la nga naan. alors euh, Khadija parlons maintenant showbiz sànq yaa ngi koy euh, brossé. Mhm. fi showbiz bi toll tey. dinañ ñëw aussi ci sorti Pape Djibril Fall bi. Mhm. parce que boobu léegi je pense amuloo occasion wax ci. Mhm. par rapport ak euh, théâtre kat yi wala ba acteur wala artiste comédien yi ñu leen di woowee ñun. ñu leen di woowee waaw yéen waaw <laughs> ak la mu ca waxoon gars yi jël interprété ko bon ku nekk ni nga ko ni nga ko déggee te peut-être vidéo bi li ñuy wax rek dañuy dagg benn partie exploité l'homme comme ni ñu mhm. série infidèle. Mhm. jël parti di la indi parti bi dafa dafa parti bi dafa donc Sénégal lañ ne et mom nañ ko xaar chaque jour ñun ku ci la dal. Mhm. nga télé wala ngay parti lay maintenant après malheureusement bari amuñu culture télé ba tey. tay mu vidéo affaire bi def yi effectivement li wax la ñii clash ko. ba wax ji wër ndax nga ko dundee. ok man ni ma ko dundee. mooy que man mi di wax ak yow. dama dem ba di woo acteurs yëpp na leen jaay leen ma histoire bi ma jënd ko. Mhm. parce que boobu amoon naa benn level bu ma amoon. Mhm. parce que respect bi ma amoon ci Pape bi mhm. honorable ah. ah surtout député honorable Pape Djibi mu doon koo xamante ni man dama doon wax naan exemple man Sénégal. ñaari jeune laa gis yoo xamante ni si yàlla dimbali na leen mhm. bu bu nu góorgóorloo mën nañu nekk président mhm. muy Cheikh Bakhoum mhm. mooy bu oh, DG ADIE kooku damay taxaw ne ko tôt ou mën nga nekk président du Sénégal am na Grand Yoff oui c'est un petit frère à moi mm, macha bokk na ci ñi ma naw ci loolu mais liñ naan des fois cat du wees montage boobu même donte am na wax na ci parce que wax ji li déranger. Mhm. mooy métier bàyyi jàmbur wala métier ndayu jàmbur. Mhm. da nga ciy tey. Mhm. mais après est nga. xoolaat vidéo bi. non xoolaat naa vidéo bi. fi mu tàmbalee même même fi mu tàmbalee même même bi ñu ko daggee. même bi ñu ko daggee. moom nee na am na ñoo xam maa leen doon wari. am na ñoo xam maa leen doon abal yëre. ñaari moo yooyu rek erreur technique la. c'est une faute lourde. est-ce que du woon jàngale tamit. non non non même buy jàngale du noonu la jàngalee. Mhm. parce que ci métier baayu jàmbur nga nekk. Mhm. gis nga boo nekkee ci powu jàmbur. Mhm. mi ngi mel ni man moo toog fenn. toog ne waa Yves day des fois booy animateurs yi des fois maa di may lii maa def lii. loolu dafa ñaaw. moom amoon na nan nu mu ko doon waxee man en tant que artiste man toog naa ci tele vidéo di xas artistes yi. man mii def naa ko. mujjul fenn ñëpp dañ ma demee grand tu as parce que dama ne ci milieu bi xam nañu dund. te na ma ko waxee dama ko formuler. Mm-hmm. mais moom la mu def bi mu njëkkee génn dafa doon def sorti mm-hmm. ne gars yi maa ngi jégalu c'était lii c'était là. Mm-hmm. man dama doon def sama statut ba taxé ko. de con. mu bind ma ne ma déet parce que mi mooy suivre. <laughs> ah oui parce que man dama ko sopp. actuellement il est en train de bi mu amee may jël coow li di dem di dem ba réew mi yëpp commencé ndeysaan ku baax. muy Fred. mooy Cheikh Gadega. ndekete daf ko jege lool. le petit frère de Badara. damaa toog mu woo ma. 23h ba 0h. ñoom bi xaw ma ko woon. ñoom Fred ñooy staff bi. Fred woo ma ne ma grand yow ku ñu naw nga. man je suis avec la famille. def naa li def naa la grand dama la ko ñaan teggil li teggil laa. mu rus ko tamit may ko ko. ndax tamit aussi artiste la. sama rakk la ku ma bëgg la. Mm-hmm. tey tey tey li ma naroon sol tey benn costard. Mm-hmm. moo ma ko indil moo ma ko may. Cheikh Gade la Fred. grand gis naa sa affiche da ngay def émission non grand wooteel gaaw ñu indil la costume mhm. nga demee ci émission boobu noonu mhm. wallahi azim bi caaxaan mooy mhm. li ma envoyé tey ce matin cheikh la kon donc nit ku baax li noonu mu ne ma grand dimbali ma nga bàyyi coow li ma may ko ko woo artiste na leen bàyyi mu sedd mais loolu da di erreur boo xamante ni euh, munul bañ dal doomu aadama parce que mais ça li mu wax quand même non non déggu li ma la dafa am mais nan la amee am na de. artistes yaa ngi fi di ñaan paas. artistes yaa ngi fi di diiñ ba dee. artistes yaa ngi fi di àbb yére. artistes yaa ngi fi aussi di def naka sudul noonu ay nit la ñu. mais mais mais lii sax gis nga faw ngeen koy généraliser. Mhm. métier moo gis. Mhm. moo gis day am ko. bant boo jënd. boo ko bëggee def armoire. Mhm. faw nga am loo ci raboté. kopp mhm. yi génn li mhm. ciment di seer seer boo dóoree ci ciment bi. faw am lu wadd ci suuf. jeesneer bi ngay sol. lu mu seer seer mètre faw am loo dagg. xoolal Yves nit romb soj. xàmmeewul xeetu jesneer bi sojam moo ko moo moo ko ñor jesneer mhm. ba lay for ci téyeur ba ni ko may ma ndax may ma morso yi mu jël mu ñandoo ko mhm. dëgg la lépp loo gis boo demee tey ci théâtre mhm. am na ci théâtre kat yoo xam ne ba tey ji fii may wax ak yow wax na dëgg dañuy ab yére bu ñu tourné émission man dina am ku ma ab yére dinam keneen ko ab yére ci biir député yi boo demee am na député boo xamante ni xoolal du sol yére mu rafet civilisé wul boo xëyoo nga fat sa bakken boo xoolee bët yaa ngay laas. Mhm. tànk yaa ngay bacc loxo yi. ça veut dire que mekk na député nit ah te formam joxewu ko ça veut dire yàlla moo ah. loolu Pape Pape Djibril peut-être fi muy ah. waxee mooy am na ci ñenn ñoo xamante ni tey ji dañoo saarani mhm. mais tey doo romb Assane mhm. di di di ko xool. doo ma romb di man même man mi. da nga da ngay romb ku mel ni ku mel ni Mansour Mbaye Mansour ah, Mansour xool ko tey doo ko ñemee ni ko Mansour nangam ak nangam ak noonu la amee tey métier moo dem ci àdduna am na mm-hmm. tëggkat bu bongo maan boo xamante ni mm-hmm. balaa muy bongo kenn du ko xam eh, dugg ñu dàq ko boo xamante ni fu mu dugg nit ñi photo ak moom wala déet am na tamakat boo xamante ni fu mu dugg nit ñi duñ ko faale mm-hmm. ba ci géwal yi am na géwal boo xam ne bu duggee ci géew ba solo ak ñetti abdoom ak parfum bu waxee dañ koy déglu am na animateur boo xam ne wala de tey am na Yves tey fu muy dugg waykat bu yéeg ci plateau di nga ko way mhm. parce que du xaalis bu mu lay jox mhm. mais am na feneen fu mu lay xaar mhm. gis nga Sénégal lu fi war duñu faral la ko delloo la ko ba mu des sa personnalité sa personnalité bu waddee kenn du la ko faral euh, benn Benoît Diop bu seen TV mu ngi seetaan nee na mu ngi lay apprécier Benoît sama gars mu ngi message sama waay léegi la wax am càngat nit ku baax nit ku xam nga ku gën xam nga télé ku ci ëpp danger kii see théâtre mhm. tëdd ci kaw lal mhm. ak jigéen bu ko lewul mhm. parce que yàlla nag dafa ni carrément li nga xam ne yaa ngi koy def te neexuma nëbb ko boo ko nëbbee dinaa la suturaal mais bu dee lii dama koo tere nag man yàlla nga daal di ko fang-fangaaral zee ko man nit yàlla am naa feebaru tooke boo xam ne dinaa la ko teg balaa ngay dee ñëpp dinañu xam ni carrément li nga nekkoon neexuma déggoo li ma la wax yàlla xamul lu muy jàngale. yàlla ça veut dire que ci kaw lal la. Mhm. ki nga tëddal <laughs> bul ko jox loxo bu dee jàngale. déggoo ma de ki bul ko jox loxo. Mhm. ko akolaat ngeen bokk benn lal bu ngeen tëdd. Mhm. même bu ngeen dendul ngeen sangu yéen ñaar. wane ni lii nangam la te yàlla waxam du toxu du teggeeku. faw yàlla am fu mu jaar ak yow. tey eh, supprimer leen sama séquence bi ma def tey. néew na nga gis <laughs> néew na sama séquence tey bi ko de. <laughs> Assane xam na li may wax néew na nga gis zéekatu film. wala zéekatu théâtre balaa muy dem barzaq yëgoo feebaram ba ñëpp wax ko. wax ma rek néew na kuy tourné théâtre boo xamante ni tey jii Sénégal xam nañu ko wala muy tourner film. Mhm. boo xamante ni avant muy dem Barzak xëyoo rek dégg ñun la dem na. faw nga dégg feebaram ba ñëpp yëg ni feebar na parce que yàlla dafay jàngale yàlla nag dafa bari yërmande. Mhm. déggoo ñu naan yàlla coonoom yam àdduna. c'est-à-dire mhm. na ci jaamam yoo xamante ni du leen laaj biir bàmmeel. du leen laaj yomal xiyam. mais ci diggante feebar bi rek yàlla daf leen fay teg li mu diggante woon ak ñoom. parce que wax naa la sànq ni la yàlla day jégal ay jaamam tey nit mën na ne ci safaan dem bay waaji de jéggalu yàlla mhm. waxuma jéggalu mais ñi ko tiim di ko jullee rek am na ko koo xam ne mu ngi sol yére yu oyof mhm. te bu nee amin rek yàlla rus ko te yàlla rus na jaamam bu ñu téye teg ci jaat mhm. naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba teg ko ci bàmmeel naan allah allah gasal ko ba mu xóot ñu maasale ko ay jullit ñaan malaaka yi dugg di ko mbugal yàlla jomb naa def ak jaam macha allah non moo tax mu xaw mu xaw a yéeme gis nga affaire Pape Djibril après euh, artistes yi ils ont compris parce que gars yi naroon nañu def ay plainte def ay affaires et tout ça. mais vraiment. Euh, mais bu ko plaintoon est-ce que dina mujj fenn. ah non kaay nag ma xamal la asso am nañu ay association yu am doole. yoo xam ne que plainte bi c'était quoi. bu mais non mën nañu bind diffamation wala ñu war bind leneen. mais tuddul du tuddul tur mais mais quand tu parles artiste. Mhm. xam nga su ma nee animateur il génnoo ci sa bopp. ñun ñëpp la de. il. Eh. kan tu kan ne boo nee animateur génnoo ci sa bopp. mais boo nee mbër boo ko ci doo mbër. mais yoon aussi dafa am lu muy. mais yoon ko. Mhm. yoon yoon yoon tamit dafa xam ñu siiw. Mhm. yoon dafa xam ñu siiw de. Mhm. moo tax ñu ñuy filtrer si suñu téléphone yi. di ñu suivre. di topp seen di ñu topp ñu ñuy topp ñun ñëpp. xam nañu lépp parce que ñoom. ñoom tamit aussi dafa am yoo xam bu leen yàlla mayee benn brin de succès. dañ koy utiliser autrement. moo waral tey Pape Diouf fi mu waxee. Mhm. parce que aussi am na ñuy abusé. Mhm. am na ñuy fowee. am na ñoo xam dañuy pare man ni tey. Mhm. Sénégal toog naa ci benn plateau. man na leen man je suis pas un mu tudd artiste ñu ne ma lu tax. man na leen man damaa seetlu Sénégal sunu artistes yi balaa ñoo dee ñu ketal leen. man yàlla buñ ma ketal ndax du ma artiste. wala a egg. non si il faut xam nga lu tax nga lu tax xam nga xam nga ñu ne ma non man na leen non ñun artistes yi coow lee fi nekk rek mais déggoowuñu tey koo ci toogal ñu ne ñun artistes yi ñi la ñu te koo génn ñoom ñu lay njëkk a yàq yow xam nga li may wax mhm. on est dans le showbiz ça fait combien xam nañ am na ci ñoo xamante ne poussé nañ leen ba ñu am fu xaalis la jël mhm. def ci Yves yoroon na fi moto mhm. yoroon naa fi moto laaj ko maa ngi moom lu ñu daan daj ci mbedd mi <laughs> mais après fan la mujj dañ ñuy tam dëm yow la ñuy xas après yow la ñuy xas jaxase la ak ay fans te ñoom artistes yi di la saaga suba ngoon te xam nga artiste man moom fii laa leen di tontoo xam nga artiste vous n'avez rien compris waay vous n'êtes que des ignorants xam nga artiste la moo ci métti artiste bu ci bëgg a réussir dans la vie del mm-hmm. déglu meloman te bàyyi fans yi mm-hmm. du ma ne nga ba fans yi bànn yi mm-hmm. mais seeni wax bul ko déglu cent pour cent parce que li la neex dong la ñuy def mais meloman ngay def erreur bu wax la dëgg te toll nañ jamono joo xamante ni si su fekkee yàlla dafa la may succès nga bëgg réussir dans la vie del déglu meloman te maytu fans fans li muy njëkk def mooy daw kott la di jooy Euh, dama photo ak yow par na ci utiliser na ko feneen. mais melomaan ngay romb mun na la booy kaay. keroog sa plateau bi ni nga toogee. Mm-hmm. ni nga waxee. ni nga waxee baaxul ah. mm-hmm. Mm-hmm. dafal ndànk ah. li nga wax da juum waroo ko wax da nga juum man sama jabar tey. billaahi euh, may tere léegi plateau. ah wuy boo xee mu ne moom moytul plateau yu bari yi. parce que wax dafa doy waar. te dama gis gars yi léegi dañuy juum rek. ma ko ah man day du sama ngor mhm. mais sunu borom mhm. na ma musal rek dimbali ma ndax man duma dem ba wax mhm. luñ may xébé accident la su ko naree wax damay bay ndax nak aussi luma xamul xaw ko te duma bëgg lu neex nit ba fen adna jar luma ko sama âge mayitu ma ko te jamono day dox vaar mi ngi fi moy li oustaz wax léegi nii te man aussi sama parents ñi ngi dund soppé ak sama njaboot te rus naa yenn yi artiste yi problème yi ñu am yépp ñokay koy teg seen bopp yu ci bëri ndax Sénégal la gis bo ñaawee ñu ne la booy artiste nga nga tilim ñu ne la woo oh, booy mën nga jouer théâtre nga am laago ñu ne noo artiste nga mm-hmm. nga jouer rôle boobu ak ki am laago mm-hmm. kii seetaan ne non waroo ko def nii parce que laago la te nit la mm-hmm. parce que nous tous on est des handicapés on est des handicapés avant ñuy xëy kon tey lu bari tey ñun dañ koo nangu ba pare bëgg ko bañ ñaan gi mënul ñaar day gis artiste bu xëy dugg ci bureau gaay artiste boo xam day génn ci mbedd mi di def yëfi fi wallaay et pourtant génn sur am na ku ma ko wax yàggul dara mais bari na fi. di ma wax ne ma euh, xëy mu bëgg ma présenter benn kilifa quoi. ci dëkk bi bu nekk impôt domaine. ne ma mais dee fa jaar parce que artistes dañ fay ñëw. dégg nga mu leen di wax boobu moom mu njëkk a frappé. waaw parce que artistes dañ fay ñëw. nag man nag loo boobu njëkk a frappé quoi. c'est dans dee fa jaar parce que loolu moo tax du ma fréquenté li ma lay wax ni ne bu ma ko yàggul benn musicien bu siiw ci réew mi. Mhm. sama soxna mooy sama seede parce que ñoo ànd may tourné noonu juste mu ne mais pourquoi doo ñëw place nangam gars yu bari fa la ñuy man ko nit ku ne dafa am mhm. man doomu yaay laa. Mhm. aw habitude dem di fréquenté ji. musuma fàttaliku fu ma demee vacances daara moo ma boole woon ak génn suñu kër. suñu wax kër laa xam. ba fii may wax nii après média dugg. bi média duggee wutuma ay nit yu bees yoo xam damay dem man benn nit laay waxal. Cheikh Sarr. lu parce lu tax. mooy li nga wax sànq bokkuñu man ak moom yoon. bu ma bokkul ak moom yoon lu mu gis ci man muy fët mu ne oustaz nangam li nga wax léegi rek ci réseaux mhm. sociaux yenn saa yi man ko sawaay mhm. dafa benn théâtre bu waroon mhm. daw ma wan ko scénario bi ak leen may fay mu ne ma sa daraja romb na loolu bul fie nangam parce que sénégalais yi xamuñu vérité xamuñu jàngale boo si duggoon di jàngale sax dañuy dal sa kaw li ñu lay fay dootu ko jarati mm-hmm. ma jël loolu mu ngi may seetaan teg ne mm-hmm. yenn saa yi ay site internet yu bari di ma seet man ko diw nangam ak nangam moo may seet mu di ma sénégalais pardon pardonné tuñu comme li nga wax léegi mm-hmm. te juum dafa yomb te titre yi gars yi li ñuy bind ak li ne ci biir wax ji du doon benn ki nga xam ne connexion téeméer la am mu gis ne ñu ngi bind épuisé day saaga nday dugal pour fanaanoo ko pour mu jëm suba wax ma réew mi wax ma muy sëriñ kuy feeñ tele ku nit ñi dul saaga amul fenn ku xëy mo tax yenn saa yi damay xalaat benn benn bayut Seydi El Hadji Malick mu wa baada sabbin ginaaw bi ndan saga saaga yonent bi wa tadlilin wa tasfihatin axfaw lahu kullama ma min idami muni def nañ saga nañ ko def nañ ko ku dof reer lu ne wax nañ ko ko te tay taxul moy gën ci ji def mais gis nga lima ma wax sànq nga baal if bala ma koy fàtte parce que site internet dafa doy war ci mam Matar gis nga diine l'islam li tax yàlla apprécier yonent bi est-ce xam nga ni yàlla dan na tollu fum dan wax yonent bi ma ngi dal ci sen kaw dem na fi taayif ñu sànni ko ay xeer mu ànd ak Zeyd ibnu Xaaris xeer yi yàlla mo ni Jibril demal nga déewal ma yonent bi niko xeer yi ñi sànni mu ngi ci toj na óom bi dret jangi rogolat rogalaat mu ngi rombu teustenam wax ko niko yàlla neena na déglootu la yow yonent bi bu sa dret la lay suuf adlo bi tukki jibril ñëw ni ko yàlla nee na Muhammad bu sa deret laalee suuf sallallahu alayhi wa sallam àdduna tukki dafa samp tànk tourné yam ci benn garabu tàndarma mu lem fa tëstani mhm. pour bañ deret di laal suuf mu mhm. yéeg ci kaw garab bi di yéeg ba ci kaw a kaw di jàppandu ci yonent mhm. te yàlla yónni ko gis nga bi mu commencé di di mel ni kuy animé di miir parce que deret ji dafa bari ay jinne ñoo ko doon muucul deret ji ak ba taq bii la atrafi rasulil bi mu demee ba dal pourtant dafa wàcc bi mu wàcc yàlla dafa ni ko diggante montagne bi ne màkk ak bi ne taayif maa ngi leen di boole kenn ci diggante bi ma jël la yow yóbbu la ci bu la mu ni yàlla ma foogoonte ne danga naan ma walal nga ma seen xol yi ba bu ma waxee ñoom ñu d'accord yàlla ñoom ñi bu nu ma gëmul am na ñuy ñëw ci seen ginnaaw seen digg yi maa ngi ciy gis ay laa ilaha illallah muhammad rasulullah saa yu ma xoolee ñooñ muñ leen diine jooju nag ki ko dirigé woon te mën a muñ loolu keneen ko xaajamal diine war nañ laa orienté ci orienté bu civilisé mm-hmm. gis nga léeg-léeg nit juum nga wax ak moom noo xam ne yar nga ko ba faw mm-hmm. mais léeg-léeg nit juum nga pinir ko pinir boo xamante ne yaa ko màmmuloo mm-hmm. dëgg la ça c'est vrai Yves fa gën a dof. Yves nit di dina juum. Mhm. nga orienté ko. Mhm. man yow Yves du du du du du du tijaan nga. Mhm. du ñaseen nga. wallaay sa téeméeri xel xalaat na nga dem jumaay jumaay Kaolack di fa tuur ndox ci biir jumaa ji. xalaatu ko biir jumaa ji laa la wax. xalaat nga ko. xalaat nga def ko tuuba biir jumaa ji. bu ma dul lool murit sax du ma ko def. xalaat nga def ko Tivaouane. wallaay kon nag bi laa la wax jàkka bi. nit dugg ci bir jàkka ji yonent baa ci bir jàkka ji omar nga tok ci hmm. ji ali nga tok ak hmm. omar gëna sadik ñep hmm. nit dugg ci bir juma yonentou bi di saw ci bir juma ji yonentou bi la la wax bir juma nit dugg di tour ndox omar ni bërit mu teeku xam nga lu ko njëkk wax bu gën dagge saw bi mu ngeen ko gañ bàyyi leen ko xolal patience bo muy jangale to muy gën di mindeef mu bayiko mu tour ndox ba pare mu leen bu kenn juk bàyyi leen ko ba mu génn waa ji génne dem yonent bi dab ko laal mbagg bi ni ko bu nu yeen masaajid li salaat laa leen bi ni tabax juma jullee taxoon tuur ndox taxul boo bëggatee tour ndox na nga ñaan ci kër yi tuur ndox d'accord wan ko ginnaaw waa ji tànk yi ñoo dee jàngale waa léegi kooku nga bokk ci diineem war a am argument yoo xamante ne bu nit juumee àndal ak ay kilifa xam nga lu lu lu jigéen mënta muñ ci sëy mhm. jigéen mhm. bu dee bu dee jabar ju baadoo la mhm. mu tëdd ba guddi nga raay bopp bi ni ko kon mën nga maa muñ ak ni nga nekkee sama xarit teggil sa loxo nelaw doo am jàmm góor noonu sa jëkkër we xat nga ne ko ni ma la bëggee ni nga nekkee sama xarit nga naan dag may mere mais ni du yaa ma indi ci sa kër gi te nelaw bàyyi ko loolu mooy des ci xelam ba mu xëy suba ça veut nit kenn du wax ak moom ci fitna nit bu xamadee nga yaru nit bu ëppalee nga teey am na loo doon wax nit ki ni ko xolal bo solo yere olof ba jël mbaxana ñaseen di teg ci sa kaw cheikh ni mi rafété ku la gis daf lay sopp sa cadeau boko orienté da ngay gën parce que ñepp nga lay déglu Sénégal ñepp sop nañ la yow sang nga nit ku bax nga si sa nga sant xolal fi nga bok xolal fi nga jóge xolal fi nga jaar mhm. est-ce que sétan nga émission bi ma def man ak mom ak Cheikh sant wala sétan ko gis nga ci radio bi la won lolu télé bi direct ak rajo ku ni wax Yankhoba nek police centrale dafa joy mhm. parce que seex mi ma nañ fexe ba buñ ko kafloo nañ ko indi ci démbam parce que nitu daara la buñ ko dugalee ci démbam dina wax fi mu jaar ci alxuraan dinañ ko wax ni ko ndax bàyyi nga xel ni da ngaa wàcc tali bi wala wàccoo tali bi te itam nag Yves am na nitu yàlla yoo xamante ni buñ la attaqué guerre dañ lay def salabil iman li Seydil Hadj Malick dooy ci fanaa jinaa yaa xaalixa seytaani min kaydihi salabil iman mooy ku newoon ci yoonu yàlla ñu fexe ba dévier la ci kurus indi la ci loo xamante ne yow mi ko wax sax da ngay defaat sa gémmiñ maa wax nangam. yooyu day am. bu nit melee nu mu melul woon. mbaa mu jëf nu mu jëfewuloon pour mu da nga koy indiwaat ci biir nit ñi. te mooy nga communiquer ak ñoom ba xuulu li naa si xusnan wax ci njekk wax ci teraanga gis nga nit ki automatique da koy bàyyi. te xam gën a garaaw. Mhm. c'est-à-dire nit ki lay clash à distance. bu nga dajee moom mooy waaw.

da lay clash bo fi nekkul nga taxaw mo wax lu clash parce que clay clash bo fi nekkul mom mhm. bo nekkee en face de lui mhm. da lay wax deug waa ji day confirmer day confirmer mhm. mais Sénégal moy li ma wax rek euh, les gens sont aigris nafiq gi dafee bari ak jaamu soxla gi dafee bari ndax tay légui nit ñi kan mo lay amal njariñ moy toujours ki nga xamante ni si mbaxam moy ki lay dimbali ci as dooleem dooleem légui mbëggeel bi non la moo tax mbëggeelu Sénégal métti. kooku ngay gëna mëna tag sax ah. mais écoute. man tay ñaawal ñaawalal non non écoute. ba ci ba ci ba ci kër yi. parce que dafa am benn sujet bu bu mu am solo bu mu laal. Mhm. et c'est un secret bu xam tane sénégalais duñ ko wax. Mhm. sur 10 mariages. Mhm. neuf yëpp xam nga lan moo koy tass au Sénégal. la sexualité. moom la ñuy jooytu. te duñ ko wax. sa yaay ngay wax sa papa waa ji dafa soof day guddee ñëw waa non non xale bi exactement xam nga lu ñu lool mhm. on a un problème de communication avec c'est tabou am problème de communication avec notre femme gis nga li mu wax nee na jigéen ak góor mhm. wax ju neex sarax la mhm. gis nga tey Sénégal su dix personnes yuy sëy am nañu problème waxtaan ak seen soxna ci sexualité pour xam pour parce que parce que soxna gis nga sëy sëy du guerre non sëy du guerre sëy bànneex la yonent bi nee na takk leen ci soxna yi am leen ci bànneex am leen ci yàlla mhm. am leen ci njaboot kon loolu du guerre tey boo gisee jaaykatu garab yi mhm. xew ci dëkk bi mu mhm. bari ñuy jaay ay dix mille francs cent mille francs par jour parce que yaakaar nañ ne sëy tànk bopp tojul walla xale bi ngay sëyal gaañoo ko nàccul sëyoo agressif te gis nga sëy lu mu gën a oyof gën a neex gën a romb. <laughs> waaw wàllum wàllum rapport. rapport sexuel rapport sexuel. am na yoo xam rapport sexuel buñ koy def. tant que ndaw si yuuxul gaañu ko nàccul. pour moom rey ko. te moom moo dee de ndax bu paree moom day wëlbatu ah! gis nga jigéen da ngay waxtaan ak moom sa soxna sa soxna. da ngay waxtaan ak moom xam li koy daaneel. la ngay wuti technique. boo ko jëlee boo ko rombee Pape waa jël ko te ñibbi. sa oto noppalu ko nga noppalu. <laughs> jigéen boo nekkee ak moom. muy soxna. ki nga xamante ni si da nga naan dung ci kanamam. kooku nëbboo ko dara. amatoo dara loo koy nëbb amatoo ko waxtaan ak moom. Mhm. waa chéri lu lay daaneel. Mhm. mu ne la man de lii ak lii ak lii. léegi yow boo leen ci nekkee. Mhm. noo pare nga tëdd ngeen noppalu ko ngeen. du ko wuti feneen am. waaye koo xam loo ko jaay leen ci suuf nga ne ca kaw dalay sa bopp. am na am na du daanu mukk da ngay am problème am na ndeysaan am na ay femmes yoo xamante ne <laughs> ñu ngi sëy plus de vingt ans vingt cinq ans Khadija comme jigéen a ngi fi. du ñu am bànneex amuñu plaisir dinañu mën benn bànneex. ci sëy ay ay ñu ngi am ay doom. ñu ngi sëy ñu war a sëy ñu ngi sëy normal. mais mais looloo indi looloo indi adultère au Sénégal. adultère au Sénégal. li ko mhm. indi ñaar la. am jëkkër am far. ñaar dafa indi adultère au Sénégal. Mhm. te des fois nit def na ko te tay ko nit def na ko parce que je gis nga jigéen boo nekkee ak moom mm-hmm. da nga koy jox li mu moom mm-hmm. nit la comme yow bànneex bi ngay am moom da ko war a yëg parce que yëgante la no <laughs> non yëgante la parce que aussi Sénégal mooy dëkk boo xamante ni man li may wax rek gis nga nit nit nit la te gis nga bopp <laughs> góor bu boppam feesee rek suufam oyof dëgg la mais li koy indi mm-hmm. mooy soxna si te ñu suñu femme yi au Sénégal lenn mooy seen fe euh, cat mën nañu préparer mariage cadeau yi ñëw dañuy jënd deux battants armoire yoo xamante ni si lépp ay nuisette la ak i fer ah. ñu sëy ci une semaine de semaine de noces mm-hmm. un mois buñ ci jotee mm-hmm. buy tëdd day ngeem baa mosol jiin mm-hmm. boo xam ne léegi mag laa tal béte boo ñaa man de boo ma safee boo léegi yow en tant que góor nga nekk ak moom mu tàmbuloon la benn affaire de un mois muy neex mu xëy suba di ngeem dama sonn dama lii dama laa waa ji danaan góor laa noo du bu génnee xale bi nekk ci biti nga xamante ni si moom day taxaw mhm. bu ko mënee am nga xam day am coom lépp mhm. non fa lay fajee merem parce que danaan nit laa day mer moom aussi mhm. am na fu muy toll aussi waa ji amul du ko njariñ day toog jékki-jékki gis beneen booy nekk ak moom du ko tey nee na parce que nee na amatul plaisir problème am na moo tax nañuy waxtaan suñu biir. jabar da ngay waxtaan ak moom ak jëkkër. Assane xamoo gar mi nga gar mi. gis nga loolu dama la ciy fekk si assan problème bi mooy aussi xale góor yi nga xam ne dañuy gaaw a daanu. nga tamit moo waral tamit produit yi nga xam ne ñu ngi koy jaay ci biir Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. ah góor ñu bëri dañuy nekk ak seen jabar. Mm-hmm. dañ naan dama stressé dañuy daanu rek ne la dama stressé. dama liggéey boobu dama sonn dama jógee télé ba am sa jot. nekkitam daanu. Mm-hmm. alors que il cherche pas à est-ce que ku jigéen ki daanu na. Mm-hmm. parce que tamit lenn dafa am oustaz. Mm-hmm. loolu tamit war ngeen koy def ci seen. congrès yi ngeen di def ak euh, yi ngeen di dem di wuy ji femmes yi di waxtaan ak ñoom ci seen. Euh, am na lu ñu di ko def. yooyu ngeen di def. association waaw waaw seen collègue yi waaw yooyu ngeen di def. boo koy jàngale sax koy jàngale ci conférence mais nga jàngale ko parce que yow li ci taxu ñu ma jàngale jigéen ñu bëri ñu ngi ci seen biir sëy comme DJ Yves ni mu ko waxee amuñu bànneexu sëy te ñu ci am ay doom te mosuñu xam lan mooy daanu mm-hmm. Mm-hmm. léegi dañuy génn fii dajeeg benn moodu mm-hmm. mu jël leen yóbbu seen xel donc ñu naan ku jigéen kii mi ngi wuti far mu ngi ci sëy mais mi ngi wuti far alors que ku góor ki tamit ni ñuy préparé jigéen asan soo yëgee na nga muñ na nga bégal sa jëkkër bul nangu jànk di ko taajal mu lekk bul nangu jànk di ko jox kafe bul nangu mu njëkk a jóg ci lal bi jigéen ñu bari ñoo njëkk a jóg seen jëkkër yi julli ñaari ràkka defar de déjeuner bi teg ah. tuur ndox gunge leen ci oto yi mais pourquoi pas góor ki duy dem duñ ne ko IV Assane woo ko wala oustaz mm-hmm. ne ko ah jal de. Mhm. dañ lay may soxna. Mhm. nii ak nii ak nii nga ko mën a yor. na ko mhm. na ko nga ko war a yoree. lii ak lii nga war a def ak moom. nii ak moom nga war a naxtaane moom. mais jigéen ñu bëri ñu ngi souffrir en silence ñu leen di violer seen biir néegu sëy te ñu waxuñu ko. te waxuñu ko te mosuñu ko wax. dañuy ñëw tijji leen comme pas a def jaxatewaat ci toog nekk Khadija toog. te alors qu'elle est malheureuse ci biir néegu sëy loolu nañu ciy dimbali yéen ñi nga xam ne macha allah yéen nekk ci modernisation bi bi nga xam ne mooy série sénégalaise yi. gis bi ngeen ciy def tamit aussi ngeen ciy lancé waale message. ça c'est vrai parce que di nuyu waale Oustaz Assane Seck bu TFM. mu may message gis nga nit ku tedd a ngi noonu. nit ku mm-hmm. baax xadi est-ce que xam nga ni. bu mm-hmm. fekkonte ni xol day am ay cimetière mm-hmm. boo fa demoon ziyaare ay xolu jigéen rek nga fay fekk. <laughs> Ah. xool ma ni la bu fekkonte ni ay euh, almeer mm-hmm. almeer waaw almeeru xool daa am mm-hmm. ay xoolu jigéen rek nga fay fekk jigéen ñi kese lu mu metti metti mën nañu maintenir seen ay doom mm-hmm. mais góoru Sénégal moo nekk koo xamante ni mbëggeelam li asan wax léegi mbëggeelu Sénégal tamit ci góor at la ñaari at ak boo amagul doom de mais sénégalais du soxnaam du ëmb mu kaf ak moom réew ak moom. amul soxnaam tey bu doon am doom. dana ah sama ñoom yaa ngi fa dama sonn. Mhm. xamul tey li tubaab di def tiim soxnaam. foon ko soulager ko bi di ko bës. bi ci des mooy. Mhm. yow tubaab la. gari na xol <laughs> asam xam nga luy garmi di xam nga luy garmi Ibu TV. <laughs> maa ah, ngi xam mhm. ak loxo bu béy ñooyam après géey la ñuy yëngu wallaay la boo nekkee góoru sang pire mat kilifa nag cër la waaye mën jaboote moo jafe ci góor sa soxna tëdd ba guddi wuy sama sama bëñ baa ngi métti wuy du yuuxu borom këram xam ni fi mu dëkkee pharmacie 24 heures amu fa mhm. pharmacie yi tëj nañu mhm. mu ibbi tiroir gisul benn garab loo xamante ni war na mën a faj soxna si mhm. bu fekkente ni góor nga pire te mën a yor kër di nga fexe ba yëkkati sa soxna tëral ko sa pooj ni ko xanaa xamante ni bëñ bu métti bur wi lay bañ boo defee tekk 10 minute léegi mu tane automatiquement day nelaw sa pooj ci sa loxo bi yërmande bu am bi ngay raay di ginnaawam wallahi ci lay jaaree nelaw na góor ñoo xamante ni tey jii seen soxna bu bëñam bu métti dangaa da xoolal dangaa sonn mer ba pare saal bi nekk seen seen seen di seetaan wala ñu waxtaan ak seen gel mais dama affaire bi benn la li sa jabar di def mu metti la tey ji imagineel bu góor daje woon ak jabaram ci bopp koñ bi mu taxaw ak beneen góor. muy yaay. xoolal ku mu ko nettali nga ne ko fàcce ko sa jabar caga la. te boo daje woon ak sa jëkkër góor muy nuyu ay. Eh, muy nuyu ay jigéen sa boo daje woon sa jëkkër guddi. mu nekk ak beneen xale bu jigéen nga jooy wax ko say mbokk ñun la demal nga jigéen mën na respecté jëkkër jabar nu ne. li kii wax léegi ak ay dëgg gis nga góor gu fidèle. góor gu mm-hmm. fidèle yombatul ku jàppagul moo am rek. Mm-hmm. ku jàppagul moo am mais góor gu fidèle moo yombatul. non man kenn du ma jàpp xam nga tax parce que ay soxna <laughs> damay communiquer ak ñoom mm-hmm. damay waxtaan ak ñoom mm-hmm. bañ naa ba bu may <laughs> ah. bu may bu may toog télé dama leen di woo mm-hmm. xam nga tax soxna dafa bëgg sagu jëkkër soxna dafa bëgg sagu jëkkër voilà wan ni ko ah. bu ma defee fët wax ma toog di def émission yaa ngi dégg yàlla seede na ko ak yonente bi sama code téléphone dañ ko xam mhm. benn baat laay bis bu nekk mooy du ngeen gis moi aussi bu ngeen gisee je t'aime nag ngeen comprendre te xam ne du maa ko dañ ko xam mais moi aussi waaw moi aussi moom du ngeen ko gis waaw mais moom bi ah, am téléphone baa ngi noonu xoolal ko jox mu ibbi ko te da am ñoo xamante ne ñoo saay saay saay saay koo xam ñoo lay provoqué xoolal di la envoyé ay message déggoo ma de man dama naan la am téléphone baa ngi noonu. en tout cas doo ci gis moi aussi. kon xale yi dama la bëgg nangam parce que man maay liggéey ci média. bi des mooy. Ah, ah, soofu ma nag. déedéet ah waaw. mais yow di ngay jot sa camion. Ah? yu bëri la non déggoo la booy la jantal eh, la. mooy de 40 ans. li jigéen di faible ci góor mooy góor yor oto. wala déet ah. li jigen di faible ci gor moy gor correct li jigen di faible gor yaangi ngi tele. wala budul lol yaangi ci tànt par force di nga dajje ko xamanteni mm. segam sama roomu gor sama roomu gor mom mo lay gis mm-hmm. apprécier la melni xalé ci sa kanam sa la jigen mais est ce que xam nga jigen ban ban gor moko jaxal mm-hmm. gis nga nga yor jikko yalla ci ñom leg leg nga moy ba ci ak nga ni ay yalla mm-hmm. xam nga tax nga koy baye xel moy ñak tegg beut bët ko ñak tegg ba bët la ñu mel ñom jigen tant que tontuwoo seen message ah yaa ngi leen di fitnaal. kumpa tant que yaa ngi leen jafe gisuñu la. Mm-hmm. Euh, yaa ngi leen di fitnaal. ça veut dire que temps bi ëpp may joxe temps bi ëpp bu ma génnee bëccëg. Mm-hmm. à tout temps damay woote maa ngi def nanga maa ngi def nanga man dama sax. sama affaire vidéo voilà parce que xamul tax. xamul tax xam nga xam nga la moo tax sa waay mm-hmm. gis nga li ngay neexalee ki lay atte boo ko joxoon kii lay dóor kenn du leen dégg neexal bi ngay neexal gel bi ci biti Ah, ah, waaw di ko jëndal hamburger te naa xam xamal dara de ñaara fi am. yow sax xam naa affaire yi. dibi saafa xew dibi saafa xew. Eh, eh, xam eh, saw xam sawar ma am na goor ñoo xam ne ñaari cam ce que xam nga ni am na gel yoo xam ne am na ñoo baadoo la. dibi saafa xew tant que yegg see góor bu hamburger bi mbuus hamburger bi tegee loxo rek ñu commencé am wala wala. damaa wala fekk wala. yow lan moom xaar nga yegg si am na ñoo xam ne ay kobaay lan. barki yàlla xam nga góor bu ñu dem yóbbu hamburger day sawar xel ma rek ne. waaw moom sori na. waaw léegi nag déception bi mu ci amee yàlla buñ ko koo xamante ni ah. yàlla yàlla baal dañ laa laa def comme dañ laa def comme épingle. Mm. yow téye gi rek lan lay oh. xoolal xam nga fu ñuy taxaw ci buntu fenêtre bi ngay taxaw. koo dégg ñun la. joxe ma ko sama fenêtre sa yaakaar. wallaay dëgg la deux secondes si commencé bi bëri. Oh. on a avalé la fenêtre. non man damaa jël la fenêtre. man kenn du ma boo nekkee nante. daaw boo bi yow. gis façon solu gi mu solu. ak dibi nga xam ne fii du baax. waaw ñibbil bu insister. mooy léegi nag yooyu xam nga li ma la mais nag jamono toll euh, jamono toll euh, Yves boo ragalee doo dem. ragal mais am kit gi tamit. ragal baaxul ci nitu média am kit bu ëpp. baaxul am sañ-sañ bu ëpp. Mm-hmm. baaxul xamadi bu ëpp kit téléphone yi gis nga nitu média waroo xamadi. Mm-hmm. xoola nitu média waroo am kit ba mm-hmm. jaay ko ñi ci mbedd bi xamal tax am na nit yàlla boo xamante ne mu ngi toog di la seetaan. acte bu taw ngay def. am na koo xam ne aliwe la yor. mën na dem léegi booyal. ko neex jël sa xam na ko. Mm-hmm. toog di la zikar parce que taloo ko nekkal mm-hmm. xala centième dan. Mm-hmm. boo bëggee xeex ak waa Sénégal mënoo fexe ba du am ku yu la dal. mënoo défendre sa bopp ci ñëpp. mais tey di nga am mag moo xam ne daf lay seetaan sopp la rek te yàlla tax. di la téyel tànk. am na ñoo xam da da ngay déggante ak ñoom téléphone. ñu ne dama laa sopp te yàlla tax. di la téye xam ne Baye Abdoul Karim Makarim al bi ma invité. néew na ku mu dul maanaam nangam nangam nangam parce que tey jii ñoom télé moo leen di mm-hmm. dundal mm-hmm. buñ gisatul njaboot bi mm-hmm. mais tey yow mi toog Yves boo gisee kilifa yu bari bari bari comédiens yi di leen neex parce que dañuy dund ci ñoom dañuy reetaan ci ñoom parce que gis nga Assane nit fu wër sëgam ne kenn mënul tëree ba du ko jël est que xam nga ne tey kii sang néew ba chaque jour vingt personnes yoonam ne kii suul kii gas chaque jour bu bu sañoon vingt personnes de parce que loolu moo koy may teraanga am na koo xamante ne tey jii chaque jour bu sañoon xew am parce que mbana yi muy jaar yi muy mm. toggee moo koy may xaalis teeru mbanay wala déet tey tey tey noonu keneen noonu Yves bi muy doog a ñëw télé mm-hmm. war a def première émission mm-hmm. wallahi guddi googu nelawul suba man bi may doog a def télé damaa amoon tablette damay def nii asalaamaaleykum bi oh, bi moom rafetul <laughs> bisimilah rahmaan bii moom rafetul di def ay vidéo parce que maa ngi xalaat ni a liggéey voilà ma defaat ni mais mais bokkul ak télé léegi nga xam ne damay xëy wëndeelu journée bi voilà ñëw def sa émission Yves euh, dem naa doxee samay activité 10 heures 50 laa laa dugg sama kër solaat yére 5 mhm. minutes laa daw pour egsi fii juste ma wax ko sawaay egsi naa mais maa ngi mel ni ku toog sama kër esow eh, mais booy doog def tey sa premier scénario télé mhm. lan moo tax ngay def test lan moo tax ngay def numéro zéro. dëgg la de parce que dañ lay corriger. def nañ fi numéro zéro yu dul jeex góor ñi fii ñu toll. faw ñu kët sa waat leen ci sëy mhm. seetlul Sénégal sëy yi tas ni mu toll mhm. xam nga yéen ñoo ci ëpp yi ci appartement yi dëgg la ñuy wéet sax surtout yi autre qui est ce xam nga ne bari na góor goo xam ne yaa ngeeg jigéen nga foog ni sa jabar la ba tey fekk yéen ñaar divorce ngeen bu yàgg yàgg jabar boo ko fasee ñetti yoon araam na la mhm. tant que keneen takkaatu ko ah, bu dee góor gu xamadi nga ñaari baat yu ne nga ni fase naa la te kenn du ko fekkee te fase naa la yàlla day bind fase bi nga waxaat fase naa la yàlla bind fase ko léegi duñ ko yëg mais si parce que am na da ngay war a fase ko keneen takkaat ko nga takkaat ko loolooy baax mais am na góor yoo xam ne du la beneen góor te kenn du ok ah amul du baara yëgoo non si non non mais am na ci nit yi quoi mais boo ko bëggee nga fase ko ñetti yoon il faut keneen takk ko donc kooku il faut ko nga nga nekk ci. waaw kay après bàyyi ko mu dem xam nga ah! mën nga ci kii. man jamono ji eh, ku ñooñu mën nañu ñëw <laughs> ma takk leen man. dawi ma ah est-ce que wóor na ci ku jigéen ki ki ko takkaat bu fa yëgee boppam. waaw du dem xam nga léeg dañ koy faral gars yi boo bëggee jabar yàgg sa loxo. Mm-hmm. Mm-hmm. xoolal koo xamante ni góor ñu bari xamuñu ko ndax nag mm, est-ce que xam nga ni. Mm-hmm. Euh, horaire. horaire bu yàgg daw. diggante dëkk ak dëkk moo la mën a wax ñaata doo daana ne ci diggante adri ko bo ñe fekk jigen joo xamanteni goor ñu bari jaar nañu ci mm-hmm. boo duggee ci biir bo amul sens yow goor ñe nakoy bokkat parce que ci biir goor ñoo ñi dina ci am ko xamanteni mm-hmm. ciapali bong bongam daf ko koo téye eh, lu neex lay def loolu ko def indi palaat ci palaat boobu di <laughs> xoolal xadi eh, sëfoor bi eh, xamna do daan yi ci kaw yoon bi lu mu daw daw daw daw xamna dekk nangam ñaatu do daan fa ne xamna dekk nangam ñaatu do daan fa ne yembal ñaar do doo yembal yëmbal mënuma ko ndax damaa bari jaar raccourci ci may jaar mais Yves il faut ñu ñëw ci benn point aussi sax ñu ngi uh-huh. doon wax ci Pape Djibril Fall uh-huh. donc on est salue de passage un grand journaliste uh-huh. Machallah. allah ci problème bi nga xam ne amoon ak artiste tamit ak génn bi nga xam ne génn na ko di nuyuwaale frère suñu xarit Cheikh Gadiaga doomu ndey Badara Gadjaga. di wax ni mom tamit euh, defoon na benn erreur bu ndaw par rapport ak artiste yi mais tamit tay wan na tamit ndaw yi tamit yoon parce que tay xalé yëpp bëgg nañu mel ni Pape Djibril Fall parce que tay euh, amana yàgg na ci média ku ci melni DJ kon mën nañ def politique des mhm. ah, créer ben, ben, ben, slogan mhm. déggal ko xam wax mhm. ak ko fenn ko député donc ça c'est à saluer ni ko Ils mais ñu ñëw fenn ci euh, théâtre ñu ni eh, nga des fa ci maison de production ah di liggéey ak ñom ñuy quand on parle de New York théâtre Sénégal mhm. on se réfère maintenant aux séries. Manam, mhm. ci la modernisation des mhm. séries sénégalaises. mais New Disney, à la fin. de tous les tous les comédiens ou tous les artistes qui sont là, c'est une fin qui est benn déclin que tu comprendre. parce que dans le on le voit des fois. mu y ci séries jouer ku am yu def mais pourquoi toujours suñu demee ba benn âge bi nekk ci ay quatre ans mhm. war a yegg ay ans 65 mhm. ans sax duñ fa yegg donc à base de 55 ans dañuy nekk yeneen nit mhm. association yoy ngeen wax ni yeen da ko am est-ce que mi ngi taxaw di len jappalé di wut di dem ci yeneen dëkk yi di def partenariat ak tuba bi pour mën len dimbali ngeen teel a am li nga xam moy kër manam li nga xam moy auto mhm. est-ce que tamit ñu ngi leen di fay. Mhm. pour ëllëg do leen nekkee retraite. Mhm. ngeen yox ay njabot di ngeen leen mëna jappalé di fayeeku as tuut boo xam ne seen doom duñu dépendre di défat. même chose bi nga xam ne seen papa defoon na muy théâtre effectivement motax euh, bi question bi dama ci content. trop et c'est c'est une question bo xam c'est à saluer hein. et c'est très important le pourquoi moy gis nga euh, dafa am lo xam dafa nekk ci phénomène ci suñu biir

ndax léegi yaa douze caméra tey fii gisoo benn caméraman bu teg tey caméra ci épaule amatul mm-hmm. Mm-hmm. caméra yi tey ku leen lii caméra doo ko gëm ay drone am na mm-hmm. kaas bi nekk na caméra nga teg ko dérangé wul fenn gisoo ñu ngi nii pépère <laughs> léegi yow ñu poudre la ba nga baax caméra yi ñëw monteur bi yokk sa densité lumière étalonné ko étalonné ko parce que léegi nag adduna bi dafa xarañ nga xëy ñu ne woo elle xale bi toj na série bi bokk la ki jàngi art dramatique di tourner ku mel dafa jàng art Pas Faye c'est des artistes. Lamine Ndiaye. ah non. c'est nos papa. non ñooñu waxuñu seen i wax. mais génération bi xew. Mhm. tar la ni utiliser pour nous jouer série pour producteur bi am c'est la faute au producteur. C'est Lolo, Nico indi. c'est mhm. un yi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 bëggul lu koy sonal ci loolu li mu bëgg la oustaz mbay ñëw na euh, Assane ñëw na tak lii laa am d'accord nga tak demee on tourne béyaa bi lii la tak on tourne et on tourne point arcos c'est des pros mm-hmm. dañuy répéter chaque jour 365 jours mm-hmm. am ay kilifa am ay manager mm-hmm. tey producteur bu bëgg a jaar foofu day sonn parce que day am circuit management circuit noo defal nànk ba pare di nga ko wax sa scénario lan la ah, ak parce que dañ ko jàng mais il préfère Khadija nga xam siiw loo war a fay waa Arcos cinq cent mille fay Khadija cent mille francs moom boo ko fay sa baax na moom na <laughs> pour am visibilité mhm. loolu mooy yàq nag euh, affaire yi parce que jamono day doxaa ah, xale yi dañuy gën di rafet mhm. te ñiy seetaan télé aussi ñoo indi problème ndax boo ñaawee di seetaan série waa ji bu yeewee daal ah kii dafa ñaaw trop ba du ma sànni <laughs> wallaay dëgg la da ngay gis ku toog ak jabaram bi du ko rate mukk te du ci wax mhm. du ci wax non non du wax c'est du non dañuy toog seetaan film rek xale bi lay xool. bu xëyee loolu lendemain mi ngi xool Yves wala Assane Lo mu xam xale bi. pour mën ko atteindre. walaay léegi sénégalais bi nga xamante ne exemple moom dafa jàng aar. ñëw moom pour génn aar wane ko. du génn parce que sénégalais yi ñoo. àttanutul toog di seetaan artiste buy jékki-jékki di wax moom dong ci ay. garab ak comme daaray kocc bu njëkk amatul. parce que nit ñi ñoo leen fa doon toog di leen xaar. il préfère gis. ñu baal ma. action sur action Marichou. wala aadama wala Ndeye Fatou wala benn wala benn maane mhm. wane wu puudaru def ay gestes woyute. Mhm. ñu ne moo ko yor. suba loolu nekk buzz. Mhm. mooy oustaz di wax te buzz boobu 24 heures la moom ak statut WhatsApp ñoo yem. xoolal tey ñi siiw ñëpp ñi xam ne xale yi moom la ñuy def tey référence. defuñu benn école des seetlu li ma lay wax bu baax. dëgg la maa ci xam dara defuñu école des arts. Mhm. tey ñi def tey Arcos. Mhm. ñi nekk Russie. Mhm. di jàng aar rey seen bopp. tey bi may ñëw léegi Sadex Fall Sadex Ba. mooy magu Marème Si. waaw Si di ci famille waaw. kooku moo ma formé depuis Fass. ak Marème Si ah oui Sadex. ah non.

li mu wax c' est tellement vrai. bokkul ki nga xamante ne tey boo ko invité woon tey mu poudre ñëw taxaw émission bi li ko ci neexee xam la la bëgg. non li nga joué rôle boobu mu sourire ree parce que mi ngi jaayu. Mm-hmm. loolu mooy problème mu série sénégalaise yi. léegi nit ñi nañu comprendre que ne artistes yi léegi léegi ku jóg ne artiste la. day gis ku nekk figuration deux secondes xëy suba dem BSDA wut carte. oui ne artiste parce que voyage yi yomb na. Mm-hmm. siiw bi yomb na xaalis baa ngi dugg. gis nga li fi ne lépp Pape Djibril li mu wax. Mm-hmm. wallaahi azim. buñ ko jël won dagg ko. Mhm. bayiko mu nek nonu ben affaire bu talalu. Mhm. ni ñepp comprendre. Mhm. parce que il voulait aider les enfants. pour wax lañ ne leen métier bobu pour ngeen def ko jàng leen am background. man mii do wax ak yow damay wax ne man. képp kuy dugg ci série wutal liggéey amal métier. série du métier. cinéma du métier légui parce que légui artiste légui pour nga doon ko. il faut nga am noom men am alal ñu jappé ne ki artiste la. mais tay bo siwé ta yoro mok zéro yam. c'est vrai. demal nga jàngi métier am sa liggéeyu bopp di am sa salaire bopp gis nga aar bi da mottali sa dépense artiste la mais mi ngi nii def émission am de am te bu xëyee defi leneen doful kon donc léegi nit ñi phase boobu la ñu toll léegi pour nag ñi nga xam dañ leen di katal dafa am mag dafa am loo xamante ni tam us tamit gis nga mag yaay dimbali sa bopp étant boo ci nekkee nekk ci aar il presse chaque mu defal la publicité. publicité. Mm-hmm. hôpitaux yi léegi dafa yomb. Mm-hmm. dara metteetul. Mm-hmm. fu ne woote nañ la fa dem leen ngeen inscrire am fa carte def leen lii gis nga ARCOS. reçu association artistes yooyu ngay dégg yëpp. c' est bien nice na trop. c' est très joli yàgg nañ ci ñu ci kii mais dafa demul. am na ci ñoo xam def nañu 30 ans ARCOS mosuñoo joué série. mosuñoo joué série. wallaay lazim ñi gisoon nu ba dee. amul sens. tey ñooñu tey ñooy dem ba am benn ñaari film yu ñu joué ñetti film mag mag dab leen. oui inscrit wuñu IPRES. Mhm. cotisé wuñu. ok amuñu carte de santé. Mhm. ñu xëy feebar dafa gaaw. ndax léegi sénégalais yi seen i bët xooli miti sax da lay rey. Mhm. ndax yàlla reyatul Sénégal. ñoom ñooy rey léegi. donc raison boobu moo tax ñoom nañu defaru tey kuy dugg ci aar wutal métier. defar nag sa bopp. di cotiser IPRES bu fekkee nekkoo ci société bu la cotiser. dimbali sa bopp ngi ëllëg. loo am as tuut dencal. lu mu tuut tuut def ci loo ci attan pour ëllëg mu jariñ la. xam nga problème dañoo bëgg lu yomb. xam nga problème Sénégal bari na ci loolu. Assane voilà daa loo xam ne dafa am problème ci ñiy feeñ télé te loolu tant ñu ngi gëm loolu dañuy sonn seen bopp ñëpp xam nañ ne salaire yi baaxul. salaire léegi nii ak ni nga bëgg dundee ak ñi la yaakaar ñi ñi nga xamante ne yow moom buñ la gisul seen dara du baax mais mënoo ko yor ak sa salaire bi nga am léegi yow nga nekk di jouer ci téléfilm yi. nga génn benn yoon ñaari yoon nit ñi xàmmee la nga dootoo yéeg car rapide. dootoo dugg bus dootoo dugg clando. loolu laa lay wax indil nga sama problème. mais loolu laa lay wax. bii mooy baatu mooy baatu siiw te amoo. te yoroo bi mu la wax sànq day fitnaal nit. gis nga Assane.

mën na ma jàngal loo xam ne Khadija bi du ma ko. mais attention de est-ce que nag Khadi. du lool de Khadi nga Khadi. Mhm. dafa am ay nit yoo xamante ni yàlla dafa am ay nit yoo xamante ni loo mën a mhm. lijjanti. Mhm. dafa am ci ay nitam. am na ko xam ne mën naa ñëw ci théâtre tey fekk am na ay multimilliardaire personnes yu mu xamanteel mën naa lijjanti dafa am ñoo xamante ni ñu baal ma. Euh, dañoo rëy. duñ déplacé wu lu leen seen liggéey mayul lijjanti wuñ ko. am na ñoo xamante ni mën nañoo xëy yendu kër kii fanaan kër kële. Ah, añee kër kii ñooñu. mën nañu toog waa diw doo ma may oto waa diw kañ nga may may oto buñ lay may oto sax mën naa nekk oto jiib mm-hmm. te naa la xamal dara de bari na ci jigéen joo xamante ni périg bi mu tànk diggante ñaari tànkam ñoo ko ko may dëgg la bari na jigéen joo xam ne saa yu dëggee tànkam ci oto na mm-hmm. muy toog na jàpp ne diggante ñaari tànkam ñoo ko ko may mm-hmm. am na koo xam ni téléphone bi mu yore li muy seer seer bu duloon teg diggante ñaari tànkam du ko am parce que tey ni la ko kii waxee am na jigéen joo xamante ni tey ci taaram ci lay sukkandiku léeg-léeg nga gis sëy yi gaaw a tas parce que tey léegi caméra yi ay rebot la dafa am effet góor ñi ñoo ci gën a naturel jigéen ñi parce que góor ñi ni ñu ci mel noonu la ñu mel mais jigéen ñi tey dañuy defaru koo xamante ni tey bi mu defaroo ba pare comme cuubu tàkkal fii dafa verte fii zone fii rouge xar kanamam nga ko bëggee yaa ngi bitim réew nag bi ñëw gën ko ko yokkalati mu yónnee la ay photo yu mu toogee jekk am na ñoo xam ne boo demoon seen kër tey comme ba yàllu xuja bajaan mhm. mais ko ñoom day faatu la dem di photo wuji nga foog na ñu ngeeg dara nga yónnee leen première cadeau boo def 10 millions mhm. bari na ci jigéen ñoo xamante ni ñoo faussé góor ñi mhm. parce que yenn saa yi dinga taxaw di simmeeku sa jëkkër def nii fekk absenté na bu yàgg nga commencé di simmeeku benn par benn di simmeeku benn par benn mu xool nga sëlmu mu gis teg est-ce xam nga ni maquillage bu yàggee ci kanam pour mu def ay taas day yomb bari na ci nit koo xam ne looloo ko dugal ci sëy jëkkëram weer la ñuy def mu dem ci xale bu jigéen bi ko xañoon jàmm parce que am na góor ñu faible nit ku ne ci écran la nuy bañ a gis mm-hmm. mën nañu def ci yow ay milliards on que ni sax jigéen ji nekkaloon moo daq taar ki ci télé bi mm-hmm. am ci jigéen ñoo xam ne dañu dugg ci théâtre bi mais defuñu ko métier mm-hmm. dañ ko def benn turu pour benn zor gis leen takk leen benn benn gis leen takk leen benn diw takk leen ñu bari noonu la ñuy duggee ci film yi am ñoo xam ne loolu rek boo leen dugal ci télé loo leen fayul baax na nañu dugg rek dem mais ñi nga xam ne dañoo organisé pour nga jot seen client faw nangam faw nangam faw nangam loolu mooy li yëpp dañoo dañoo xam nga xam nga li may wax nii d'habitude Sénégal dañ koy ragal di wax parce que man des fois li may ragal tout le temps man c'est pas parce que wax nga def nga erreur non waxoo defoo erreur parce que ci li nga xam la. ndax ndax nag butéel boo ko ubbee kubéer gi. li mm-hmm. butéel bi saf. saaj bi di xeeñ mm-hmm. man dama ne ci milieu bi. Mm-hmm. du lépp nag la ñuy wax. mais xam naa ci astuut astuut boobu nga ci xam. pour dimbali ci sa sœur sa cousine gis nga tey exemple ngay toog Sénégal. ñu ne la non producteur yeeg léegi ba boo suwee sax léegi euh, góor ñi dañuy def euh, promotion canapé gis nga promotion canapé. moo jeex ci jamono. ba mu jeexee léegi safe de des xale yi léegi ñooy def promotion canapé producteur yeeg euh, star yi. c'est-à-dire producteur bi defatu ko. non producteur bi defatu ko parce que producteur bi. gis nga bi gis nga gis nga gis nga producteur bi ñuy jël di ko tuuma. Assane Lo mii di joué série tey di romb ñu naan non mi ngay jël xale yi di leen jël. Mhm. talatuñ ko. Mhm. parce que bu doon lu ñuy lekk suur nañu. dëgg la mais xale bi toog këram. Mhm. gis Ndeye Ndiaye mu puudaru defaru ba njëkk suba romb ko jël rapide gannaaw soo mu romb ko 4-4. Mhm. day yaakaar ne looluy dëgg. Mhm. léegi 4-4 boobu moom pour moom bu demee casting amul sens waaye xam na Oustaz Mbaye mi ne ci milieu bi da koy jaral lu ne ci Oustaz Mbaye. Oustaz lu mu daw daw daw daw. Mhm. ma ngi koy wax wax yoo xam te gis nga xale yi léegi. Euh, perversité bi. dafa dugg ci mbindum message. mais. day am ay façon yoo xam bu la ko bindee ñoom léegi amatuñu kees sa bind. Ah. amatuñu sama benn copain. sama benn copain. naa ragal sa ma may la sama benn sama benn copain sama benn copain sama benn copain ñëw na sama benn copain ñëw na ci da ngaa jongo <laughs> loolu yëpp na nag sa jongo ma lan la ascenseur uh-huh, lay yéeg xale yi ñëw duggandoo mu ne bërëb di dellu gannaaw rek gël naan ko ah mu mel ne amul espace yow duggal <laughs> nee na mu dugg nekk ci digg xale yi mm-hmm. wallaay Azim moom nee na am na kese en tant que góor. waaye xale yaa ngi def lu leen saf ci biir. wallaay. naan ko yow looy daw. ci xale yoo xam amaguñ sax ay vingt ans vingt deux ans. Oh. seen vingt ans bi mu génnee dafa tudd yàlla quoi mu ne ñii day mooy loolu léegi Sénégal. Mm-hmm. te gis nga euh, xale yi wow bët yi ñuy wow bët. wow bëgg sax ma yóbbaale. boo ko xamoon. Mm-hmm. wala suñu soxna yi nekk suñu kër yi di ñu bàyyi ñun ñuy dem tournage. Mm-hmm. wallahi Azim ñu bari naa leen ne seen xel dal. parce que lu bon bu la taxoon a jóg doo ko defee ci milieu ba nga koy defee. dëgg la. te jamono toll nañu foo xamante ni léegi. Mm-hmm. boroom kër yu baree ngi guddee ñëw seen jabar yi di foog lu ne. Mm-hmm. wallaahi ndékki xale rek la ñuy lijjanti indi ci dëgg la mm-hmm. parce que léegi nag aussi def lu bon. yomb na gaaw na. nekkatul heure wàcc. waaye heure bu la soob. bien sûr kon donc dafa am loo xamante ni nit ci nit ñi def très attention gis nga promotion canapé yi ñuy jël naan góor ñi leen dal sax yéen ñi nga xam ne day def mais non moo tax casting amatul. léegi li tax casting amatul. mooy léegi casting ciblé moo am. parce que casting da koy wax. gis nga boo ko lancé numéro boobu ci nekk. Mhm. tey yor numéro bu dee na. parce que bu njëkk da nga naan woote casting bi fan la ban mhm. nga mhm. di bu baax du ñu la ay photo bàyyi ba ngoon ñu puudar yor seen sa seen iPhone. def la nii signe nga bind leen seen tur jël seen photo boole ko ci ñoom casting amatul léegi casting ciblé moo am. moo am mooy da toog jékki-jékki. Mhm. ibna la am naa benn cousine Khadija wala sama sœur jël ko mu envoyé photo mhm. moo tax léegi série yi booy xool xale bi joué série euh, série karma mhm. mooy nekk infidèle mooy nekk mooy nekk fi ma parce que c'est pas parce que ñoom la ñu jël parce que ñoom ñoo fi mën a joué non ñoom la ñu parce que ñeneen dañoo sonn ci ñoom pour dire vrai te figuration. la ñuy def non. te lañ lay fay sax maanaam mais dañuy takki verre dañuy takki verre. Malick Thiandoum Malick Thiandoum Malick Thiandoum mu ngi may seetaan Malick Thiandoum. moo tax sax tey jii ma dugg seen TV. Mhm. Malick Thiandoum. Mhm. mais bés dafa ne ma oustaz ma ne ko ah ma est-ce xam nga ni télé fayul. Mhm. mu ma salaire bi ñu lay jox. ci boo génnee daje ñetti nit yu am problème boo leen ko séddalee ñoom seen soxla du faju dëgg la mu ne ma télé fayul ci biti mooy fay. mais doo ko comprendre après boo duggee yow. ngay comprendre ngay comprendre. Mm-hmm. tey lan moo tax parce que li tax tey est-ce que xam nga ni euh, <coughs> DJ Yves. Mm-hmm. am na droit sol lu ko neex mhm. mais oustaz Mouhamed Mbaye sañul loolu ndeysaan sañoo ko DJ Yves sañ naa taxaw fi di fecc mhm. oustaz Mouhamed Mbaye sañul loolu mhm. DJ Yves bu ko neex mu sañ naa taxaw tur wax ci mbedd bi mais oustaz Mouhamed Mbaye sañul loolu DJ Yves sañ naa taxaw longoo ak Khadija ree nangam nangam nangam ñun boo doon photo rek laa sol yaram laa jigéen ñu dagg ko dugalal la internet te xamuñu ni am na message boo xam ne da nga koy jàllale gis nga boo demee ci laxdar yi دفق نوايس على العلماء من بوي لات لا جل برام خم خم واي ويقتدي لمتابعين لسنة الرسول بودي ما باي روي روي كتك كم تسنة يونان تبي سلام عليه وسلم فوفي دم من دم مصب بلا مي بيني نيت بوب ماجي بغلي جاي تلي ما جو قدوسي بيم بغلي جاي تلي نكت تلي دو دو لول مول في دوغل ما إن كمان يديو لن لن موتا ما جو كو سما دوسي جالا ليه وكو man ma def sama ité bop mais ma gis ay nit yo xamné dañ may jox dossier dossier yoy dang koy joxé à la fin yow directeur bi ngay fitnaal. yenn saa yi nit ñi dañuy ay ordonnance joxandoo ko ni la dama bëgg mu dem seen TV. boo egsee madame Dramé mu affaire yi moom ngay sonal parce que Sénégal ñëpp a feebar. Sénégal ñëpp am problème. koo dajal mun la dama am problème location. Yves da ngay obligé sa oto du gaare sa buntu sa oto bu gaaree sa buntu balaa une de temps. 20 personnes dañuy ndo ki da lay wax la oustaz dama am problème location ki dañu ne la oustaz man ka dama am problème nangam ki ni la sama dom inscrit guma ko école ki ni nangam amna ben jour sama soxna dafa ni ma fekk am ko ex juste yalla ma yalla bal ci lolu mhm. ma ex rek mu soné mhm. mun ma mhm. ñett dom yi mayor ken ken kenn inscrit wu jang ñom ñett ñep ndeysar ma jël lu mayoron jox ko may ton soxna ci man ko yalla cédé na ni 1500 moy sama capital international national man ko banque fepp nak ma sama xarit bo xamni sama lepp la sama cheikh la ku deggul Ablaye ndjay mu ngi may sétane léegi hmm. man ko élage ma xam dama bank mhm. mun ma maa ngi la yónnee léegi fukki junni yaa ngi xoolal ndaw si ma fëgg mhm. vingt une heures moo ma fëgg sept heures du matin mhm. ah moom ñaari yoon la ñëw sept ki ma fëgg vingt une heures moo ma fëggaat sept heures du matin sama soxna ibbi ni ko lu xew mën ko oustaz lay soxla mon ko mais soxna ci heure bi du heure set nit yow tamit ma dal ni ko lu xew soxna ci mun ma dañu am problème location 3 mois man ko mais xale yi mënuñu leen inscrire 3 personnes nga bëgg ma waxaat location 3 mois. Hmm. bi ci des mooy nit ñëw na ci man ni ma dama problème location ah, euh, hmm. mu ngi daan dund. <coughs> mu astafurla mu ngi euh, ma ni ndaw si am naa hmm. ma ni ndaw si am naa programme sama rakk bu góor Tamsir Ndiaye mooy def anniversaire am. da ma fay fekk boo ma fa fekkalee dinaa la laajal. mais du ma du ndaw si kan la dinaa wax am na ko am problème maa ngi ñaan ci barke yonent bi nañ dajale lu ñu am mm-hmm. ma ndaw si ñaata la mun ma 35000 xaw ma 33000 mm-hmm. bi ma demee lu mu gàtt-gàtt Kabir nañ ci jàpp ñu laajal ko valeur u 95000 et quelque ñu dajale jox ko ndaw si xanaa kon soxlaam faju na imam deux jours lañ ci teg ndaw si ñëwaat fek may genn fo jëm man ko walo mhm. lu ko xew man ko dañ fa am programme mun ma est-ce duñ dem man ko fo yéeg <laughs> mais oustaz yow li mujjee naa neex do est-ce programme yi dañuy and ak yow foo yéeg laa ko laaj foo yéeg mais oustaz programme yeneen bi mun ne mu ne ma mu ne ma mu ne ma ñu and mu ne ma mu ma wala nga tegtal ma waalo bi jar naa ko waalo yow bala ngay dugg jam ñaajo rek yow ñun ñu jóge walo bi ñu bisi wat oustaz man ko ba pare dama lay yeneen bi mën na lu ne ah, te li ma jaaxal walo walo fa la dox mu neex ma nek deug deug nak ma ni ko ak ah, ñun ay waalo waalo comme man daanaka comme man sëñ suma sëriñ sëñ Mansour si Jamil Sidi Jamil mooy borom waalo ak ah, tout temps que yaa ngi sëñ Mansour waalo yaa ngi sëñ Ahmada waalo dëkk yi may gàmm waalo bari na saneen euh, euh, dëkk yu bari man maa koy gàmm ak sëriñ ma ni ko bu ñu duggee ñun bala ñun bu ñu eggee waalo yow jam ñaaño ngay toll <laughs> parce que ñun koo doon def yow booy yegg hmm. ñun ñu ngi génnaat non yow da génn xam nga kañ la mujj hmm. wallahi yàlla mooy sama seede samedi samedi rek hmm. da ngay ah, firi programme jam ñaajo ndeysaan nga génn nit taxaw sa kanam parce que ki ki gis ñu lay jox ngay tagg yonent bi mënoo ni ko aw ma mukk ci àddina la dama am ordonnance ma bëggoon nga jàppale ma maa ngi ni am laago ordonnance boo xam ne doo ko teg bët mais làmmiñ la lax nga ne ko amoo ñaata la mun la nangam da nga yëgi ci yàlla moo lay dimbali xale yi ngay àndal ñu lay wayal ngay firi dañu mhm. nekk ay xale yoo xamante ne ñoom safaa sogo dara feesul seen bët mhm. yenn saa yàlla xam na ñoom ci seen bopp ñooy jël xaalis sànni la ko sa biir oto bu fekkee wu six cylindre nga yor comme ñun mhm. day naan lu bari da soxna yi nga yor dañ naan mais yow naka nga mën a génnee dem programme ñibbis te doo yor xaalis sa poos fekk yow yaa ngi sant yàlla lim la def ba nga doon ko mais du xaalis Euh, ay taalibe lañu mhm. dañuy ñëw ci programme bi programme bi tas 2 heures du matin mhm. mun la jox ma lu ma passé mhm. da ngay xam ne Njaga Njaay dawul heure boobu si père dawul da ngay gis jox paa jox diw bi jox diw bi ndax sac mhm. moo fa am ak sec. Mhm. munoo yóbbu sac bi ak sec ji léegi nga gàtt fan. xaw mhm. nga yóbbu sac bi. bàyyi leen ak sec bi. mais Sénégal moo méttee métti boo xamante ni. te bëri ay dóorkat te bëri ay dóorkat. mais Sénégal ñi doon ñëpp. mais ustaas ustaas yu jongo leen di woowee. nu mu nu mu demee lii <laughs> jantal yeeg yu jongo may yéen du leen ko daan jamono jamono <laughs> jamono jamono moo ko waxee woo. allaha jamilun yuhibbul jamaal mm-hmm. yàlla dafa rafet yàlla dafa bëggoon lu rafet mm-hmm. yàlla nee na bu ma gisee sama jaam mu sañse ba rafet mm-hmm. génne oo bi sànni pédro bi takk veer yi uh-huh. yëngal caay bi oto rek yàlla danaan malaaka yi daw si leen xool yéen a waxoon bu ma wàccee ñoom Assane ci kaw suuf dañuy tuurante deret mhm. duñ ma sàbbal man yàlla xoolal Assane ni mu sañse moo ne daa julli génnee ba noppi mhm. dafa am jaam yu mu war a dem béggali te yéen a waxoon bu ma leen wàccee dañuy tuur deret mhm. yàlla nee na fu ma bëggee fu ma gisee ku bëgg boppam bëgg yàlla nee na dama koy sagal ci sag googu bu ma gisee ku bëgg sutura yàlla nee na dama koy suturaal ci sutura boobu jamono bu njëkk daguma ko sax li mu wax gis nga nit bu la yàlla cëral ah. damay cëral sa bopp Ah. gis nga jesneer du pour rabu mm-hmm. du pour rabu àll déedéet parfum du pour bëy moo tax bëy xasaw xund gis nga nit da ngay defaru mm-hmm. gis nga tey dañoo toll surtout nga ne Sénégal mm-hmm. Sénégal boo nekkoon yeneen pays di defaru boo ñëwee Sénégal day defaru quatre wala dix fois par jour parce que dëkk bu gaaw a xeeb doomu aadama la te buñ la xeebee doo bokk ci ñuy décider doo la wax ne la saa may ñu ba nu pare am na lu gën a gaaw lool da dem ci tànt comme ñun gis waykat boo xam ne ni baatam di neexee mais xam nga tax duñ ko bàyyi xel li muy sol day sol lu doy fekk yàlla moo programme nit ki mm-hmm. amul looy sol man man sama asan sama gis-gis gis nga Yves su ma ñibbee sama kër nii mm-hmm. ex wallaahi wal xuraan ba tëdd dama naan yàlla lan laa ba may tàgg yonent bi mm-hmm. mënoon naa koy tàgg euh, kenn du ma reconnaître mais lan ba may tàgg yonent bi ñii dinañu jooy ñii mm-hmm. dinañu nangam ñii dinañu def nangam mm-hmm. yàlla tax fu ma damay taxaw jël sama temps wax ak moom mais nit nag mooy dara jaal boppam am loo xamante ne ci yow la la lan moo tax ku yëg kaw seen way la am na beneen dijë bu fa nekk am keneen ku fa nekk joxoo leen xaalis mais boo toppoon seen kër yi di leen ñaan wecc gis nga ku lay reggal moom moo lay réglé. te nit nag olof nee na. Mm. kuy togg te ñorle woo. Mm. waroo xam xamle. macha allah ñu ñëw dèjà ci vidéo bi nga njëkk gis sa vidéo bi ñu ñëw ci vidéo bi nga xamante ne ñëpp dañuy jàppoon ne. ñu bëri nag kaw lu ñu jàppoon. waawaari si amuñu ko rek comme comme <laughs> fi teg lool. <laughs> jox dafa automatique mooy. comme yow da nga nekk xarit ak Cheikh Sarr. te Cheikh Sarr mu ngi animé Zik FM. dañuy jàpp ne danga nga da jàddoon ci studio bi. doon bëggal sa bopp yow. gars yi filmé bi nga bi nga gisee vidéo bi déjà peut-être dañ la ko ay sama bis ko. dañ la ko envoyé loolu nit balaa nag nit ki di xam ne du yow dina métti. yow yow ci sa bopp. yaay njëkk a stressé parce que mu ngi fekk Magic Land. Mhm. sama benn xaritu Mbàkke Mbàkke bu baax invité ma ñuy añ. Mhm. léeg-léeg nga dépassé ci oto loo xam ni la ngay añee li nga dépassé ko gën a seer. dëgg la waaye yéene bi mooy tax nga dem. man dooguma la ba ma gisee vidéo dama ne dafa dégg géwél la. <laughs> na ñu ma neex ak yonent bi am naa jigéen bu ma neex ah, nag cim sama kii noonu dafa dégg géwél la. <laughs> ba pare wiññeeku mu neex xaw ma. ba pare li wiññeeku la waaw li muy wiññeeku. li wiññeeku ba nit ñi sànni ma ni. Eh. wuy ma xam nga ku neex. Eh. sama soxna mi ma mere. Eh. moom mi jot vidéo bi mere ma man ko yow kon yow yow xam yow sa xar kanamu jëkkër ba mën a bokk ma koy woo jëlul. daa jommi te moom it jàpp na ni man la après moo tax ma comprendre ñeneen ñi. da comprendre ñëpp ñëpp man bi ma ko gisee. gis bi ma njëkk gis dama ne. waaw sax da nga nii la mel. amul garaaw. man it ma gis ne kii mën ñu woo ma appel bi sama benn xarit nekk euh, Italie. Uh-huh. Samba Gueye ni ma alors oustaz ma ne ko Samba noo def. Mm-hmm. mun ma oustaz mere naa la. <laughs> ma ne ko Samba lu ma def mun ma oustaz lan moo tax ngay fecc. Mm-hmm. ban koy dugal ci ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. man xam naa ne du ma fecc. mais bu nee ma ngay fecc ñu dugal ko ci réseaux sociaux yi. te nga nekk benn jeune boo xam ne mën nga toog sax mënut seen TV. ah nit euh, ay tabala nit da koy tëb doomu aadama doomu aadama. bi Sénégal di dugal bii. dootoo sentir ne oustaz nga. mais honneur réew maay tax nga jug wala de am na mhm. borom kër boo xam dafa ay njabootam ñamewuñ ko nii lay seetaane télé mhm. mais bu Sénégal dugalee day yuuxu day yuuxu ca kaw jubilé dafa am luy génn ci sa xol dim mhm. ma oustaz euh, sa vidéo bi ndax gis nga ko man ko Samba Gueye vidéo lan la mun ma bi ngay feccee waroo koon def gars yi ko dugal ay internet ak yooyu imaam gis nga maa ngi doon lekk lu neex mais netatu la ma doon sa safi ma toog <laughs> ma teg kudd gi ak foroxaayam netatu rek ko yónnee ma ko yónnee ma vidéo bi mais léeg-léeg mu yéex Demba Gissé maintenant musicien Demba Gissé woo ma téléphone ma ne oustaz yaa ngi wàcce tiktok yaa ngi wàcce tiktok beeg internet bi xoolal nag. te dem ba la. parce que man ñaar dëkk xoolal. sama papa mooy sama nawle. Mhm. Mhm. mais Serigne Ahmada si Jamil moog sëñ Mansour si Jamil ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. lu bari moom laay jottali. parce que bëgguma mu dégg ci man. lu xëyee di parce que lu xew dañ ñaan ko Mouhamed Mbaye boo gisee. ñenn ñi oustaz yi wala ñenn nit ñi li ñu sañ ci média sañu ma ko parce que dafa am kilifa yu may bàyyi xel mm-hmm. ñoo xam ne fu ñu jëm man ak ñoom ñooy ànd ba démb moo ci mm-hmm. mujj mm-hmm. sëñ Mansour si Jamil fu mu jëm balaa muy wax yaay wax kooku boo melee noonu war nga am looy moytu ñooñu laa njëkk a xalaat vidéo bi sax dama ko teel a yónnee sëriñ bi ma ne ko sëñ bi xam naa ne ñi xamul dinañ foog ni man la waaye pour ma xamal ne la du man pour buñ la woowee yow nga ni leen du Mouhamed Mbaye wax ko sëñ bi xam nga daal di xool vidéo bi waaw comme du yow kay nañ mhm. déglu ba xam kan la mais bi ma dem ba gisee woowee mhm. ma gën a jaxasoo Yves ko dem ba naa jot vidéo bi mhm. mu ma xaaral ma yónnee la ko mu yónnee ma ko automatiquement parce que du ma fecc ma xool vidéo bi fecc ma bi ma nekk xale ba toll nii dootuma fecc ma xool vidéo bi daal di soulagé teg ne mu mel ni nag téléphone bi loolu la doon xaar te am naa nag jàngat bu ma ci gën a garaaw parce que moytul xale jigéen yi lay sopp gis jigéen ñi di la sopp bu buñ la bëggee dimbali dañ lay dimbali mooy ëpp avantage buñ la bëggee parce que kàmb yi dañ koy xam mhm. mais da ngay gis ñoo xamante ne ay tiijaan lañ comme yow mhm. ay oustaz lañ comme yow mhm. bu ngeen dajee ci tànt ñoo lay puusal may la nga toog ñii ñoo lay jox ñaari loxo ñooñu ñoo ko yónnee ay jigéen bind ni xool leen seen waa ji ni mu ñàkkee fayda lii lay def jigéen ñi ñooy capturer loolu yónnee waat la buñ nee la oustaz diw la yow nga xool ko dalay bett dina ma boo xam dama naan kii ak tout le temps que li may wan ah ay ay ay fu ñu toll ñu ngi lay ñaanal. Mm-hmm. suñu référence na mm-hmm. moom moo mën a bind lii. ñi la rus mm-hmm. dañuy laaj beneen nit ni leen ndax kii oustaz la. après sama soxna jot ci. ma koy woo jëlul. mu ne ma lan moo tax ngay feeñ. <laughs> c'est que Baara ba fam tegu la. sama doom bu jigéen. treize la am sama doom bu 13 ans la am. ay fan la parce que li ngay wax rek dina fi xé ba sama dom du beutum du fess ci lenen ndeysaan mm-hmm. mu dal di ni ma euh, mu vocal ma papa ya meuna fess ci ni eh, am am am am am batu olof bu retan bu dugal ci suuf. ma dal niko ma rem yow xamé nga mo wala xamé wo mu dal di xolat ni ah papa du yow. Mm-hmm. ma dal koy message niko gis nga yow ya tax kon. vidéo bi génn mm-hmm. parce que bayal xel ni kon sa papa nekul même porte quelle personne ci réew mi mais ko wax la mbon ni mu gaawé waji ji vidéo boobu gis na mo def 1 million et quelques vies ci seetaan bi ñu ko seetaan ci seetaan bi. te ñëpp yaakaar ne yow la nga am yoo xamante ne ay 34000 bii ngay am. 35000 kee 1 million mu lay wan ni Sénégal li kii wax sànq billaahi lu la ñu bëgg bëgguñu lu baax dañoo bëgg lu bon bëgg xoolal vidéo bi ci saa site internet yëpp wondoo mm-hmm. Oustaz Modou Fall. Mm-hmm. moo ma sonal ñu ma génneel nga def vidéo ma ne ko Modou mm-hmm. xam nga nit lan lay leeral. mooy fun la gis mhm. mën ngaa leeral loo fa doon def mhm. mais koo xam ne daal dafa nduróo ak yow yëre mhm. kooku mooy tourné waat weddi waat boppam mais du man maay def vidéo mu sonal ma da ngaa dëgër bopp ma génn def benn vidéo ak benn site internet ma gis gars yi di ko tasaare ku ne gis naa ay sëriñu tariyaax yoo xamante ne mooy ñi mujj génération bu bees bi comme man bu ma gisee ñuy ñaan xaritu dégg yi xaritu dégg yi mais non ñu nit ñi di leen jox xaalis parce man mm-hmm. ni lundi ba vendredi la mooy mm-hmm. bii def waxtaane ko ay nit ñu ne Europe dañ lay woo damaa jox sëriñ diw sama xaalis maa ngi koy woo jëlul man leen bàyyi leen ku leen wax mën naa faj nangam ngeen jox ko seen xaalis parce man mi ci xam quelque ci ñoom da seeti koo xamante ne euh, di nga toog moom. 8 heures ba minuit. doo gis mu génn fooy bu ñu bind xaatim. man bu ma déggee ñuy wax ci coupe du monde bi wallahi yàlla mooy sama seede ak yonent bi coupe du monde bi ku la ci wax dafay fen laa yaalamul xayba illa allah mhm. waaye waxu yàlla ak waxu nit xadija bu gën a bu gën a piire yàlla nee li xew kenn xamu ko ku dul man yàlla ak koo mën a doon xam nga mhm. listixaar nan la ko jaam di defee mhm. bàyyi yi tëdd guddi def say salaatu ala nabi ni yàlla lii may dugg bu gënee ci man yàlla nag ma wax bu gënul ci man yàlla nag ma wax loolooy listixaar bu gënul ci yow ñu wan la ko mbaa ñu génne loola euh, sarax yonent bi nee na ñett yi nit war na koo seet dëkkuwaayam waruwaayam. Mhm. soxnaam. soxnaam nga ñëw ni sama soxna mu ngi tudd xadi xam nga du ma xam sant bi. Mhm. xaa 600 la. Mhm. del 4 la nga ni 604 604 daf la jox 10. ñoom ñaar ñu daje ci 5 ñoom ñaar ñu compatible. parce que am na koo xam ne naar yu la safara la. am na koo xam ne trois bi suuf la. am na koo xam ne maa yu ndox la am na koo xam ne hawaa yu ngelaw la. am na jigéen joo xam ne boo ko takkee yow ak góor ñi yéen a koy bokk parce que hawaa yu lay doon ni ngelaw bilaay mi saa dina jooy am lu ko naqari mm-hmm. am na koo xam ne naar yu ngeen di daje yéen ñaar mooy waral nga dégg ñu kii jabaru ordonnance la mm-hmm. ça veut dire que yéen ñaar fi ngeen daje sa tàngoor moo koy maas am na koo xam ne yéen ñaar bu ngeen séyee yéen ñaar ala yombi diini du ngeen am doom parce que ñaari safar lañ ndox mi day lakk mm-hmm. ba doom du ci mën a sosu yooyu la yonente bi daana xool leen ko nga xool wala nga xool oto bi nga yor nga ni Renault la wala nangam la nga xol bo xolé chiffre auto bi ci tableau bi boo ko dajalee dalay jox ben chiffre nga xol chiffre bobu ak yow sa chiffre benn oto bi mën nga koo jënd accidenté ci parce que rawaan bi ak yow sa tur day tàng mhm. wala mën nga koo jënd mu jik la mhm. am na kër goo xam ne boo fa dëkkee bu doon 5000 francs ngay am di nga dem ba nit ñi a yalwaan mhm. nga génn ci kër googu parce que kër gi baaxul ci yow nga dem dëkk beneen kër rek say buntu ubbeeku yooyu yëpp la yonent bi wax seet ko ubbeeku wala nga takk jigéen mu fekk nga ne woon Europe nga ñibbis say affaire dëgër wala nga takk jigéen rawaanam yëkkati la day nekk numéro 9 day nekk numéro 5 day nekk léegi ngay xool jigéen boo xam ne da bëgg jabaru kër nga xol yow nga nek 2 mhm. mais da ngay tak numéro 5 ngeen dajé ci 7 mhm. keur gi mën neex ngir nga mën joxé joxe mhm, dépense mais bu fekkenté ni da nga ñëw amna jigen jo xamni yow bo nekké un exemple mu nekk 5 ndaw si baxna mais baxul ci yow parce que bu ngeen dajé ci 6 yeen ñaar par force am ko wor moroomam problème rek mais sëriñ li lañuy waxtané ap après nit ñi yoné len xaaliss légui nak ñi ñuko xam bari wul man damay seeti ño xamante tay ji comme comme émission yi daw seen TV nga mm-hmm. xamante ni euh, sëriñ si ngay dem defal émission ñu fay mm-hmm. damay toog ak sëriñ boo xamante ne dama war a def moom 30 minutes mm-hmm. mu teg ma ne ko lan la ñu war a def mu ni ma nangam yàlla seede na ko ma tourné xool xaatim bi parce que man nitu daara laa dama jàng man la xaatim bi baaxul de boo ko defee nii gars yi nañ la reede def naa ko plus de 4 5 séries xaatim bi baaxul mhm. nga ne ma léegi loo xalaat man la da nga fi am ay sunguf nga ni ma waaw man la tee ngaa tee ngaa génne sa sunguf yi effectivement nga ni lii day toog parce que sunguf amul fen mhm. mooy bu nit ñi xamul xamuñu mhm. lii sunguf nangam la lii sunguf nangam la ma ni ko Sénégal fii ñu toll góor ñu baari dañoo perdal ci seen wàllu ngóor a boo ne yor nga nangam ñëpp dañuy da wut si comme fay nga sa xaalis ba pare am na ñoo xam ne dañuy tourné waat jëlaat xaalis may ma mais du sëriñ si nga xamante bëgg buzz Sénégal ñi ñu war a fay fay nañ leen ba pare ñi ci de a bari wax rek mhm. naan ku ma yóbbu Qatar mën naa indi coupe bi mhm. gis nga jàppal ni noonu nga amee waa Inde am na ñuy dem Inde di ñaanlu. dëgg xala dañuy taxañ sa xam-xam. Mhm. mën na téeméeri. ñu dem Chine. am ñu dem beneen dëkk yow nga bëgg a nekk. nga mës a dégg Inde bokk na coupe du monde. Eh. Eh. yi dañuy dugal dañ est xam nga ni jinne daa ko fentul yàlla bind. Mm-hmm. jinne ci boppam jinne mm-hmm. moo daa wax lu dul dëgg. jinne mm-hmm. moo lay signaler gauche jaadu droite. nga laaj ko benn affaire mun la day baax te fekk ni du baax. xam nga bidéo yi li muy signifié ñëwee ci kaw asamaan mhm. est-ce que xam nga ma wax la li nga wax léegi Sénégal vers mhm. mhm. parce que Sénégal ñëpp xoolal man damay xool koo xamante dañuy daje ci ay tànt yoroolu suukar ma dama xëy gis la nga fay benn site internet ne da seet yenn saa yi nga gis koo xamante ne la doon jaay nga xëy tey la day seet nga xool waaw ubbi cabinet ni day seet te Sénégalais yi est-ce xam nga ni kii wax dëgg la saam dem seeti ki dul wax dëgg. ñu dem ah. defal bëgg nit ñi bëggul lu baax yaay fekk ku yor ay carte di dëpp naan tournel bi demal bii nga dem bokk ci biir jotaay ba mhm. ñoom ñi ñoom ñi la wër ñëpp ñooy ànd ah ñoom ñooy ànd ñoom ñëpp nit ñi xàmmewuñ ki mën seet wallaay dëgg la ak ki mën a faj nit mhm. ñi xàmmewuñ la da ngay dem seet lay mën kii faj lay mën ñi ma gis ci internet bi laa la wax mhm. ñuy wax ci coupe du monde bi amul ku ci xam dara coupe du monde bi moom déggoo ma de ñi assuré bu yi nag déggoo li ma la wax waaw nañu assuré billaahi والله وطن الله دوما وات جولي واخو ني دغ خانا ديغولي مال واخ ليك لا يعلم الغيب الا الله لي فادو يالا ريك موكو خام يالا نينا لي خيو اولك استا خام غول تخ يالا بيندي بيديو بيديو تي كو اسمان خاموكو ولا خد زين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين يالا نينا لي واخ اك ملائكه لي خيو صبا جيني دنج دان نيو ديكو ديغلو سي موم لا ني واخ سيت كاتي سيت كاتي بور ني خام كو نيوم تيوف لا ام باسكو دي ديغ واخ جيب yàlla jël ay biddéew def ko ci kaw asamaan léeg-léeg nga gis biddéew bu fekk fekk dafay dàq ji benn seytaane wala xad jaal naa rujuman yàlla neen damaa def biddéew yi la shayatin wala xad zeyna sama ak dunia bil masabih yàlla moo taaral asamaan def ci ay biddéew boole kook ay mais tey moo tax ñu tere pétaw léegi ma laaj la dara seetlu nga benn affaire seetlul ñi nga xamante ne wax ne ay sëriñ lañu nekk ci tiktok bi di bëgg a rey nit ñi est-ce que mës nañu ñeme nga invité leen boolee ne borom xam-xam duñ ko def xam nga li ñuy xool Yves la ñuy ak benn grand ak Khadija ñu toog ñu la nangam mais nga invité oustaz Mouhamed Mbaye mu toog ñu toog ñu bëgg a def débat mm-hmm. dañuy daw dañuy daw ko am na ñu ko ñeme nag am ñoo naan wool xam-xam ñu bokk plat am na doomu daara lañu waaw même bu dee doomu ah. daara laa la wax dama la wax ne la listixaara mm-hmm. moo am wala nga xool tabia nit ki mm-hmm. wax naa la sànq ni la am na koo xam ne day nekk hawa yu day ngelaw ki nekk ngelaw da xam tabia am ci lu muy dox mu ngi mel ni am na koo xamante ne grand tey Euh, mu ngi liggéey dakaar mhm. sëriñ bi day nekk Casamance. Mhm. wala mu nekk gine wala mu nekk Gambie. Mhm. pourtant daf lay def dof. nga simi sa yére. parce que boobu jël na sa sa sa ko feneen. Mhm. nga jàpp ne yaa ngi dund ci àdduna boobu yaa ne ci réalité fekk yow nit ñi nekkatoo ak ñoom. Mhm. simeeku nga dof nga. Mhm. yaa ngi waxtu yaa ngi dem ci mbalit xam nga kooku nu lay defee dof. day xool sa biddéew. ah sa biddéew xool dégg ñu naan nit biddéewam fenq na. nga xool ban biddéew la utaarid la wala marix la wala zuhaylu la wala suraya wala bi mu bokk. boo xoolee biddéew bi mu bokk da ngay xam biddéew bi heure bi muy fenk. ak heure bi muy sow. gis nga am na ñoo xam ne bu ñu xamul xeet bi nga bokk dañu jëli ilaaf la ci li ila fi pël quraish nar ila fi olof rihlat sirir shita ilawbe wa wasey fi fal ya'budu bambara rabahaza jola bayti tubab allazi malgase ataamuhum xaasunki min du'in sose wa amanuhum sirir non min khawfis fi koroboro ba jeex ñu jël xol xol sa bidew am jop xam heure bi mi fenk xam heure bi muy so buñu génné sa bidew dan lay top dila zikar sa xel mi di tourné. Mhm. ñu lay zikkar sa xel mi di tourné ñooñu ñoo am jot. boo xoolee jëkkër ak jabar bu ñu leen dëddalee néew na ku ko mën a jubóole xam nga lu tax mhm. parce que dañ leen di bëgg a boolewaat sans ñu toj liggéey bi mais jëkkër ak jabar bu mhm. ñu xulóowee wala leen pour nga jubóole leen da ngay toj liggéey bi ba pare doog leen di jubóole mais sëriñ sa xamuñu loolu dañuy bëgg a jubóole ñaar ñoo xamante ne liggéey baa ngi ci te bool bu la bu taxkee dara boo ci bëggee yekkaat faw nga raxas ko ñii dañuy dañuy dëddale ci nen bu ñorul bu tojee ku mënta defaraat nen mënoo jubóole ñooñu mm-hmm. am ñoo xamante ne ci duus lan koy def mm-hmm. sa jabar bu ngeen tëddee nga bëgg ko wéq mm-hmm. am ñoo xam ne ci garga mboosa koy def yéen ñaar ci téléphone rek ngeen yi wax temps yu ngeen tëddee ci lal balaa cinq minutes dix minutes ngeen am problème bii tabia bu ñàkk ànd daf koy def bii dëddale daf koy def yonent bi nee ñaari nit ku leen dëddale safara nga jëm parce day yàq wërsëg day indi wéradi day indi naqaru xol xam nga kan la rus mhm. ki muy waxal guddi mhm. yàlla nee loo du yàllaay wax nee li nga bëgg ci man boo ko bëggee bàyyil ba deux heures du matin trois heures ñëpp di ne la wàcc naa ba asamaanu ñeenteel mhm. nee na am soxla bu mën a doon man yàlla maa la wax ni la maa fi teg yonente beeg alxuraan jaaral foofu wa minal layli fatahajjad bihi naafilatan laka mais yow xaar leen ma live nga jëm ak nit quatre heures du matin kañ ngay ñaan yàlla boo nelawee nit ñaa lay xaar nga Sénégal ñii yaa leen jëlee fii ñii buñ déggee olof gis nga rab akam moo xam nga ci luñ ko bind ci safara naar yu dafay lakke bu duggee ci nit am na yeneen manifestation yu muy def moom jinne ñooyam dafa am ay xeetu boppam spécial di yooyu nag bu amee am na jinne boo xam ne mu ngi lay seetaan nii toog ak ah, mu laa la mhm. la laal mu dal ci kawam mhm. am jinne joo xamante ni daf lay fiire daf laa nopp parce que ñoom ak ñun ñooyam ni ñuy dundee bien ah, ah, koo nekkal mu yàq ko mhm. ko koo séyal mu yàq ko. jigéen koo nekkal mu tàkkale la wala sa jabar sax da ngay tëdd ak moom du bëgg ci dara mu dem foloo la muy gën a yomb mu séy ak ya nga séy ak sa soxna parce que rab mooy def loolu du bëgg nga nekk ak benn jigéen même boo séy jigéen balaa ak ndaw si soof la am jigéen joo xam ne day séy di tas di séy di tas ñu naan du toog wala nangam fekk rabam moo koy def mm-hmm. rabam moom moo koy bëgg moom moo koy bëgg ba ku mu dugal mu yàq diggante boobu mm-hmm. mais argument yooyu yëpp am Sénégal li nga wax léegi ni fan sa lañu bëgg ñu ni Serigne Diw dafa aay Serigne Diw slogan ñi ñi daw topp la mu ngi toj internet loolu du ñaan wa minal lay li dégg daat Yves dégg nga yàlla wa minal lay li <laughs> fa tahajjat bihi naafilatan laka mm-hmm. asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda mm-hmm. yàlla nee na da am soxla maa la fekkoon ci biir nday juróom-ñeenti weer mm-hmm. maa la daan jox ngay lekk sa yaay daan lekk lu saf kaani balaa muy dugg sa biir dina ko segg ba nga mën koo lekk bu ma bàyyi woon mu dugg say ba day wexxat mm-hmm. man maa la def ba juróom ñeenti weer nga jaar fu kenn mënta jaar su ma sa bi la yëstarahoo mm. bi nga ganee àdduna ween laa la jox dee man yàlla ni la muucul sa baay yàgg na kaa muucu mm. te dara génnul te moo la gën a digg ay tuñ ba am na ay bëñ mm. muucu na weñu disket bi dara génnul bi nga muucoo soo génn man yàlla maa fa jaar maa xëy defal la ay sidit ngay dox kenn ku ne ci ñun bi nga toll nii xamoo kañ la sa photo moo la daan wan ni da ngaa njooloon wala da ngaa gàttoon bi nga pataawee xamoo kañ la bi nga sewee xamoo kañ la mhm. yàlla nee na man maay jël ci ndey ak baay seen seen kàttan di la jox yow di jël sa ñàkk kàttan di jox sa ay wayjur mhm. bi nga nekkee doomu aadama ba doon li nga doon man yàlla maa la ko def bu ma nee la dina ànd ak yow ci biir bàmmeel war nga koo gëm mhm. ku la tiital ci àdduna day nax boppam kenn rek laa dul pardonné yàlla nee na kuy wor ci àdduna laa la koy delloo ko inna allaha laa yahdi kaydal xaa'iniin du ma jówal pexe war kat fii la koy lijjantee ba inna allaha laa yahdi ajral muhsinin mm-hmm. yàlla nee na defal lu baax du ma sànk sa jëf mm-hmm. nga topp ay seetkat ñu naan la match bi gis nga président Macky Sall kenn ëpp ko ci mikaay mm-hmm. ñaata nit ay xëy di wax ci moom bu amuloon dëgër laay deewul Sonko mi bëgg a toog amul dëgër laay <laughs> yow nga nekk ci site internet bi kan moo la laaj est ce que xam nga ne waat bu bari day gàttal fan bu dee bu dee dëgg ngay waat laa la bu dee dëgg mhm. day gàttal fan mhm. sakkantumaa bu dee fen bu dul dëgg nag mhm. foo jëm kon alaaji dégg la rek te yonent bi nee na boo bëggee gis lépp alaaji dégg lépp dégg daaj la te dégg daaj dama gis seen say ay dox rek lay waxal xam na ne moom ñi muy waxal ñoom ay comédien la mais parce que dañ koy mais wuy ma dañ koy fay nag wax dëgg yàlla n'est-ce pas dañ koy ah, fay mais loolu mooy dundam man akama koo soob xamul tax mooy alaaji dégg ñëpp la maîtriser dégg daaj noo ñëw yëpp seeral nag débat ba nag waa dégg ah, kaa ñu waxtaan nag yow man ak yow kese moo def ak gars yi dama ko sopp bàyyi ma xam nga duñ ko ñaanal xam nga duñ parce que amul tax mooy li ma la sant ci Ahmed Cissé pourtant lu muy jaay du ay affaire ngóor mm-hmm. mais àndoo ma ak moom ci loolu mm-hmm. dinaa dugg këram fekk mu dajale ay paquetam di jaay ay nangam du ma sama yoon newu ci mm-hmm. parce que loolu lay jaay macha allah mu jeex am na solo euh, ñu ngi jëm nag suba ci match il faut ñu wax ci équipe nationale euh, bëggoon naa aussi ñu wax ci ñoo gisee show bi actuellement musique bi Kéba Seck xew gi mu xew. <laughs> no Kéba Seck moom non Kéba Seck moom euh, yaa ko xewal. yow yaa bëgg jël Kéba Seck teg ci kaw mi ñi ne daa xew. ah sama papa dafa xew. ah non non non déglu ma rek dañuy waxtaan. asan euh, euh, eh, loo. waa déet waa da boobu dox na non boobu dox na boobu dox na. Eh, eh, foo yow foo bàyyi Sidy kan non xew gi la ñu wax mais Sidi Diop a gën a xew Kéba Seck. Eh. déedéet. Eh, fu Sidi Diop gën a xew Kéba eh, a waaw man nag maa ngi dugg ci TikTok bi di romb man damay romb ci TikTok bi de. waaye li may gis waaye nu mu tudd. wàcc ci suuf Kéba mu tudd non non non du problème bu doole xam nga yéen musique musique musique dafa am ah. benn non non <laughs> non da ngeen may déglu li may wax c'est très temps fort bi am. Eh. moo la gën a xam li may wax. Eh. Eh. dafa am temps fort Kéba dafa ne xam nga xam nga Kéba. Euh, ba pentola. Mhm. Kéba day tëgg chaque jour. Mhm. Kéba. yéegul wàccul dafa taxaw benn place. Mm-hmm. non il xam li may wax. Mm-hmm. ci musique laa lay wax de. maintenir dafa maintenir. Mm-hmm. Kéba du dollar xam nga dollar dañuy di wàcc. Kéba xanaa xamoon ne fa mu nekkoon yaa 4 ans 3 ba ah, daaw. Kéba bi ñu foofu ba léegi. mais nit ñi ñooy jékki-jékki benn vent pousse. soowu Kéba ñoo ñu ne Kéba daa xew. Kéba xew na bu yàgg. a xew de. mais xewam nan la. xewam yéegul wàccul. Kéba waroon na dépassé fii ci musique. li may wax ne dama ko xam. mais dafa topp ndigalu kilifa mais dafa waaw non non. xam nga topp ndigalu non non non Keba Keba dafa tarbi yu magam. dama gis benn ah, vidéo bu neex Ousmane Seck dem fekk Keba soirée gis nga xoolal di ko encouragé ndax lii laa la doon jàngal gis nga ndigalu kilifam boobu. moo tax yéegul wàccul mu tax ko mhm. benn place. Mhm. Sénégal nag. mooy li ma lay wax rek. bul ñaan yàlla ñu xewal la. Mhm. parce que buñ la xewalee yow ak. statut yow ak whatsapp. Mhm. statut whatsapp yéen a mhm. ñaanal yàlla ñu lay maintenir rek. keebaa kap bi mu nekk nii. na ko fa bis bu amee staff boo xamante ne normal na comme ni ma xamee staff man. keebaa dépassé na fii kenn dootu ko dab ci àdduna. est-ce que doo dem waxtaan ak keebaa. Euh, euh, waaw mais non mën na nekk mais maag moom dañoo dajoogul. parce que man aussi dama ne ci label. te label bi ma nekk aussi permettre may liggéey ku ne dama am sama ay élément dëgg yàlla parce que balaa ngaa laax jaay laaxal lekk ba pare mhm. Mhm. Mhm. tey Kéba nag bis bu ñu daje woon ci milieu bu ñu daje woon ci milieu dinañ waxtaan comme ni defee waxtaan nga woo ma ne ma grand lii laa mais mais pour ñëw toog ci Kéba ne ko non lii ak lii ak lii sérieusement mënu ko ma mais tu peux même pas tu boo nekkee ci label xam nañ ci label ci benn label bu mag nga nekk ci biir Sénégal di ci dootu ko layam-layam ci milieu showbiz parce que donné, il frappe xam showbiz musicien yi mhm. mën nga ne tamit Matar Diop Soubatel il connaît les musiciens mais est-ce que tamit euh, doo dem en tant que en tant que frère jege ko teg ko ci ay quelques codes comme Yves l'a dit parce que li nga wax dëgg la Kéba dafa am fu mu am fu ko xam ne fan si ñun ñoo ko fa yóbbu mhm. parce que jamono ji Kéba way rek lay def mhm. soo bëggee ay wayu neex Kéba kese ngay seeti soo bëggee wàcc ci suuf Kéba ngay soo toogee eh. Eh. wéet xamoo foo jëm wootal laajte tamit loolu dëgg la Oustaz ñu ngi jégalu mais mais mais xoolal gis nga nag xoolal xoolal mais c'est bien beau. xoolal mais c'est bien beau. xoolal c'est bien beau xoolal c'est bien beau c'est bien beau lii nice na mais man lii maanaam Siri Diop daf ma ko gënal. Ous Bongo daf ma ko gënal. c'est normal Ousmane Bongo. waay c'est parce que nga ma ko gënal. c'est normal mhm. parce que le pourquoi mooy. yéen a ngeeg beneen booy bi tamit booy parcelle. mais ak kii doomu doomu Mapenda Seck bi. Bambali ah moytu leen ah, Bambali ñu ñëw. Mapenda mi ngi ci ñëw Ibro Naajo nga ah, toog fii. ah oui loolu la mais man Kéba weddiwuma mën waayam. Mhm. sekkee ni jamono ji Kéba fi daa ko waay. Mhm. kooku je le mu téye ko am benn stade bu mu ko yemale parce que coon euh, mhm. université la woon ndeysaan te Kéba li nekkoon ci coon yëpp mi ngi ci Kéba ndeysaan bien sûr donc man fi may waxee waxuma pour ŋaañ ñu ko wala mënul way mhm. Mhm. Kéba kuy way Sénégal moo la dàq ko way xam nga man dama am habitude di wax nee naa leen Sénégal ba mu daj Carlou D moo fi dàq way Youssou Ndour topp ci ah, man je le dis haut te toj naa li tax ma ne la Carlou D c'est le meilleur bu ñu paree ma nekk ci label tey ku mel ni Sidi bis bo démé soirée wala nga fekk répétition Sidi tempo yi way amul xalé bu koy way ci Sénégal. ah ah non déglu rek non non. il a dit non non non non fi il a du euh, talent non, non, non, non, non, non, non, non, non, Bambali sec. non, yalla bind ci non, non, yi. non, Bambali c'est le meilleur. Bambali On non, non, bu hmm. Non. merci beaucoup. il a musique dafa am octave dafa am monté am minimum am di ki xamna limay wax mhm. te ci boy yi way yëpp ko ci ne der du dem 30 secondes mhm. Mhm. xam nga xam la xam Siri Diop c'est-à-dire xam naa am na talent mais daf ko confirmer samedi passé au Grand Théâtre wallahi azim c'est-à-dire si dafa ñëw comme j'étais là en tant que présentateur mu ñëw waroon jouer ci Queen bi mi ñëw mom xelam peut-être ne ko ñëw playback waaw bi mu ñëwee Omar Sow manager Bakane buggul mu playback oui da bëggoon mu ñëw bëf ci. may fa taxaw bakkar waaw. taxaw na lu yàgg di xaar. waaw ne ma est-ce que duma dem xam nga comme ñëw naa ba mu gis maanaam ko bés boo ko defee du rafet ci gisin. Mhm. Sidy Diop ñëw na ba Grand Théâtre te nga liggéey ak Bakane Seck def morsa ak moom rendre hommage du Ndiaye Coumba Rose ñuy rendre hommage du Ndiaye Coumba nga ñëw ba Grand Théâtre wayoo nit ñi gisuñu la du rafet. Mhm. ma ne ko li xam ñu def bàyyi ma annoncé nga ñëw def même bu dee benn acapella. Mhm. mais bi muy def acapella bi ñuy annoncé dafay dugg si ci la Omar daw ne ma non na joué ci bakkaan bi. Ah, waaw na joué waaw. bakkaan dugg. waaw bakkaan ba mu joué ak Samuel ak l'autre gars euh, anglais bi. anglais waaw. jazz jazz jazz. mais Sidy Diop était tellement à l'aise ci jazz bi di way. la ilaha illallah. waaw dama ne booy bii talent bi tey a gën a xam nga xam nga xam nga gorkatu garab. Hmm. lu mu wax ci garab gi rek ñu ne da koo bëgg a dama nekk ci label. non man moom nekkuma fi. man gis nga man la ak li ma xam man su ma nekk même même mën naa ne ci label. Mhm. am na samay éléments yoo xam du ma leen lim. Mhm. mais su ma ci limee ne la diw bàyyi ko xel. parce que parce que même bu dul dara dama xam musique. gis nga gis nga gis nga gis nga way. day am am benn moment boo xamante ni phénomène musical day am. Mhm. daf Salam Diallo. nous on a un mauvais public. un public fait dañuy un rek un public fal Salam Diallo. ñoo fait gis nga Kéba Kéba way génération la. Mhm. du génération bu bees bi. Mhm. génération bu bees bi boo ah enjoy. Mhm. Wali, c'est le chanteur du peuple. le pourquoi chanteur du peuple parce que génération bi la

confirmé nañ ko mais fi mu nekk moment bi yéen Yves ak Khadija waa booy booy bu dangereux bi. ñoo bëgg a taxaw ne non Kéba xew na. Kéba xew gis na la ah, ah, eh, xewul sax xew ah, na nag non xewul sax wax na ko ci biir wax mais. il maintient les vendredis dafa méngoog jamono. waaw day romb TikTok bu nee nii benn Kéba Kéba Kéba Kéba Sidi Kéba Kéba Waly Kéba. ça ça domaine. milieu <laughs> musical parce que mon là formé mhm. <laughs> émission je pense que les filles démarrer donc je devais le démarrer avec Bambali mhm. mais quand on a. quand on a non il est meilleur Bamba c'est un jeune. qui est en la deux semaines. Bamba Mon papa papa Mon père. Mon père. Mon père Mon père mon père mon père mon Mon père mon père nu mu wàccee eh? non non Assane bàyyi leen Kéba mi ngeen di xew. en tout cas daal Kéba euh, kan kan ku naqaree wàcc. non yéen comprendre ñi dañuy jaawale siiw ak bari coow. Kéba bari dafa bari coow waaye siiw. dafa siiw kay siiw na de. mais kan mooy Kéba Seck le petit frère de Thione Seck. wallaahi li may wax ci musique li may wax ci musique bari coow ak xew bokkul. xew na de Alioune Baye Nder Alioune Baye Nder dafa xewoon. te yaru na de. déglu ma mm. non. abu cubaloo dafa xewoon. maam la Fallou Dieng dafa xewoon. oui ma ñooñu ñëpp ñooñu ñëpp bokkuñoo Kéba amul. mais Kéba waaye bàyyi leen Kéba daa bari coow waaye xewul. mais sama papa xam nga la xew. vendredi samedi dimanche kan moo ko sañ ci Sénégal. kenn sañu ko. vendredi yow Ibra Naajo ngi toj five dimanche. samedi nga laaj Ibra Naajo Ibra ko bàyyi. barki Serigne Saliou Mbacké. moom yéen a seen soirée Ibra Naajo moom boobu moom je booy booy Siri moom samedi moom nee naa ko xajatoo five def c'est fini parce que am nañu jënd béykat duñ dugg. kon dem leen grand terre. gis nga nee naa la père nii. doomam jee koy wàcce. semaine prochaine Bambali du wàcce. du wàcce kenn. yow de Yves xanaa doo seetaan Bambali du wàcce kenn waase yaa ngi réeré. da dul wàcce kenn. moom eh, moo la gën a xam li may wax. ah Yves. gis nga Bambali. Yves xam mi ngi pare loo xamante ni ak euh, label bi. wallahi al azim bu génnee ci réew mi kuy sekkeen di nga taxaw. Mm-hmm. booy boobu la mooy kuy sekkeen di nga taxaw. vraiment ren yi man de du ma taxaw kan doom jee wàcce bàyyi ji. bàyyi doom rek. yow yow doom ji mooy wàcce baay imagine li baay daj ak li ki baay doom ci doom doom ne dina wàcce baay doom kan ban baay Kéba Seck dafa rampe Kéba rek Kéba Kéba militaire bu rata la xam nga Kéba Kéba Seck militaire bu rata la gis nga Kéba Seck mii maa leen ko gën a xam foofu Kéba daa bari bruit waaye xewul Kéba daa bari bruit waaye xewul alors gis nga bu xewoon billaahi bu xewoon doo ko jot dimanche ak samedi kon hmm. booy tournée internationale exactement gis nga ni. enquête dina dem tournée internationale oh, ci topp. Oh, ba ko cat toppee la war a toog. <laughs> ta ba yow kay mooy paa bu toll nii cat topp daa war a toog. yéen a mbay damal toog. yéen a ñu catu keebaa damal toog. yéen a ñu catu ñooñu catu de ñooñu catu. yéen yéen yéen waay keebaa damal toog. gis nga fekkee boobu muy wàcc naa nii moo koy wàcc. semaine prochaine daal may bambali waay. fii moo xam la wax en tout daal euh, xam naa ne moom pour mu wàcc dina jafe parce que nekkul artiste boo xam ne yow jëjee rek xam ko mhm. état di def fi nekkoon di liggéey quoi yaa wax sànq y a quatre ans cinq ans six ans loolu sax dafa gàtt mais y a depuis 2014 ah bon kan Keba ba muy way boobu Bambale ngeen am muy la mu nekk fi di di maintenir soirée yi Kéba léegi naa di dem lu ko man je me rappelle très bien man man man Kéba mii bi muy way man boobu xale la. <laughs> Assane boo Kéba ba ko. Assane bi la yàgg Kéba ba ko. c'est que Oustaz li may wax dañ ci dul dañ ci dul bàyyi xel. xanaa xamoo ne Kéba Kéba maire yu bare ngi sëy nii sëy arrêté na mu jur Kéba way na seen xew. maanaam maire yu bare Kéba da way ne seen xel. man wax ji nag mënut a neex man dama fekk lu bari. man dama fekk lu bari. yow nga ne Kéba la mag yow. bi bi eh. Assane Kéba moom yow Kéba Seck taxawaa ma yow Kéba kama caat. yow caatu ñoom yow caatu ñoom coon Seck mën naa nekk taaw yeneen kër yi. réglé leen. ah Assane. réglé leen. macha allah Kéba mii ñu ñu bëgg a forcer mënta ne neel bari na bruit. Mm. waaye xew mi moom ci benn moment la rek mais xew mi 100 pour <laughs> moo la gën a xam yow moo la <laughs> eh, allah en tout cas en ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal. Mm-hmm. Euh, nit ku baax la quand même. kenn gënu ko moom. c'est-à-dire mënul nekk star. ndeysaan Kéba mënul nekk star. parce que nit ki nit mu doon la. yéegu ko. borom xol bu rafet. maanaam ah, mënul nekk saar mooy. parce que dafa tënku fenn àdduna bu yàgg bi yëg ne moom. moom moo xew ak doomu aadama lay def. Khadija Kéba a ci li nga nekk. Khadija star slogan la. Mhm. day feeñ ci jëmmu nit ki. Mhm. ñoom nag star la ñu am ñoom. star star star day feeñ ci jëmmu nit ki. Mhm. pour nga nekk star. du da rek da ngay waane ci way du rek da waane ci euh, dijë nangam mhm. stade dafa nekk ci nit ki mhm. mu incarné ko mhm. li ñu yére yére du rafet ki ko sol mooy chic mooy waane mooy jantal bu solee yére mu jàpp ko mu ngi mel ni nga ni euh, jongoma ak diriyanke mu ngi mel ni nga ni boy disco ak jantal ça veut nit ki day sol yére léegi may ko nit nit ki sol ku rafet ci moom mais nit ki ko sol rafetul ci moom beneen nit sol ko. Mhm. mais incarné yére bi ba ki ko ñaw daal ni cëm. ci mhm. diw la gën a rafete mhm. dafa am tailleur boo xamante ni day ñëwal benn euh, présentateur télé. mais dem joxaat keneen koo xamante ni fa lay gën a yëgee boppam. parce que kooku dafay jaay yére bi. am na nit ñoo xamante ni dañ mën way. seen voix rek la ñuy dundee. mais pas seen slogan wu jëmm. am koo xamante ni yaramam ni muy yëngoo.

démarche bi solo bi incarnation sur scène bi ça c'est Wally ça c'est la star quoi solukat ça c'est la star solukat dafay dafay bu génnee ñëpp génn dem koj ko fu mu taxaw ñëpp fees loolu c'est la star te loolu du ñamaxit tamit doomu aadama xam nga du doomu lan la yàlla la yàlla may def loolu waaye asan asan kii waa ñu koy wër jamono jii de yow yaa koy wër <laughs> hmm. gis nga Assane yéen waa DTV moom da ngeen di wër Keba parce que yéen da ngeen def promotion. <laughs> ah yéen naa la nee naa la siiw. dafa am ñaari façon yi am Sénégal. Mm-hmm. déglu moom ma wax la ci musique non clip bu rafet. Mm-hmm. barki démb Chérif génn na fi clip bu amul fenn ci àdduna baraj mm-hmm. baraj. mu ngi tëj réew mi mais kii tamit li mu def dafa neex. non c' est très joli. c' est très joli couleur yi. parfait léegi sañseem oui ma oui eh, non sañseem. bu dee damay noté sañseem moom man je note cinq sur dix. alors macha allah ñu ñu ñu jeexalaale foofu waxtaan bi xam naa dañ koy bis quoi. plateau bi foog ñu. ah après deuxième partie. c'est que ñoom dañoo yërëm Kéba xam nga ñii. billaahi ñii ñii eh. promotion sociale la ñuy def. gis nga promotion sociale boo koy de Kéba nga toog ndeysaan naan i daf ma bëgg. Eh. i daf ko yërëm boo defee carrière ba toll fii. nan la jàppale yërëm la nga mën a nekk. Kéba je l'aime bien. wallaahi Azim du caax. c'est un gars boo xam ne il a un bon CV. Kéba du ko denc ñàkk fayda. Mm-hmm. nit ku baax la. Mm-hmm. nit ku dal la. Mm-hmm. miinu ma ko xaw ma ko. musique am dama koy enjoy. musuma dem soirée Kéba Seck. mais man mi ne ci showbiz. dafa am moom ay plafond yuy toll ci musique. da nga koy xool ci réseaux sociaux yi ci partout. dafa am benn groupe bu lay defal bruit. ak ñi lay siiwal. artistes yu bari am nañu tur siiw nañu waaye yorunu dafa am fu nu yem. gis nga boo déggee star planétaire mooy international. donc c'est Youssou Ndour ça. c'est Youssou Ndour ça c'est Youssou célébrité la. Mm-hmm. c'est nekk centre du peuple nekkagul star. Mm-hmm. c'est le centre du peuple. c'est normal parce que génération bi. Mm-hmm. te li indi Wally Seck mu toll fii mu toll tey ci musique am. à part joobam ak li ko yàlla may ak mbaaxam ak li muy dimbalee doomu aadamam social daf ko dimbali ba mu rey musigam mu am tour Wally li ko indi en connaissance de cause Youssou Ndour était ministre de la culture Pape Diouf nekk fi ñu dem ba ci biir Youssou Ndour ñu quitté culture mu ñëwaat ci musique fekkaat fi Pape Pape ñu taxaw ñoom ñaar di waxtaan naan ko war a dem booy dama la fi bàyyi woon kat non grand kat maa ngi sa gannaaw c'est-à-dire moment boobu réew mi soxla waykat Wally jugee fee rek romb fa rouge mhm. génération bi yëpp ko loolu nag romb li may romb donc. non romb Pape Diouf xamala la. dafa brûlé état bi respect bi Pape Diouf am ci Youssou Ndour. Mm-hmm. ba dafa toog di. ko xaar. Mm-hmm. parce que ci ndigal la doon wéyee. Mm-hmm. Waly Seck ñëw rek moom xew ma yëgu ko rek romb fër dem yoon. réew mi yëpp topp ko nag ne ko yaa ne moo nekk loolu moo indi. le chanteur du peuple. le chanteur du peuple. ñun on a travaillé avec lui kii xam na baax li may wax. ci musique laa la wax. mais bu doon way dong. ak am octave ak mën a way. kon ba léegi. waa léegi ci gannaaw boy. mais c'est Pape Diouf. oui c'est Pape Diouf c'est le meilleur. oui oui c'est Pape tey exemple booy xool. oui c'est Pape Diouf quoi. mën na way. torop vraiment mais dafa teguwul ci tempo. Ah. non déglul tempo musical waxuma ko de. teguwul ci balance. showbiz. showbiz bi ma leeral la benn. Ah, ma leeral la benn affaire pour comprendre ko comme ça. waaye mën na lay neex. Mm-hmm. waaw mais di ngeen daje te doo ko xàmmee. c'est ça. Mm-hmm. pour wax ji leer sa nopp non du problème mu gàtt yow eh, eh non du gàtt. xadi mën nga nekk kuus sax toj fi. xadi xadi. Hmm? du gàtt am na ko na leen leer rek bu ngeen daje doo ko xàmmee. Hmm. Kéba Kéba Kéba mënul hmm. nekk star. day siiw nii mais du nekk star. li may wax nii neexut a dégg nag moom c'est-à-dire dégg de. nekkul pour dafa toog xol bi. sax mayu ko sax Ousmane Seck anamu dafa toog dal. daa am yërmande. ma penda anamu nekk am yërmande. day am ay moment yoo xamante ni ñi ñu ñu nekk dañuy dem seen yoon. ñuy toog toog ba pare day am benn moment nag day am phénomène musical. phénomène musical mooy waral tey ab Ouzin Keita ñëw. rek am tur ñu ne waaye moom moo xew. xewul phénomène la benn musical la mais benn moment la parce que am na ay jamono. Hmm. njoogu lu la intéressé moo fi nekkoon. Hmm, bu dee xew la kooku njëkk def phénomène musical yoo xamoo. bu kon ñun ñu fekkee loolu xam nañu. kon donc chaque 10 ans. chaque 15 ans chaque 15 ans chaque 10 ans. wala chaque 100 ans wala am phénomène musical. Hmm. Keba du ma ne phénomène musical la de. Hmm. ah non déglu ma. déglu ma. Assane mi faaw mu jàkkaarloog Kéba man non Kéba dama koy ñaanal yàlla est-ce que du ñëw suba ci wallahi Azim Kéba dama mu toj àdduna parce que mérité na ko nit ku yaru la. Ah mais gis nga musique dafa am mu muy àttee. Mm-hmm. musique waxul dëgg fii ci Sénégal. merci beaucoup musique moo waxul dëgg. te Kéba li te Kéba li di fen nanguwu ko. li musique di wax dëgg lay topp. Mm-hmm. moo tax mu tag benn place. Mm-hmm. diriyànke bu jaaxle amoo fa dem dama leen dem ca Kéba la <laughs> wañaaru waaye génération bi xew xale yi di naaw di kërti kërti di jël volet. doo leen gis Kéba bu macha allah kontaan nañu waxtaan bi dañu koy dañu koy def deuxième partie ah bu ngeen bëggee. non day am day amaat semaine prochaine. day am parce que war ah, a wax parce que des na li ñu war a wax des na. li ñu war a wax des na. loolu loolu loolu ma ko may ñu defaat ko diin jamono deuxième partie. mais mën na ne. semaine prochaine ci yow la des doom day. en mën na ne en tout kontaan nañu. oustaz day bëgg ci kontaan nañu ci sa teewaay. ak waxtaan bi macha allah kontaan naa bu di wax mhm. ni lu ñu fi wax. mu mhm. baax. Mhm. yàlla na nekk yiw ci réew mi. amiin lu ñu fi wax muy safaan na nu ñu jéggal. te xam ni bëgg a yonent bi ci jéggale ak mbaax rek lañ ko teg. ndax bu fekkonte ni ku dem fànn yóbbu la buñ la fajee nga te ñu rey la kenn dootu ko yóbbu dof te do àdduna bi dafa laaj nit ñi bu ñu tarxiisee dem ñu indi waat mhm. li nga doon wax sànq foo fi dem rek mhm. ña koy def mosoo gis ay oustaz yu daje def émission lu ngeen di def ñu ne dañuy gërëm ab oustaz dafa wax lu baax mhm. balaa nga gis ñu def ay sorti day fekk am ku def fët ci l'islam ñoom mhm. mhm. ko bokkal euh, ma am sooroor noonu la diine mel par force am ñoo xam ne yàlla daf leen bàyyi ñu ne ci média bi di wax am ñoo xam ne ñooy jàngal ñu ne ci média bi yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp amiin juumee nañu ko baal ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu ñi seetaan ba heure bi bari na ñoo xamante xamante ni ñu mm. nga xam ne sa ay waay lañu buñ dee lim rek daanaka léegi ñu salaatu macha allah maa ngi kontaan ñëpp <laughs> nuyu grand Assane moom itam wax na dëgg suñu kër la yaroo mhm. def lu nekk waaye comme man caat laa daanaka ñoom bi ñuy xew boobu fekk na man boobu maa ngi xam naa ca daara ja ma mhm. <laughs> dellu see nag ñoom ñëpp ñu daal di tasaaroo macha maa ngi koy bégge bu baax macha allah mhm. xadi kazali Yacob nee na dafa bëggoon a euh, ma grand bëggoon naa dugg non bii di ñëw dañ leen di may ñëw bii ñëw parce que ñu bëgg dugg man di ma bind bari man dama fay ah. di la di la sant parce que aussi yow nit ku baax mm-hmm. parce que man d'habitude su may dem ci plateau mm-hmm. sama soxna dafa am yoo xam te ni bu la koy wax mm-hmm. waaw góor xam nga góor nit la rek te man moom rek la am ci àdduna donc bu ma nee demal sawar naa ci rek c'est parce que am na lu tax am na plateau yoo xam ne dañu dafa ebb sax waaye des fois bu xaw a siisu nga toog donc di mu doon lu nice te yow da xam li ci milieu animateur nag bari nañu lool mhm. mais ñun xam nañu kii kii équipé quoi mhm. mooy li ma la wax rek dafa am ñoo xamante ni dañoo war ñuy dégg seen yu tout mhm. ñii dañuy liggéey topp seen yoon tepp tepp dafa gën a yuré am na ñoo xamante ni ils sont constants am na yoo xam dañuy tàkk di fay yàlla ñu ci àlla musal mais yow danga am benn cap boo ne te cap bi nga nekk noonu bu la ci dara jële tu es humble simple moo tax ma amoon kersa lool nga invité ma deux fois mais bi nga ne kii day ñëw rek. Mhm. non damay dama sawar. donc di ko Khadija aussi. Mhm. macha allah. Mhm. donc ñun lu ñu fi wax yëpp. lépp luñ ci wax it comme Kéba déconné. c' est quelque chose boo xamante ne aussi il faut que dama nekk ci label. moom. waaye ah, il tamit aussi ma wax li fi ne. mais ça n' empêche que tamit jëlee nañ fi xam-xam. te liñ fi wax lépp nga xam xaw na déréglé du ci ñun ay nit lañu rek. di gërëmaat. Mika Diallo. parce que nag. kooku il faut ma def ko su ma ci paree sama soxna à part moom samay waajur ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen wax dëgg yàlla il kontaan nañu loola et puis euh, tamit di Moustapha Diaw moom kenn du moom ndax bureau moom du ñëw kii moom yàlla daf nu boole mu doon sama lépp moom mooy indi moom mooy yóbbu macha allah tey su ma nit gisee mooy toog ne nong génne loxo ca mhm. buntu oto ba mhm. c' est grâce à lui su ma mhm. bàyyi woon dina sonn trop heure bi maa ngi ci njaganjaay yi wala maa ngay dox dëgg yàlla mais santaat suñu borom lool te xam ne nag yàlla bàyyiwul di ñaan émission bi na doon ay émission buy joxe prix amiin yow nag yow euh, sa émission prochain émission kañ la yow saa yoo bëgg yow saa ñu. non non moom kañ ngeen di toogaat plateau. chaque jour ngi fi. demain la la. chaque jour mu après match Sénégal bi. waaw prochaine émission man man dinaa ko solal bu soobee suñu borom. incha allah parce que artiste la. Mm-hmm. te aussi gisoo euh, bi bien ni muy def animation bi. et tout ça waaw j'aime daal mm-hmm. yàlla noonu yàlla defal jàmm. amiin waay. defal ko aussi euh, mbooloo mi jullit ah. mm-hmm. ak euh, li liñ fi wax yëpp. lu ci dëng na gaa xam ni moom suñu milieu bi daa bëri liggéeyante xëy na damaa dëgg nenu jàmbur wala maa yàq tayuma ko <laughs> asalaam macha allah kontaan Abi ñu ngi koy nuyu bu troupe soleil levant depuis Thiès mu ngi ziar oustaz da lay nee na ci euh, Sen ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Aïda Khadija Malal Ndiaye

waaye di nuyu aussi sama ASC bi Ndiaye Gaynde maa may chargé de com bi mm-hmm. di beral loxo tamit euh, Kéba Seck euh, di ko wax euh, ci kaw ci kanam rek dañu mm-hmm. koy ñaanal mm-hmm. du ñaanal tamit maxu maxu suba teel sa doomu ndey saa moom c'est ton ami c'est ton ami di nuyu Badara Gadiaga di nuyu Cheikh Gadiaga du ma fàtte Alima daf may rey. Mhm. Ah, di nuyu aussi monsieur Matar Fall sama jëkkëru rakk la. DG Ndiaye maa ngi koy DG DG de clic. Mhm. ah maa ngi koy nuyu bu baax a baax di wax ni sanse bi may mën a moo fi jaar. des ngeen ni émission bu free la donc ah parce que bu njëkk ba daawuñu gis émission nga am droit toog di tappane sa kanam di def. Mhm. donc euh, di la ñaan gudd fa nag wér euh, di la dénk Mame Baye mi nga xam ne moom nga yaakaar donc. Rendez-vous demain même heure, chérie, hmm. pour le thé, c'était magnifique. I like thé vous <laughs> aussi waa régie ah hmm. waa régie ci ginnaaw hmm. allah Aïcha. vous Babacar Gueye suivre. ma koy wax Max eh nee sa ami d'enfance la eh, maa ngi message bi vous wax na ma Je nee na ñoo foondoo nuyul a baax kuñ fa wooyee kona waaw ci plate am na ngeen génn <laughs> ah, non loolu eh, eh, non non non Ah. non baal bu sedd baal bu sedd ma jaay de. comment. Ah. am na ah. ku may envoyé naan naan plateau bi daal am na koo xamante ne Kona lañ ko mën a woowee Kona Kona. gis nga li nga wax Sénégal ak ñu noonu. loolu <laughs> ñu indi sama surnom. <laughs> bëgg a wax sama démb Kona gi nu mu demee noonu loolu la ñu ko waroon may. billaay dina leen umb. ki la ko wax nag xaw ma kenn la waaye nu ma jàmm. beneen émission bi notel. notel macha allah. ndeysaan. ayca Ousmane. waaw alhamdulilah Yves santaat nañ bu baax. baax a uh-huh. baax chaque jour rek jëfee mm-hmm. maanaam mbir mi di gën a jëm kanam yal ci yàlla gën a def barke amiin waay wax dëgg fa yàlla man moom mm-hmm. nitu banlieue laa moo tax mm-hmm. su ma gisee ku jóge banlieue maanaam di wone aaram daf may na keroog ñoom ah. ñànk bu ñu ci toogee ca jàkkee ndaween laa dëgg baax ah. maanaam ñu bokk koñ am na li ma man dama ciy fier parce que chaque jour rek côté yooyu dafa am fu ñu leen di dëkkal bu génnee fenn rek man daf may neex daf may saf mm-hmm. euh, Tange ñu koy waxee waaye di bàyyi Assane mm-hmm. jeu d'acteur am daf maa doy mm-hmm. bu doy maanaam moom moo ci am jeu d'acteur boo xamante ni dafa stable ki loo ko joué loolu dina la ko joué ci xol du ëpp du yées sax ñun dofuñu man setan na infidèle eh, bam bañ na ko sax ma ngi djegul man vidéo setan ni ji yëpp dem ba ndam man nit ñi dama leen fi bayyi di setan hmm. hmm. eh, di dem parce que aar laay dund di jiar bu baakha baakha baakha baax Yves Brima hmm. Brima Blom Flex show nga gis ni samedi bi passé mo donon sama événement avec gaay théâtre sur scène bu doy damay bëgg sax inshallah Baye Assane sa yu ñëwaat bu ci xajé école bima nek ñu fay jaar mhm. ni tax suñu ko wa acting club ñu ñu tok fi nga gis théâtre sur scène mhm. parce que dafa am lo xamanteni manam mhm. kuko jang kuko jangul mën ta bok dedet man if xëy na ndamoo wuñ ko de waye man production Sénégal yi ma bok yëpp du production cob ñaata publicité du ma ko doxé duma ma ko waxee dedet parce que du yoy man naturellement man damay bëgg di doon taali même bu parce que parce que oustad xamna ko nee né nit boo bëggee baax sax day ànd ak ñu baax. Mhm. ngay ngay baax baaxlu bu yàggee di nga baax. Mhm. di nga baax te ñun foofu la ñuy nekk moo tax ku ci mel ni yéen dañ leen di xool ngeen doon suñuy miroir. Mhm. ndax maanaam bu ñuy gis si yéen rek lu sell la te lu baax lay doon di jaar ki nga xamante ne nag fu mu ne nii moo la defal biddiw boobu waaw sunu ko waaw jazz création mi la génn fii mm-hmm. te bi moo doonoon sarax si soloon naa ko ñu gañ waaw sol nga ko ay yàlla ndax bi dañuy gañe insha allah waa Arabie Saoudite yàlla xaarama ñaan ko waa Arabie Saoudite suñu nawle leen waa Màkka yow fii la mag ñu baax ñi ne yàlla mm-hmm. yàlla 3 0 nga may ñu ko lu mu lu mun la de yow mm-hmm. mun la te du la def effet dimbali ñu ci soxna Khady. loolu dañuy gagné incha allah. deux incha allah demee dinañ dóor bu soobee yàlla. macha allah Bamba Sénégo ñu ngi koy nuyu. ndeysaan. Eh, ma nga ba Touba. Eh, waaye nuyul ma ko waay Bamba ñu ngi koy ziar bu baax. moom amel naa la ci ma joxoon sax information bi ci Cheikh Ahmed Cissé. ndeysaan voilà moom moo ko moo ma ko moo ma ko envoyé quoi. ku bien la nit ku bëgg ñëpp avancé. Bamba ma ko waay. <laughs> ku baax la. ndeysaan gërëm nañu leen jox ma anniversaire yi. laay ak aussi Pape Bouba Diop aussi. deux ans ci ren. tombé déjà ñu le le 28. donc gars yi football non seulement pour Sénégal mais pour Pabou Bouba Diop quoi waaw. na nga ah. mais style. jox numéro après hein? D'accord, Inch'Allah. Pabou incha nous rendre hommage ci match souba B, Équateur match final mhm. ça passe ou ça casse. Mhm waaw bah, faut pas réfléchir Ben match la nañ ko dóor jàll ci leneen donc deux ans ci ren bi mu dëddoog léegi ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm. amiin ah yàlla xaaree ko aljana parce que quand même ñu ngi fàttaliku 2002 bii bu rëy ba. ah ak jubilé bu neex bi. Mhm. Pape Bouba Diop def leen ko suba contre Équateur dugal leen ay buts. jubilé comme ni Pape Bouba Diop doon ko defee ni ngeen ko defee ci Coupe d'Afrique bi ak Bamba Dieng ah defee waat leen ko noonu. waaw loolu dina baax ci mémoire quand même parce que nit ku bëggoon dëkkam la. laay anniversaire yi ah. Balla wala ñu jàllale ko rek ak aussi sunu sunu xarit Thierno Basirou gisee aussi. alors ñu ngi souhaiter joyeux anniversaire ok d'accord accord petit ok lii benn long métrage la waaye lui ay ah boo xamante war nañ ko def donc di ko yëgal euh, acteur yi nga xamante ne ñu ngi bokk reçu ak l'usaay am yëpp que voilà ñoom ñi ngi préparer benn euh, long métrage boo xamante ne ce sera pour bientôt incha allah donc ñi bokk reçu ak ñi bokk l'usaay ami yëpp ñu ngi leen koy yëgal képp koo xamante ne yëgoo ko woon mu ngoog bu fekkee ne da nga bokkoon ci movement bi te gëjoon participer gars yi ñu ngi woowaat nit ñi nañ ñëw Euh, te nee nañu ba ñu teggee loolu lépp mosuñu def benn action boo xamante dafa jëm ci wàllum film. Mhm. donc bii c' est c' est l' occasion. benn long métrage donc bëgg nañ ñi bokk ci mouvement bi yëpp ñëw bokk ci. voilà ku ci nekk jàpp ci incha allah lu ngeen ci bëgg xam woo foo de chargé de com bi su ko defee moom euh, dina ci indi ay leeral yu bëree baree baree bare kii nag euh, mu ngi tudd Seyni ah di taalibe Serigne Babacar si. suñu siste la aussi suñu auditrice wala boog téléspectatrice bu yàgg la. depuis Walf euh, di doomu ndeyu Ousmane borom live sport ci sunu people TV Seyni taalibe Serigne Babacar Sy ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire di la wax nga dund lu bare bare loo dund doyul happy birthday jox ma beneen anniversaire bi sunu yaay soxna Aïda Sy ñaan bu fekkee boobu jekk na ñu souhaiter joyeux anniversaire.

Mon anniversaire am aussi de la part de groupe Lusa Ami acte artistes parce que mon suis reçu donc wa reçu ak wa Lusa Ami ñaanal le souhaiter joyeux anniversaire amna Benen, sa boss bi Quoi kana kila wa madame ne ba ma ngay <laughs> c'est la première fois que je vois le D'accord, D'accord. joyeux anniversaire Fatou de la part de toute l'académie de IKRA Sine. par la voix de père Baba Maïssa Faye Nous, nous ñu joyeux anniversaire Fatou de la part aussi de Ousseynou et toute l'équipe de Goudiki nous avons souhaité souhaiter happy birthday jërëjëf Arona Malay Nigay ñu nous koy depuis Saint-Louis Abdou Fall borom sunu label hein AWC maa ngi lay nuyu grand kontaan nañu ñu ngi lay euh, souhaité waat joyeux anniversaire ah donc di la wax nga dund lu bëree bëree bëri Babacar sopp Nabi ñu ngi koy ziar na bien c'est bon jeex na anniversaire yi ah. ay cay gërëm nañu leen rendez-vous suba incha allah beneen émission guddi gi jàngeen ngeen jëf merci Ousseynou merci lay الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر